Touba kanam boisson punch Pridel établissement Ndatedja Zane Marega fourniture Auchan Adja Ombilico Xelcom Bache ak Owalo ñoo leen doon may salon d'honneur dalal ko zappe moom la nu taamu jëf mbokk yi ci ànd bi ngeen ànd ak seen télévision Walfadjri am nañu mbégte dellu siwaat ak yéen niñ ko baaxoo di defee bés bu yàlla sàkk ci waxtu wi émission bu rëy bi émission bu mag bi émission bi nga xam ne àdduna wërngal këpp moom la xaar waxtu yi mu jot ñu daal di connecté wu ñi yaa ngi ci internet bi ñi yaa ngi ci seen perron yi ñi yaa ngi ci seen biir kër yi ñi yaa ngi ci saal yi ñi yaa ngi ci ëtt yi ah. mu nekk nag mbir moo xam ne ñëpp a koy xaar ndax liñ fiy waxtaanee vraiment dafay nekk lu am solo nee naa leen ba tey bu ñu toogee c'est en famille dañu boole utile ak agréable ah dinañu kaf dinañu ree waaye dinañ waxtaanee li nga xam ne moom moo soxal réew mi ànd ci nag ak fulla ak fayda gu gu mat sëkk xëppoon poobar ah poobar bi safoon na sapp démb tey nag moom damaa bëgg ñu xëpp ci kaani démb poobar la mais tey kaani laa bëgg ñu xëpp ci kon nag gars yi am nañu mbégte am na gan te dinaa leen gan gi kan la après gan lañu am gan ah ku dawoon ñu koy wër muy daw ñu koy wër ba ba ba ñu mujj ko jàpp <laughs> wuy ma ah, ok jox ma ko jox ma gan gi jox ma gan gi dama koy teel a wane jox ma gan gi jox ma ko tur bi du ko wane jox ma gan gi dawoon voilà jox ma ko eh, eh, voilà yow wuy ma yow foo nekkoon yow foo réeroon yow man yaa ne ma soxla man yaa ne ma soxlawul soxlawuñ la fi. man ma toog sama kër. <laughs> yéen da ngeen di seetaan bu jaxase gars yi. Ah, yaa ma wax de soxla soxlawuñ la fi. ma toog sama kër. am sama fula am sama fula bu mat sëkk. mais bien sûr. gépp xam nañ ne ba ñu waree ba léegi maa ngi ak Pape Makhtar à rajo. Mhm. ci rajo bi bés bu ne. léegi wàcc wàcc léegi atel. <laughs> non non ah ah wàcc <laughs> eh bi tey maa lay. léegi yow xam maa lay soxla nga ko moom moo ñëwul. moom voilà <laughs> ah, eh. Isa Isa yow. voilà ah, léegi ah, léegi léegi yaakaaruma ne dinañ ko soxla mu bañ a ñëw moom it. non boo feetee man wala moom. <laughs> ci yow. waaw kon léegi 3 contre 2 la. contre 1. Eh, eh, man ak Pape Makhtar on a plus de droit que tous les autres. waaw bu doon élection ñun ñooy gagné. alors kon leer na kon en tout la ah. waaw grand électeur très bien ah. xam naa ne liggéey bee ko tënkoon ah. ah mais namoon nañu la quoi vraiment alors Caro dama lay bàyyi nga nuyoo gaay man ma daaw euh, def comme d'habitude rek jëlee leen seen invité. d'accord sans sans plus tarder. voilà mu nga te te bu fàtte sama sponsor yi dégg nga ah. d'accord incha allah dinaa leen tudd bala ngaa ex bu allah donc amati mbégte rek ah ban ban ban ci soxla. indi ma ak bi euh, pom bi. anaana pom pom pom pom pom. ah eh, yow nag jëla boobu. Euh, disons jinjeer am na. Moussa jinjeer <laughs> jël ma jël ma direct. <laughs> bi tey bàyyi ko voilà oui ma coro ma tuli jël ma ko tardé filmel ma ko filmel ma ko dafa tardé. <laughs> tardé ak sañse bi. di ma ne ko tardé na waaye sañse na. ne woon naa la naa la amaat tardé nga de. bul ko faale bul ko faale yow toogal rek installé wu. mais dafa leen du tax ñu fàttali la bu tabaay yow nga dem lu ma lay indil. la ilaha illallah nit ñi woor Moustapha di laaj jinjeer. ah mais c'est pour la santé ana jinjeer bi c'est am na non jinjeer bi am na tàngal jinjeer. non tàngaloo seex naa ko. waxula tàngal de pënc jinjeer la la laaj. pënc jinjeer amul ah. ñoom ñoom def amul jinjeer. pom pom pom ah. waaw ah d'accord kon ma joxoon yow boo soxla. boo ma jox rek baax na. yow neex nga affaire. Isa mën noo baax na. <laughs> Issa jëlal màng yow. jaajëf nit ku baax. xaaral ma def nii parce que gars yi nee nañ càmmuñ bi may joxe damay bañ ñu xas ma. ah loolu baax na mu ngoog. Ah. internet bi moom dañu bëri leçon. lu ne lañ may yàq waaye am problème grave. <laughs> mën ko am problème grave. waaw d'accord Aliou Sow moom bu bu verte bi waaw Aliou Sow booy laaj. si si si. anaana mangue grenadine. mais neexul ba neexul nag mais pënc bi neex na ni ngeen koy séddoo yi nii pënc bi neex na. ah, ah bien sûr. ah mmh. bu ñëw baax na anaana bi naa ko xëcc teg nii. comme kon bu ñëw baax na kon baax na am jàppal pënc ba te nga bàyyi taal dégg nga. nit day am jom dégg <laughs> nga bàyyi tànn bi dégg nga coro ok à tout à waaw comme ni ngeen ko xamee mbégte rek la ñuy àndal te fii seen euh, plateau bu salon d'honneur comme ni ñu koy faral di defee nag saa su ne ginnaaw suñu mbokk chroniqueurs yi dinañ am gan euh, kenn dootu ko présenté mu nekk l'ancien ministre ki nga xam ne moom mooy wuyoo ci turu Souleymane ne njaay tey ji moom lañ fi fas yéenee waxtaanee ndax ku ne xam na ni euh, ci jamonoy 2000 ba 2002 2000 ba 2012 nekkoon na fi jëwrin gu njëkk waaye itam na ci ay wàllum li nga xam ne ni moom moo di poste ministériel daal koy occupé woon nekk nag koo xam ne kenn doot ko présenté ci wàllum politique mu bokkoon ci euh, PDS gi nga xam ne jot na faa génn euh, jamono ji nag dañoo fas yéene dalal ko daal di waxtaanee moom lépp loo xam ne dafa aju ci wàllum politique waaye laata loolu damay dalal euh, ñi nga xam ne ñoom la ñu fas yéene feggool bi les plateau di suñu mbokk chroniqueurs yi comme ni ma koy defee saa su ne man damay jiital ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu sang yi góor ñi laay njëkkee doog a ñëw ci jigéen ñi may daal di dalal ki nga xam ne moom moo di Issa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax. Coro dalal la ci plateau bi. waaw c'est normal nag nga dalal nga njëkkee ci man. Uh-huh. <laughs> voilà tax mu ji bi ñooy ànd lom de xombal. ba xombal ma wàcc uh-huh. wuti kër coon nga dem uh, fa nga xam ne moo di Njaayeen Sirax ñu di ko jaajëfal bu baax a baax. coro <laughs> ñoo bokk dëkk. ñoo bokk dëkk benn kii bi la. mais ñi ñëpp ay bool bool lañ. ay bool ak wàcc ak wàcc. ak wàcc ak wàcc waaye. voilà bien sûr. bu baax a baax. di leen nuyu di nuyu ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal plateau bi. ak sunu ñaari gan ñi. ndax mhm. am nañ gan am gan goo xam ne moom laa jàkkaarloo lool. d'accord Moustapha ñu namoon gars yi namoon nañ ko lool. Euh, di nuyu ñi nga xam ne ñoo ñu seetaan ci Walfu TV ak ñi nga xam ne aussi ñooy suivre ci suñu différentes plateformes di leen wax ne nag lépp loo xam ne rek ñu ngi koy commentaire koy gis di ci bàyyi xel bu baax a baax macha allah kenn du ñoom ñoom ne ñoom ñoo féete ci internet bi waaye tam ñi nga xam ne ñoom ñooy waa diaspora kenn demul ñu des gis nañu seen ay suggestion waaye tam seen jàppale bu baax a baax ci côté bi nga xam ne moom moo di ci internet bi donc damay ñëw ci Saw Pulo Jéeri surtout awa bàyyi awa. waaw gis nga. nuyooti naa <laughs> la sant di la gërëm amati nañ mbégte. Eh bravo merci beaucoup. je suis content très fier. encore nekkat ci plateau bi jàkkaarloog euh, le grand Moustapha Diop. et puis les autres amis qui sont sur ce plateau. leen sant leen gërëm di wax euh, donc euh, Mama Khadiba. bi nekk Diamniadio ah. euh, que bëgg naa ko et puis aussi maman Khady Seck bi nekk Lac Rose bëgg nañu leen bëgg nañu leen et puis naturellement ma maman qui est à Alfortville donc en région parisienne Henriette euh, je euh, t'aime mhm. voilà leen di sant leen gërëm et puis mes enfants et puis adduna bi ñëpp ñuy seetaan maa ngi leen di sant leen gërëm je suis encore une fois très fier d'être sur ce plateau de Salon d'Honneur macha allah man maa ngi beral nuyoo Hélène Hélène maa ngi koy nuyu ma petite absolument depuis Bâle en Suisse ñu ngi lay ziar Euh, beneen bawal bawal bi ci laay tourné maam Biram <laughs> maa ngi lay nuyu am naa fierté bokk ak yow plateau bi waaw maa ngi lay nuyu soxna Coro mhm. eh, di kontaan teewaat ci plateau bi mhm. di nuyu ñi ma ko bokkal ñëpp Moustapha mhm. <laughs> gars yi danañ gan nga waaye <laughs> vraiment j'ai un problème avec ce terme là loolu ma jaaxal di nuyu Pape Matar Aliou Issa ak soxna Maam Khady di nuyu surtout nag sénégalais yi nga xam ne bàyyi nañ seen yitte yëpp toog waxtu wi di ñu seetaan surtout Moustapha maa lay nuyu maa ngi bu baax Coro ganu koor gi sax lañ koy tuddee. <laughs> am mbégte ah, ñëw bokk ci ah, salon d'honneur mhm. niñ ko amoon ah, habitude di defee. Mhm. di nuyu Sénégal yi nga xam ne yëpp comme ni ko maam Bira waxee sànq. Mhm. ñoom ñoo bàyyi seen yitte ne ci biir réew mi ak ci bitim réew. di ànd di ñu seetaan ci Walf TV di yaakaar ne. waxtaan wi tey dina am solo lool di nuyu également mbokk yu baax yi nga xam ne yëpp ñoom lañ nar a euh, jàkkaar lool ci waxtaan wi tey. macha allah amatina solo bu baax a baax sama xaritu jëkkër l'ami de mon ami. <laughs> waaw kon sa xarit la maa ngi <laughs> maa ngi lay maa ngi lay fay soxna euh, mm-hmm. di nuyu ñi ñuy ñëpp waa saint du Sénégal waa Colbane ak waa Fass mais di euh, beral nuyoo waa Keppaar gi parce que ñoo toog fii. mi Moustapha mi Moustapha Diop. <laughs> am solo bi maam Biram wàcc ak Aliou Sow mm-hmm. temps yi moom dafa may daw xam naa ni daf ma xaw mere mais man lijjanti ma moom di nuyu <laughs> di nuyu ak euh, Khadija di nuyu yi nga xamante ne encore une fois dañuy bàyyi seen yitte di ñuy di ñu seetaan di ñu bàyyi xel bu baax a baax ah. di jéggalu nag xam nga parfois émission yi nu muy demee ak yooyu ah. euh, ak kii mais bon voilà voilà ay contradiction mënut a ñàkk ci émission mais amul euh, benn mbir boo xamante ne bu disres maanaam disrespect sax <laughs> bu bu manque de respect nit la ah. mais dañuy dañuy waxtaan rek di leen jaajëfal bu baax a baax sama xarit la. waaw bu ma kenn message di ma naan Aliou Sow warul ñëw ci plateau bi war na ñëw ci plateau bi. de la même façon aussi ñu koy naan pamata da koo een mhm. ñooñu nañu téye seen wax yooyu maa moom ay xarit nañu te liggéey nañu sekk te vraiment aw benn benn benn problème bu ma am ak moom wax dëgg ah, yàlla nit ku baax la nit ku yiw la nit ku sell la mhm. xamalu ma ko dara lu bon émission bi nag bu commencé man moom suñu xaritoo fee lay ne waaw dañuy def li nga xam ne mooy suñu liggéey bu ñu paree ñu continuer waat ci li nga xamante mooy suñu ay relation na nit ñi moytu di dugg ci ay relation yoo xamante ni xamuñu lan moo ko lan moo ko lan moo ko lan moo ko tabax mhm. voilà ñoom télé bi nañuy gis rek ñu yem ci télé bi te bañu dugg ci yenn commentaire yi war nañ ñëw ci plateau warul ñëw ci plateau pamata war nañ ñëw ci plateau warul ñëw ci plateau bi vraiment ñu ne ci commentaire parce que du ñoo leen teg ci plateau na importance bu baax baax te it liggéey leen boole waaye tam en liggéey bi am na yeneen ak yeneen yuñ sekk te ñun ñuy bokk ak yéen xam nañu bu baax a baax euh, li ngay wax donc ñi nga xam ne ñoom ñooy toog di seetaan nañu seetaan rek te jàppee noonu wax ji mënuñu ñun ñëpp ñu ànd farandoo fenn wala sax ñu ànd bokkandoo ay wax euh, ci ni nga xam ne noonu ne la ñuy euh, defee émission bi donc bu yemee fii ci plateau bi fa lay yem bu ñu jógee ñun ñooy xam la ñuy sekkaat ak mm. yeneen donc am na importance ci leeral bi ma lay dalal maa xam Diéry la plus belle waa gis nga maa ngi lay dalal yow tamit gis naa sa sañsa bi nice na maa ngi nuyu waa gis nga maa ngi nuyu ñi nga xam ne nii ñoom laa bokkal bile plateau sama confrère yi aatu ma feeñ na donc euh, <laughs> en gris en face <laughs> di ko dalal di dalal euh, ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi nekk di nuyu ñi nga xam ne nii saay su nekk ñu ngi toog di ñu xaar di xaar salon d'honneur di nuyu waa Bambey di nuyu waa Wakaam di nuyu sama parents yi di nuyu nuyu ñëpp ak waa diaspora bi tamit. macha allah amati importance comme ni nga ko euh, waxee dañuy dem rek ba Bambey nuyu ñi nga xam ne ñii ñoom ñooy sunu famille ya fa yeewoo euh, euh, tund bawal sax laa koy mm-hmm. tuddee ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ni ñoom ñoo ñuy seetaan du ñu bàyyi xel waaye itam sans plus tarder aussi dañuy daral madame Habib madame Niang nuyu naa la. maa ngi lay fay bu baax ah. macha ah, allah sama nawle Mrs Niang. ca ñangeen ya la. ci du leer jaay ma santatul ca ñangeen ya la. jaay ñangeen yi am santatul faal de. xam nga Moustapha mi dafa am place ci ñangeen yi. nga toog feelu ma. <laughs> kon lu ñu waxati. sunu duyo lay doon kon <laughs> maa ngi lay ziar bu baax. Mm-hmm. di ziar ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal ci plateau bi ah. Mm-hmm. waaye it fàttewuñu am fidèle téléspectateur Walfadjri yi nga xamante ne waxtu wi saa yu si jotee rek dañuy jàpp Walfadjri ngir seetaan euh, salon d'honneur on aussi que duñ fi wax lépp lu nga xamante ne rek dinañu ko xeebee tey wax lépp lu jariñ ñi nga xamante ne ñoo di askan bi macha allah comme ni nga ko waxee fas yéene rek daal di addu ci li nga xam ne nii moom moo di ci émission bi comme ni ñu ko waxee lépp lu ñu fi wax defar moo ñu tax a jóg waaye tam taaral li nga xam ne ni moom moo di émission bi moom moo ñu tax a jóg noonee la ñu ko defee. ndaw de boo ko yónnee moom saay waaw. daa mel moom da lay indi rek li nga koy yónnee voilà. ki nga ki naa la ko. macha allah ñu koy dalal. alors Mame Birame wàcc. sëñ Mame Birame. waaw monsieur le ministre. maa jàmm nga monsieur le premier kay. jaxul nga peese. <laughs> Salma Ibrahima Fall. mais dafa mel ni sa gars yi ñu ngi euh, déclenché affaire yi de. ça commence bien. voilà maam Khady Diéry ah, Fall Fall baa ngi noonu. ça c'est le grand Aliou Sow. ça va bien naka waa kër gi maa ngi fi. alors Issa Tine. sëñ Issa. Mouhamed. Adja Adja Paax. on dit rek. i foofu laay foofu laay ci foofu waaw dégguma lu bari nag. Ah. ab ab bawal bawal laa. ça va alors alors la jël place waaw bisimilah. alors y' a y' a y' a le technicien Mballo ah, mu ñëw takkal la affaire yi waaw. mais waxuma loolu mais Moussa hmm. sa gars yi dañoo teel a attaqué premier ministre bi. non non Mame moo ko woowee monsieur le ministre alors que nag c'est monsieur le premier ministre. waaw ba pare kee ñëw naan ko jaru nga yow loo ko wax. xam nga Sénégal moom boo fi xasee nekk kii yóbbu nga ko ba ilaa yow mi diin. lenn xamal naa la ko xamal naa la ko. Euh, euh, euh, mooy gars yi moom dafa mel dañ laa yàkkamti woon parce que ñu ngi déclenché affaire yi. <laughs> a ngi toog jàpp sama yaram. loolu loolu am na solo. alors alors euh, PM comme euh, toog nga ba takk sa micro dañu lay. dalal dañu lay bàyyi nga nuyoog mbokk téléspectateurs yi ba noppi ah. parce que tey yaay gan gi. ah, ah yaay ñëw ci salon d'honneur. asalaamualeykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. mbokku téléspectateur u Walfadjri maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen ziar ci weeru koor wi di jëkkee nuyoo bi nag ci Cheikh Niass ak famille am yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax di leen nuyu yéen ñi toog fii yëpp ak ñi bokk Walfadjri yëpp Walfadjri moom euh, man bokkoon naa ci seen ay avocat Mm-hmm. ca jamono ba am avocat jafe <laughs> waaw ndax défendre naa fi Souleymane Jules Diop mm-hmm. ak Walfadjri mm-hmm. contre Abdourahim Agne boobu am avocat opposition jafe woon jafe woon na 98 nag kër gu ma xam la ma xamoon bu baax Abdourahmane Camara mu doon suma xarit xamoon naa aussi Tidiane kase parce que ñoo def nekkandoo université Sidi Lamine moom suma mag la woon vraiment mag bu baax la woon Euh, mu def fi nag liggéey bu mucc ayib Sidi ndax télévision privée yaakaar naa ni moo ko fi njëkk a def. Mm-hmm. waaw kon nag euh, bu kër gi doxee ba toll nii dañuy am une pensée pour lui. Mm-hmm. ak euh, pour toutes ces personnes là yi nga xam ne ñoo. fexe ba Walfadjri toll fi mu toll. Mhm. moo xam télé bi moo xam rajo bi moo xam journal bi moo xam site internet bi. Mhm. kon nag maa ngi nuyu ñëpp di nuyu Moustapha. jërëjëf defe naa moom laa fi gën a miin. Mhm. ak Aliou Aliou Sow. ak yow bi tey ndax yow dañoo bokk fu ñu dëkk. loolu moom am na waaw. ay Saalum Saalum ngeen. Saalum Saalum la Ndofane Laguem fa la dëkk. waaw. dama gis ni il n'a pas il n'a pas vieilli alors que en général dem ci opposition bi bu ñu yàggee tuuti dañu <laughs> commencé di màgget alors que vous êtes clairvoyant qu'est-ce qui se passe est-ce que vous avez toujours beaucoup d'argent parce que c'est quand même curieux non, non je n'ai jamais eu de l'argent mais <laughs> euh, je mène une vie très saine parce que yow màggetoo oh, sa gars yi ñoom ñëpp dama leen di gis ni mais macha allah j'ai 64 ans non c'est curieux 64 ans mais a ras wala je euh, ah, macha allah mais lu ko lu ko def opposant non nekkuma opposant je ne saurais être un de Macky Sall d'ailleurs pour opposant Macky ah, Sall euh, non non en général non enfin ce que je voulais dire mooy comme comme comme kii comme exercer wul exercer wul le pouvoir peut-être loolu la ah si day exercer le kii mooy kii la ah, non exercer wul non ah si ah si si nguur gi la bokk maa ngi ci biir nguur gi. waaw oui la mais dinañ dinañ. dafa gàccewul quoi. gars yi dafa mel ni ñu ngi <laughs> moom xam naa ne xiif na moom. non galgal kon daal waaj. mais mi ngi galgal ku mu ne wàcc galgal. donc monsieur Wath internat bu Diourbel nga waaw. monsieur Wade bi nekkoon intendant Diourbel mooy sa euh, papa. Euh, non non. ah dama xam monsieur Wade waajee daje rek. ah waaj waajee daje mais hmm. sëñ Touba daf ne woon ñi bokk sant yëpp a bokk. Hmm. macha allah macha allah <laughs> macha allah kon dañuy dugg ci waxtaan bala ñoo dugg ci waxtaan yi ndax nuyul nga ma sama sponsor yi. ba non pas encore ah kon xaar ma nuyu leen ma tante nuyu ma la. <laughs> donc ñu ngi nuyu waa Wave les Bridel Touba ca kanam Punch euh, Zane Marega immobilier établissement Ndaté Dieng. ñu ngi nuy itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Xelkom Bâche Waalo dañuy nuyu itam Adja Ombilico Auchan ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Kër Jànko pâtisserie resto ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax di nuy également école internationale d'esthétique di nuyu waa Kadi Sucria di nuyu Sucre Roux CCS di nuyu tubaa Ameublement di nuyu Electronique Corp di nuyu également ñi nga xam ne ñoom ñoo di Intercontinental de euh, Nego Negos cees ñu ngi leen di nuyu kenn amul seen fay ñoo ñoo ñee nga xam ne ñoom ñoo ñuy gunge depuis le début euh, du Ramadan ba sunu doonu yàlla tey jii donc kenn amul seen fay. am na solo Thioro mais man booy lim sponsor yi booy seet ci Khelcom Bache il faut que ma saluer le courage de Mohamed. Euh, ah. Moustapha yow comme yàlla yow la def nga nekk directeur bi seede la mm-hmm. Mm-hmm. vraiment Mohamed di technicien xel comme bâche munoon na bu ñëwee def liggéeyam rek dem mais ñooy ndogoondoor daara ji fii la koy fekk mm-hmm. fii lay ndogoo nekk ak ñun nag ba presque trois heures du matin donc loolu ci ndaw bu ñu yó yónni rek pour nga defaral benn affaire yow nga obligé di toog di def loolu yëpp kon am na courage moo tax ma la koy seedeel sa kanam c'est un exemple voilà c'est c'est ça donc merci beaucoup vraiment Mohamed ci tudd euh, Mouhamed déjà c'est quelque chose. waaw ah, voilà donc mm. moo tax nga war a xam ne man tudd Mouhamed tudd Moustapha. tuddee màgg. waaw d'accord. boo bàyyi Souleymane. Souleymane. Ah, ah. <laughs> rien à yooyu gars dajale fii. ah euh, nag Pape Matar. non ki ñu taamu. boo ñëwee boo rek taxawal. te <laughs> eh, moom naa bu ñu nee ba pare moom. moo ci gën a <laughs> kon mënatu maa wax daal kon naa noppi ah. mais profitons rek di wax euh, fondation Walfadjri bi. ah waxtu bi nga xamante vraiment euh, gars yi ñu ngi ciy góorgóorlu waaye nag damay leeral euh, invité yi fi jaar yépp kenn dugalagul cent franc ci waxtu bi ne woon naa dinaa leen weer léegi nag PM a ngi nii toog xam naa moom dina peut-être sauver honneur bi dugal dugal ci fondation bi parce que fondation bi li ko tax a jóg wax dëgg yàlla du dara lu rek def lu baax. Mm. waaye nag euh, jamono ji euh, appel yaa ngi bëri mais il faut que nit ñi xam ne. Mm. Euh, dañ nekk ci benn dajale ngir buñ ciy def dara mu nekk loo xam ne lu am njëriñ la. Ah, te ñi ngi ci koor il faut ñu génn ci xool natt suñ bopp xool ñu ci mën a def mu am njëriñ nit ñi aussi nañu ko nañ ko nañ ko. jàppee loolu wax également. bi mm-hmm. tey moo di ne amu ci benn dërëm. Mhm. bu jëm ci Walfadjri. loolu moom na leer naa jënduñu ci micro jënduñu ci fil jënduñu ci yëre yu ñuy sol. Mhm. Mhm. li ñu ciy dajale yépp pour defaat ko ci askan wi la parce que askan wi moo mel noonu ci Walfadjri. il fallait ñu wut luñ leen di dellu c'est aussi simple que ça. loolu am na solo ci kaw loolu sax moo tax am na yeneen yu bees yu ci dugg parce que Copa Express léegi mën nañu fa aw. pour hmm. pour participer ci ci ci mbir bi parce que Copa Express boo ko boo ko ubbee mun nga mun nga jaar ci Wave foofu mun nga jaar ci Free hmm. mun nga jaar ci euh, Orange Money mun nga jaar ci carte Visa hmm. donc da ngay tàppe rek fondation Walfadjri su ko defee mu yooyu yëpp mun nga fa jaar pour mun a cotiser euh, ba léegi Wave bi ña nga fa boo demee Wave dangay ngay dem euh, fi nga xam ne moo di payman boo tàppee paiement di nga gis fondation Walfadjri boo ko gisul nga dem ci barre de recherche ba nga bind fondation rek dina affiché nga jaar foofu joxe li ngay participer amul frais amul dara noonu nga koy defee ci Orange Money aussi Orange Money tamit da ngay def dièse 144 dièse nga def 5 étoiles def code marchand bi mu nekk 45 85 20 45 85 20 nga defaat dièse doo ko dugal sa sa code orange money hmm. soo ko dugalee ba pare nag nga topp mu mu mu guidé la nga mun a participer alors ñu fi jaar yépp nag wax naa leen ko kenn participer wul ñoom ñëpp kenn dugalagul day leer léegi ah. nag PM yooyu boo ca bi suba ma wax ne PM ci la bokk moom it dugalul <laughs> ah mu mu leer nañ ah dina dina dugal ah waaw voilà parce que parce bi ah. euh, bi tey mooy euh, euh, bu yàlla def bu ñu delloo ci ay weer ci kanam hmm. ñu ne hôpital sàngam hmm. wala dispensaire sàngam wala daara alxuraan sàngam Walfadjri mm-hmm. mm-hmm. ngi leen di taxaw à travers sa fondation wala juma sàngam Walfadjri ngi di taxaw à travers sa fondation mm-hmm. euh, comme ni ko ku mel ne euh, euh, sëriñ bi yore Sénico sëriñ bi sant Dia Ablaye Dia Ablaye Dia ni mu ko defee tabax kër jagleel ko alxuraan. alxuraan. Euh, mm-hmm. je crois que yu mel noonu dafa baax ci réew mi parce que maa koy wax bërki démb euh, ci chaîne YouTube Walfadjri. Mm-hmm. que euh, mm-hmm. war toll ci réew moo xam de la communauté. ko bàyyee ak état wala bi ñoo war a ko saytu bu ñu amee di ca def. parce que lu mu métti métti ñun ñoo fay yóbbu suñu bopp wala ñu yóbbu fa suñu njaboot su fekkee ne torof torof dal na leen. te bëgg a def. waaw lu lu lu am solo. alors Issa euh, sunu ganangoog. ñii seetaan xamuñu ko xamuñu fan la soqe ko xamuñu fu mu jaar ah Issa ci yow la ñu yaakaar pour mun a xam loolu. bisimilah waaw dañ koy euh, présenté rek ndax nekk na ko nga xam ne quand même yaakaar naa ràññee nañ ko ci réew mi ci poste yoo xam ne occupé na ko. Mhm. post ministériel la yoo xam ne xëy na moom dina si ñëw sax euh, ci ab lim ndax doon na ay poste yoo xam ne euh, yu ñu yu ñuy gis la ci ñiy ŋànk doxinu réew mi ci jamono yi maître Abdoulaye Wade ba bi nga xamee ne aussi ci la génn ci bi biñ leen gagné aussi mu jóge ca daal di toog lu yàgg nag daal di créer li nga xam ne moo di parti boppam parti boobule nag di UNP bokk jëmu. jëmm nag mooy foo xam ne fa la nit ñi di di jëm ginnaaw ba nag ci la nekk itam PCA bu Air Sénégal xëy na poste yi dinañ ci ñëw mais li ñu bëggoon a xam mooy kan mooy Souleymane Ndéné Ndiaye d'abord parce que nit ñi am na ñoo xam ne dañ koy gis rek bi muy euh, nekk ci wàllum politique boobu mais duñ xam ci wàllum jaar-jaar kan mooy Souleymane Ndéné Ndiaye xam nga saabu du fóot boppam mhm. waaye mën naa ne euh, man sama tur ni ko tuddee la Souleymane Ndéné Ndiaye maa ngi juddoo ca Kaolack 6 août 1958 euh, ñaari góor jur ma ñaari mbokk euh, suma yaay sant juuf dëkk Kawoon suma papa Modou Ndiaye Biram dëkk Diagane Barka. Diagane Barka benn village la bu nekk diggante Passy ak Djilor bu yàlla defee xaw ma kañ lay doon ma faatu man Diagane Barka laa. yàlla na yéex yàlla na yéex waaw. xam nga yàlla na yéex est-ce que dina tax mu yéex ah, bu jotee rek nga dem. <laughs> jullit ah, maa ngi passé suma enfance nag diggante dakaar ak Guinguinéo parce que sama papa assistant social la woon euh, dakaar laa nekk ba 1965 ma dem Guinguinéo fa laa nekk ba 1971 ma dem Kaolack ba 1975 ma dem Oussouye ba 1977 ma ñëw Diourbel ba 79. après mu ñëw dakaar falaa nekk nag diggante bi booba ak léegi bi ma nekkee tout tànk la commencé politique 1978 la xamante ak maître Abdoulaye Wade ca Diourbel hmm. parce que booba dañuy coupler élection présidentielle ak législative te jamono yooyu mois de février dafa amoon lu ñuy wax vacances cinq jour mooy vacances premier semestre yi ñu daan def hmm. mu tombé campagne électorale ma su suñu kër Euh, mu ngi woon man ci gaar bi laa dëkkoon gaaru Diourbel papay maître Ciré Clédor Ly avocat avocat man ak Ciré Clédor Ly on est des amis d'enfance papa moom a yar mhm. alors mais Ciré était à saint lui au lycée Charles de Gaulle mhm. euh, man ma nekk Diourbel donc février 78 ci laa xamante ak maître Abdoulaye Wade mais maa ngi ko miin parce que euh, bi ma amee baccalauréat ñëw université mhm. dama bokkoon ci mouvement étudiant bokk amicale des étudiants la fac de droit nekk président commission culturelle di organiser conférence yeeg yooyu. alors dama doon def TD nag euh, après 18h30 professeur Serigne Diop au même moment. Mhm. mu am ay TD. Sadaxta waaye moom lañ daan wooyee Sadaxta. Mhm. ndeysaan waa ji ko daan wax sax xamatuma fu mu nekk. Mhm. alors prés euh, euh, professeur Serigne Diop moo ma yóbbu ci Ablaye Wade ndax moom ma booleeg Maysa Sall Maysa Sall présenté ma maître Wade. Euh, sam papa UPS la bokkoon UPS PS. Mhm. Mhm. parce que demoon na ba nekk adjoint au maire de Guinguinéo bi muy gaañ. mais boobu man mënu ma dem politique yi Guinguinéo à la base dama nekkoon rek ci structure euh, yeneen yi. Mhm. UJT bokkoon naa direct directoire national bu UJT man ak ñoom Joseph Ndong Birgile Fall. et cetera. gannaaw gi ñoom Modou Diagne Fada bi ñu ci tolloo ñu fekk ñu fa après ñun ci la ñu génn UJT alors. Euh, ma nekk conseil municipal à partir de 1996 ak Guinguinéo am naa ñetti mandat conseil municipal ak ñaari mandat maire hmm. nekkoon naa aussi vice président conseil régional bu Fatick nekk naa aussi conseil régional bu Kaolack parce que xam nga euh, réforme 84 bi hmm. dañ jëloon Guinguinéo rattaché ko ci région de Fatick loolu président Wade moo ko fi jëlee 2008 je crois alors bi ñu dellu si waatee région de Kaolack man nekk conseiller régional Kaolack en même temps ma nekk maire Guinguinéo suma mandat Guinguinéo mu ngi jeex en 2014 bi ma amee ñaari mandat alors euh, bi ma nekkee tout tànk ci laa tàmbali politique donc ci la ma metre Wade xam ràññee ma ba bi l'an 2000 jotee bi ñu gagné euh, man premier avril 2000 laa ko gëjoon a gis bi ñu bi mu demee prêter serment bu ñëwaat këram ci laa ko gëj gis ba benn bés rek mu jaar ci benn waaye benn suma benn xarit ñoo nekkoonoo UGT Adama Ba mm-hmm. ne ko waaw ana Souleymane Ndéné. qui était qui était maire de Fass Global. exactement Adama Adama ne ko mais xaaral ma wutale numéro mu wutal ko sama numéro jox ko ko booba portable yi amagul woon ay 77 da ngay def rek directement 638. et cetera donc may liggéey lundi matin ma am audience référée rek madame kat woo ma. Hmm. ne ma ma gis benn numéro bizarre d'ailleurs <laughs> bu ma xamul. booba kenn aayewul nga yor téléphone portable di dawal ma droité mu ma fekk juste. porte du millénaire. ma droité pour mën a dégg après ma tëj sumay vitre. Euh, ndaw si ne ma ne quittez pas avec président ma ne ah oui président bon ma jël président ma ne point moi déglu président. mu nuyu ma mais yow foo nekk da nga tu as disparu. Euh, waaw alors est-ce que tu peux passer me voir suite ma ne ko waaw mun naa jaar léegi mais baay may ma ma jaar audience dénkaane sama rôle. samay dossier donc ma jaar tribunal dénkaane sama. dossier nga raccroché ne sama affaire baax na. non non xalaatuma loolu sax parce suma affaire baaxoon na j'étais avocat j'ai gagné bien ma vie. gën a baax. gën a euh, baax gën a baax mais di dawal ba mu yàgg président woo ma. ah waaw loolu kay euh, surtout que gëjoon naa ko gis. <laughs> avril ba presque mois de juillet août. Mhm. bi ma demee seeti ko ñu waxtaan. Euh, li ma ko njëkk a tudd mooy route Kaolack bi booba. waaw ma ne ko président daal ñun xamul lu ñu soxla. Mhm. la route entre Mbour Dakar Mbour Kaolack dafa yàqu complètement mu ne ma woy woy jógal kañ dem ñu jóg ci table bi mu ne ma gis nga dossier bi. Mhm. xam nga yaa ngi gis route de Kaolack. mais Union européenne dañ may exige que ñu choisir l' entreprise qui a le plus de route au Sénégal et en Afrique mu ne ma xam nga entreprise entreprise tubaab rek la mën a doon. kese te d' accord uma ci loolu. Mhm. alors donc après mu wax ma li may doyee li ma daal daf ma bëgg a nommer ambassadeur du Sénégal à Paris wala porte parole. Mhm. ma ne porte parole luy porte ne ma daal. da ngay xool internet nga xool madame Catherine Colonna. Mhm. elle était porte-parole du président Chirac. Mhm. Mhm. alors mu ne ma mu expliqué ma ne ma nag soo bëggee def carrière politique aussi tu restes à côté de moi mais su la neexee nag nga dem. nga dem ma ne ko waaw mu ne ma demal tu as une semaine pour réfléchir ma dem réfléchir bi ma génne nag moo woo suma ñaari xarit. maître Leyti Ndiaye ak Macky Sall ku ci ne jox ma sa opinion bu ma dem ma toog. mardi bi c'était un lundi donc le mardi suivant. Mhm. ma demaat ma woote pale wax aide de camp bi ne ko maa ngi ñëw alors président waat dugg si gis ma ne ma ah saa waay alors ñëw nga waaw alors loo loo tànn ma ne ko non bi ma tànn loolu. <laughs> parce que moo ma ne woon. <laughs> boo bëggee am carrière politique da ngay toog sama bari mu ne ma tànn lu ma la benn na. Ah. ba écoute <laughs> attends-moi cinq minutes ma recevoir ñii. Mhm. mu dem parce que booba les bureaux étaient en réfection. Mhm. il recevait chez lui. au palais. Mhm. xam nga dañuy distinguer palais ak présidence. la présidence et le donc bu dem recevoir gars yi au bout de 30 minutes après il revient mais entre temps il demande au son aide de camp d' appeler Ousmane Masseck Ndiaye yàlla ko yàlla yërëm moo nekkoon secrétaire général présidence. Mhm. de Saint-Louis. Euh, Ousmane ancien maire de Saint-Louis. donc Ousmane ñëw on se connaissait déjà parce que Ousmane euh, moom moo ko woon parce que on était ensemble et cetera. Kader Sow qui de cabinet de Wade ah. Kader Sow Kader Sow. je moom laa remplacé man. Mm-hmm. alors donc euh, bi ma ko waxee ne ko euh, porte laa jël immédiatement mu ne Ousmane donc fel le nécessaire donc il a pris un acte il a préparé un arrêté donc mu nommé ma mais il fallait que ma évacuer dossier yi ma amoon. en mm-hmm. instance. Mm-hmm. il fallait donc ma gaaw yi nga xam ne moom. parce que xam nga parfois renvoi dañ ko dañuy renvoyer dossier ay 3 mois. donc yi gënoon jege ma gérer leen yi ci des am benn boy bu ñu ma booleel pour mu jël sama cabinet ma jox ko dossier yi ci des c' comme ça que je suis venu au palais. alors ma nekk fa nag euh, diggante 2000 ba mille 2003 boobu nag palais bi xawoon na jax. Mhm. ndax euh, ci lañ doon wax. affaire yi coup d'état rampant Idrissa Seck et cetera moo ko fi génne woon ah coup d'état rampant waaw Mahmoud Saleh moo ko daan mm-hmm. wax alors mais xam nga comme ñun miinoon nañu Ablaye Wade ba soxlawuñu woon jaar ci directeur de cabinet pour gis ko mm-hmm. man Pape mbub far ba Senghor donc dañu dañu amoon accès ci président ma mm-hmm. bu fu président dem daf ñu yóbbaale alors euh, Idrissa miinu ma ko woon nag wax dëgg neex yàlla miinu ma ko woon parce que bokkuñu trajectoire ci parti bi Euh, bon gars yi commencé di ñu opposé ñu di ñu wooyee les faucons. wa ah kon groupe faucon ya. groupe faucon ya à ah, l'époque bon ci noonu euh, ba le avril mhm. président Wade nommé Macky Sall premier ministre. Macky Sall ñëw sama bureau. Mhm. ne ma nañ dem je vais te nommer ministre de la jeunesse et des sports. fekk na Farba Senghor ñu nommé ko ministre de la solidarité nationale. Mhm. ma ñëw ak Macky bureau président wadd mu naan ah, non non non tu ne pars pas hein jóg madame Baye donnez-moi la liste monsieur le Premier ministre signez ici non non non Souleymane Dolem tu restes ici bon Macky <laughs> ne ma ça va affaire bi de gis nga de. Mm-hmm. bon ma nekk ministre conseiller ma nekk fa euh, presque un an ma xëy benn jour rek président Wade woo ma oui Souleymane je pense que je vais te nommer ministre de la fonction publique. Mm-hmm. nommer ministre de la fonction publique du travail de l'emploi et des organisations professionnelles. Mm-hmm. ma nekk fa tombé ak euh, la retraite à 60 ans projet bi Yorodé moo ko mëne moo ko moo ko vraiment. Yorodé moo def liggéey bi yëpp Yorodé. Mhm. c' était un modèle de ministre de la fonction publique c' était le prototype même. de de l'homme qui savait dialoguer xam nga Yoro est poli. bi tey Yorodé moo mënee les négociations bi CNTS di tas. exactement mhm. moom moo ne ministre de la fonction publique. waaw ku baax Yorodé wax ne bu daan dem conseil des ministre diggante building beeg euh, bureau fi ñuy defee conseil bi. du ci jël oto da koy dox. non comme man dama daan dox modestie extraordinaire. man dama daan dox. alors donc j'ai remplacé René à la fonction publique. Mm-hmm. alors ma ñëw nag fonction publique tase fa aussi ak ma Sock qui était mon ami dont j'ai été l'avocat. Mm-hmm. Euh, vraiment muy secteur bu ma neexoon ndax euh, fa la xamee Pa Madja Diop Pa Alioune Sow. Mm-hmm. ak euh, Mademba xam Mamadou Diouf CSA xam Cheikh Diop CNTS FC. c'était les grandes centrale absolument ak yeneen nag syndicats mhm. ci yaa xam ñi ñëpp ci laa leen xam. mais man teg fa six mois rek paa bi woowaat ma saa euh, waay damay wut directeur de cabinet gars yi nee nañ mën naa la jël mu ne ko ah bon ah président bàyyi ma fële waaye parce que fee commencé naa ko miin ah bon mhm. koo may booleel koo may recommandé ma ne ko Alioune Badara Cissé mu ne bon écoute euh, réfléchis encore benn week-end ma dem Thiès toolu Mor Diouf su ma benn xarit. Mhm. dafa ma woon ma ñëw xool toolam xool mang yeeg yooyu ma nekk ci tool bi rek c'est Macky qui m'appelle mais yow euh, Souleymane bi loo wax président nag est-ce gisaguloo ko ba léegi ma ne ko si si gis naa ko. Hmm. mu ne loo ko wax ma ne ko non man daal Macky bàyyi ma fële quoi naa toog Macky était le premier ministre. ma ne ko mu ne ma yow tam premier ministre yow tam ministre de la fonction publique ak directeur de cabinet c'est pas la même chose ma ne ko waa léegi mu ne ma ma ne ko lu may def mu ne may wool président boo ko gaa gars yi dañu koy jël de. Hmm. ma woowaat président Wade. alors da ngay jël ba ne ko waaw <laughs> mu ne d'accord ma jógee ci Modou Diouf euh, dem seeti ko. Hmm. mu ne waa mais tey samedi la ñuy toog mënu mu jël benn acte da xaar ba lundi kay <laughs> ma ne ko ok kon ba lundi lundi ba mu nommé ma ne ma nag du ma def ministre d'état de ministre laa lay def mu ne ma garatu ministre d'état da koy mérité <laughs> ma ne ko amul problème. Hmm. donc ma nekk fa un mois rek ma ñëw benn après-midi mu ne ma yow. sa waay yow est-ce que da sonn ma ne ko bu baax damay sonn. Hmm. mais bés bu ma la wanee bëtug sonn rek nga ma. mu ree dama je vais téléver au de ministre d'État mhm. ma dem préparer acte bi ñu lu lendemain ñu ne conseil des ministres mhm. man président ak premier ministre Macky Sall mhm. ñoo daan dem euh, bureau am fële ci pale ba ñooy ànd ñëw donc bi ñëwee fu mu ma non je vais signer ça euh, dans la salle quand ci biir salle bi ma jàllale ko ci gannaaw Macky noonu jox ko euh, décret bi mu ne bon gars ñi je vais moo mon directeur de cabinet au rang de ministre d'État ci la ma def ministre d'État ma nekk fa pendant deux ans ba élection 2007. j'étais c'était c'était fatigant nag parce que da ngay liggéey de 9 heures du matin à 4 heures du matin. Mhm. ak président Wade. 9 heures ba 4 heures du ba 4 du matin weeru koor taf taf ngeen lekk benn tàndarma euh, naan euh, benn euh, kaasu ndox. Mhm. et puis da ngeen continuer ba 4 heures du matin tous les jours je ne voyais jamais mes enfants le mercredi la ñoom dañ daan ñëw di ma seet sama bureau parce que je mangeais dans mon bureau. donc ma nekk fa donc 2007 bi après les élections euh, législatives de juin 2007 ma ne ko président vraiment je veux partir parce que mënut sonn naa quoi. Macky aussi dem mu ne ma bon tu vas aller à l'Assemblée nationale ou au Sénat ma ne ko bugguma assemblée bugguma Sénat <laughs> mu ne mais foo bëgg na ma ne ah je ne sais pas hein. may dem mu dem dugg bureau ubbi tiroir bi génn benn liste ne ma bon voilà léegi daal ministre de l'environnement moo fi des et de la protection de la nature. yaa hmm. xam. am était premier ministre premier ministre ma toog ba après midi rek Agibou woo ma ma dem mu ne ma voilà le président mu ne ma naa la euh, proposer euh, poste ministre de la fonction de l' ma ne ko d' accord ma jël environnement ma toog environnement deux mois rek président woowaat ma bon Souleymane écoute euh, je je veux le port ma ne ko ban président bu ma jëlee fële waay ah mm-hmm. fee toogagu ma fa sax. Mm-hmm. <laughs> bu ma fa jëlee waat bon mu ne ma non il faut y ma dem foofu. quoi il y avait beaucoup comme de réformes. DG du port. comme non non comme euh, ministre de l'économie maritime, maritime, maritime de l'aquaculture et de xawma lan. la mhm. pisciculture. Mhm. ma nekk fa nag deux ans. ñu def élection locale 2009 ñu ñëw campagne électorale à Kaolack. xam nga boobu fekk na ngeen engagé le combat contre Macky Sall état boobu da nga ko. non non man je n'ai jamais engagé de combat contre Macky Sall. waaw c'est un régime. Oh, oui euh, bon et d'ailleurs je vais vous dire. je vais oui. vous dire c'est pas un secret. mm il y eu ces difficultés là. je suis allé voir Macky Sall. mais mhm. bëgg woon dem man rek dama ànd ak aw Diop yàlla na ko yàlla yërëm. mu ngi ci dëgg maa ngi ci mhm. ma ànd ak Awa Diop ma seet fekk ko mu ngi dëkkoon euh, ci booru ambassade Italie foofu logement boobu mu dëkkoon. Mhm. ma ñu ne ko saway dama lay suggérer nga démissionner mu ne ma démissionner ma ne ko oui démissionner président war amatu ci yow confiance bàyyi da ngay gedd premier ministre gedd assemblée assemblée. non da ngay gedd assemblée gedd parti bi numéro 2. Mm-hmm. Mm-hmm. numéro 2 du parti mu ne ma non non mu ne ma non je vais réfléchir alors ñu daje quelques jours après à l' aéroport mu ne ma Souleymane je ne démissionne pas je ma ne ko ah mm-hmm. bu ma seetaanee da xam ne li may wax ni bon après euh, ma dem benn mission Indonésie ma dégg ñu ne euh, am na ku ko yóbbu sëñ Baara. sëriñ Baara dem na sëñ Baara sëñ Mouhamadou Lamine Baara. mu ànd ay Doudou Wade dem na sax benn mise en scène à la télévision ñu ne léegi jubóo nañu. Hmm. tu parce que moi j'étais très mal à ndax gars yi bu ñu toog di jëw Macky Sall bu ñëwee <laughs> dañu noppi. waaw parce que xam nañ ne ay xarit. waaw xam nañu ne je c'est pas à, à moi à aller lui rapporter des choses qui se disaient. du ma ko hmm. def hmm. mais nit ñi dañu naan non vraiment. Euh, oui. par pudeur du ñu wax Macky Sall loo xam ne Souleymane daf koy fekkee bon tout le monde n'était pas d'accord ku mel ni Pape Samba Mboup moom dafa doon manifester hostilité à cette décision la mhm. te ñi ko ñi bokkoon ci complot bi d'ailleurs am na benn euh, réception yi président daan def en janvier mhm. janvier 2008 mhm. xam nga euh, euh, du temps du président Diouf corps constitué yi dañ doon défilé président Wade nag daan dajale ñëpp salle des banquets amul discours day ñëw rek gars yi nuyu ko mu souhaité mu présente leen ay vœux et cetera donc ce jour-là ci la xam ne la rupture était consommée d'ailleurs Macky n'a pas participé à la réception dafa ñëw nuyu mm. président Wade rek dem les députés n'ont pas voulu se mettre derrière lui alors te boobu mooy président assemblée mooy président assemblée nationale et ci la Pape Samba Mboup déconné ci biir salle bi am ko calmé ko mais Mboup yow tu parles fort li ngay wax gars yi koy dégg mu ne non non non ñii li ñuy def Abdoulaye santu leen ko déconné foofu mm. vous pouvez l'inviter ngeen mu raconter leen cet mm. épisode là tu vois donc ñu teg ci tuuti Euh, quand j'ai appris que Macky dafa def conférence de presse bu génn PDS je lui ai envoyé un, message ne ko saa waay bul dem on mène le combat à l'intérieur eh, mu ne ma Souleymane mënatuma toog damay dem ma ne ko bon d'accord ok ça c'est ta décision bon ñu def élection locale parce que da nga ko njëkk conseiller pour mu dem pour mu démissionner après pour mu démissionner non non non après nga waxaat ko mu rester non quand il m'a dit qu'il ah. quittait toutes ses fonctions mm-hmm. maire de Fatick tout parce que waxuma ko mu démissionné PDS. ok dafa ne ma je démissionne du PDS je pars. ma ne ko non bul def loolu. ok da nga ko waxoon mu démissionné yële ndombal tànk. ndombal tànk bi tekki ko démissionné démissionné poste numéro 2 mais qui reste dans le parti qui reste dans d'accord mu ne moom il part. ci la créé APR ak ñoom Badara Cissé. Mm, Moustapha Cissé euh, Lo Moustapha Cissé ak ñi mu àndaloon ñëpp. Mm-hmm. alors ci la dem donc élection 2009 bi ñu ñëwee. il a gagné Fatick. Mmh. moi je faisais partie des rares responsables man ak Oumar Sarr à avoir gagné nano base. Mhm. man jusqu'en euh, premier tour ak deuxième tour yooyu j'ai ak Guinguinéo. Mhm. alors donc bi ma gagné élection yi fekk que ci biir campagne bi quand le président Wade est venu à Kaolack euh, man dama tardé añ mais bu ma ñu mayoo ma toog di añ gars yi toog ci salle bi après président génn ñëw ne Souleymane yow kañ nga bëgg ma ñëw Guinguinéo man président baal naa la mu ne ah mu ñëw campagne électorale Guinguinéo ma ne ko non moom. on va gagner gars yi ne waaye bàyyi Soumbay bàyyi paa ñëw jàppale la man leen on va suñ kanam la nekk suñ ginnaaw ñu def élection ma gagné j'ai appelé El Hadj parce que dama dégg Pape Alé Niang di joxe résultat yi ma woo El Hadj Ndiaye ne ko waxal Pape Alé Niang mu woo ma El Hadj ah, Pape Alé Niang oo mm-hmm. le maire ma ne ko waaw ah, man fii de gagné nañ 46 conseillers lañ doon wut mm-hmm. am nañ 40 yi on avait gagné presque euh, score soviétique yooyu la ñu amoon mm-hmm. ak Guinguinéo alors bi ma ñibbisee en mars 2009 ma seeti président Wade mu ne mu la nga waxoon am na de am na loo xam ne mënu ma ko wax parce que <laughs> euh, c'est assez grave. Mhm. Euh, mu ne ma bon de toute façon. Mhm. yow dinaa def premier ministre. mu ne ma nag il faut garder le secret parce que gars yi sama bàyyi neewoon na ma bu gars yi xamee foo jëm doo fa yegg de. Mhm. Mm. ma ne ko président li nga ma wax dugg na fi génn mu ne ma bu mu génn bu duggee fii rek da nga koy. <laughs> da nga koy <laughs> da nga koy tëj alors on a après ba 30 avril 2009 mu def ma premier ministre mais premier ministre boobu nag xam nga gars yi moom comme mos na ma ko wax dama gars yi boo jógee rek ñu ngi lay dóor ay bal hmm. deux jours après woo na ma fi ma dem bureau xaw naa gedd sax parce que li ma wax ñu kenn xamul naan ma man maa dem euh, benn leelitu xadar naan suñ euh, euh, sëñ Abdou Fattah Falilou maa ko suggéré mu def un appel au président Wade pour ñu juboo ak Macky Sall alors que man gisante wu nuyoowuma ak sëñ Abdou Fattah hmm. président Wade wax la loolu. wax ma loolu. dama on lui a dit. ne loolu lañ ko wax. ne loolu lañ ko wax ensuite bi ñuy ubbi TFM. Mhm. ñu ne man maa dem foofu di di sang gars yi opposants yi parce que xam nga ñun ñëpp on était des gaajo mhm. euh, Gadio Macky Sall Youssou Ndour mais bu ma ñëwee foofu war a wax mais du ma ñëw di ñàngal di wax ay wax. c' ma wax la ak Baratal ñoom mhm. ñëpp. gars yi woo ko fekk mu nga France xaw ma fu mu nekk gars yi da ko yii président Souleymane mii. ay hmm. affaire am ndax ni mu doon sangee opposants yi. président woo ko ni mu loolu. non xam nga PDS hmm. le PDS fonctionnait comme ça boo jiitoo rek gars yi ngay dur ay bal. Hmm. ñu dagg la. voilà boobu bu yëg ñu yàgg mais comme le président Wade ma connaissait suffisamment pour savoir que j'étais très loyal. du ko wor du ma ko hmm. trahir. d'accord mais bala ngay sori ci ci primature dafa am lu ma bëggoon ñu ñu dellu ci euh, da nga wax sànq ne euh, da nga bokkoon ci groupe gu ñu doon woowee les faucons. waaw maam Birame ñun boobu ay ay reporter lañ. Hmm. les faucons mënoo woon a tijji journal te te bindoo ci ñoom. mais dafa am benn étape mooy bi ñu agressé Talla Sylla. ñu ne les faucons du palais. ñoom ñoo ko def non c'est pas vrai et am na ñu ci cité woon sax turu Souleymane Ndéné Ndiaye bon j'ai été convoqué à la gendarmerie ah, voilà ils m'ont même demandé mmh. ils m'ont même prétendu que mmh. gaa ñi agressé sama kër lañu reeree parce que j'habitais à Fenêtre Mermoz ñu woo gendarmerie woo nañu ma gendarmerie entendre alors que euh, bi ñuy agressé Talla Sylla c'était à la veille ou à l'avant-veille de l'ouverture des classes moi j'étais à Guinguinéo j'étais même pas ce que j'ai dit au euh, tu vois donc c'était tellement évident que Talla Sylla man sama rakk la j'ai été avocat Talla mhm. du mais man du ma jóg di agressé ay nit rek booba romb naa loolu mhm. tu vois donc euh, moo tax man en ce qui me concernait en tout cas amul benn suite tu vois faucons yi mhm. euh, li tax ñu doon ñu wooyee faucon parce que pensaient que ñun ñooy dugal de mauvaises idées dans la tête de Wade ce qui n'était pas vrai parce que Ablaye Wade euh, boo ko xamee Mhm. doo ñëw ci wetam di yàq deru nit parce que dina la taaj taaj kooku am na benn journaliste bu fi mosan nekk mhm. mosa dem ci moom di yàq suñu der mais xam lu mu ko def mhm. mu toog taaj daf lay taaj ne yaa ma wax ni ci kii ak kii ak kii ale dellu ci d'accord léegi suñ delloo primature wax nga sànq ne euh, nekkoon nga avocat wu Walfadjri ak avocat wu Souleymane Jules Diop mu am lu ma fàttali quand même Souleymane dafa mas a wax ne bi nga nekkee premier ministre da nga daan teg coon seek sa bureau di fecc ba <laughs> euh, di di di fecc ba secrétaire bi ñëw ne la. non monsieur Provis gars yaa ngi dégg sa sa pàkkar ñuy ci biti. xam nga <laughs> mais euh, yaa tudd Souleymane Jules Diop moo tax sama xel ñëw ci. xam nga loolu moom. oui calomnie la. Mhm. Souleymane Jules Diop. Mhm. mos naa déglu euh, kii yëpp yooyu mu doon def. waaw la la mo eh, bi de. live bi gars di def nii di di di saaga ñu koy taas. waaw Souleymane Jules Diop moo ko génne. ça c'est vrai jël sama numéro téléphone. sama numéro téléphone. def ko ci live bi. def ko sa numéro téléphone sama numéro téléphone de Souleymane Ndéné moom suma xarit waaye dafa saay saay rek <laughs> mais xam nga premier ministre. amuloo jotu. déglu musique di taal musique sama bureau amuloo sax ma magnétophone parce que à tout moment tu es charbon ou bien yaa ngi signé ay dossier mm-hmm. wala yaa ngi def jël ay audience wala yaa ngi réunion ak président mm-hmm. à tout moment amuloo benn temps boo xam ne da nga libre bi di mën a def ay activités yu surtout ñàkk fay dawee man du ma koy jóg naan damay fecc ay <laughs> machin Thione Seck c'est vrai je l'aime bien je l'aimais toujours mais mais mi ngi woon ci benn benn ligne non mais loolu quand même mënu ma mënu ma def yooyu yaa ngi woon ci benn ligne dañ la jaxase ak président Abdoulaye Wade oui woo ko ne ko yaa nekkoon TFM di def noonu voilà c'est passé alors non non non après je lui ai dit gis ma loolu laa gëm gëm naa la ma gis nga si je pouvais vous raconter ce que les gens me disent sur vous par jour du ngeen ko sax gëm donc xam nga président dafa amoon plusieurs sources d'information mhm. et am na ci ñoo xam ne dañ ko daan nax y des gens qui faisaient des bulletins pour lui eh di di di ko embarqué ci ay ay ay erreur yu bu rëy rëy rëy parce que xam nga un président mhm. n'utilise pas que les services de renseignement classiques non président di am source d'information yu bari yu bari am na ci ñoo xam ne nag c'est des agents doubles tu vois dañu ñëw di nax président. est ce bokkoo si ñu ko doon nax monsieur le PM. ma ni est ce que bokkoo si ñu ko ah, doon nax monsieur le PM parce que ba mu nekkee ci euh, logique gu troisième mandat ñu mel ni yow ñu ñoo ko doon défendre ci plateau télévision yi. Mm-hmm. mais alors xam nga euh, moi je suis juriste xam nga yow juriste nga wala doo juriste. jàng naa ci tuuti. jàng nga ci tuuti. Mm-hmm. ci constitution bi nga xamee ne. ci mm-hmm. la ñu fal président Wade muy constitution 2001. 63 waaw la constitution du 7 mars 1963. Tivaouane bi ñu ko modifié en 2001. Mhm. dafa amoon benn disposition bu ñu defoon ci constitution de euh, janvier 2001 benn disposition transitoire qui permettait au président Wade non pas de compter son premier mandat qui a couru de 2000 à 2007. Mmh. comme un mandat qui devait être pris en considération mais disposition transitoire bi. Mhm. dañ ko libéroon de telle sorte que mandat ba bokku ci. loolu mbaa non non ah je ne sais pas. ñu <laughs> daloon lu ñu dalaat je ne sais pas. mais en tout cas. Hmm. Euh, ñun pour en hmm. avoir le cœur net. on avait amené ici de grands constitutionnalistes les meilleurs du hmm. monde. pour que ñu plancher sur la question. Mhm. des meilleurs selon vous parce que Idriss Seck aussi indi woon na benn constitutionnaliste bu mag boo xamante ni. kenn mënul Carcassonne la tur defe inter interrogation bi yegg na Sénégal donc mën nañu jàpp bi nga xamante ni moom la bëggoon jàllale Sénégalais mooy que président Abdoulaye Wade. aussi waxuma sax waxu mais bu ñu sukkandikoo ci cadre euh, président Abdoulaye Wade rek yu mu jotoon a euh, yu mu jotoon a wax mosoon na ni que moom mënul def li nga xamante ni mooy beneen mandat donc moom juriste la. mais terewul ba mu bëggee def deuxième mandat wala troisième mandat boobu mandat de trop bi yéen je ne euh, pense pas que ko ko si génne ma ne te aussi y a eu des morts onze personnes yoo xamante ñu ñàkk seen bakkan dans une indifférence totale mais bien sûr bien sûr ku manifester te warul waruloo manifester bu ñu la reyee mais écoute euh, la mort mm-hmm. la mort des êtres humains oui. est toujours un événement douloureux pour tout le monde mm-hmm. Sénégal warul ñu euh, euh, parce que dañuy contester li muy am ay mort d'homme donc c'était vraiment regrettable sur la mort de Mamadou Diop mm -hmm. parce qu'il était étudiant il est venu manifester pacifiquement mm il a été heurté par un véhicule de police tout ça était déplorable mais je continue à croire mhm. que le président Wade avait bien raison de postuler pour un troisième pour un autre mandat jusqu'à présent personne n'est parvenu à me convaincre qu'il pas droit à ce mandat est droit loolu moom du ci wax du ci wax. damay bàyyi Macky waxal ko boppam. boo ci waxee da nga ragal ñu jël la si euh, PCA. ci aéroport ragalu amul lu may ragal. ah bu nekkee ragaloo. ma euh, monsieur le PM. Euh, mais du yow yaa ma koy wax loo. c'est une question fermée qu'on pose. parce que c'est pas une question fermée. man maa la koy poser question fermée. oui est que tey jii président Macky pourquoi. parce que je ne veux pas répondre à votre question. bu ko privilégié dañ. ma ne je ne veux pas vous répondre. est-ce que vous êtes mais est-ce que vous êtes candidat ay ay ay ay dix millions la vingt millions la mais yaakaar naa ne am na lu ko gën mooy sa kàddu. ma ne je ne veux pas répondre à votre question. léegi Pape Makhtar nañu wax ndax euh, il est Vous êtes candidat en 2024. Mais ça sert à quoi de venir sur un plateau de télévision si on euh, si on veut pas répondre c'est pas vous qui m'avez invité ici. Mais ah, pas Makhtar. S'il ne restait que vous pour m'inviter, je ne viendrais pas. Mais il fait partie <laughs> des des eh, moom dafa bokk ci plateau bi am na droit invité la parce que gënam nga instant bu ci bu ci bokkee ah, waru ko may droit mu di ma obligé ma répondre ci lu ma bëggul je ne peux mënu ma la obligé à quoi que ce soit mais bu ñu ñëwee ci plateau di waxtaan yaakaar naa aussi war nañu mën a euh, échanger échanger échanger yoo xamante ni vraiment euh, damay damay damay joxe ay question wax nga si je je dois me soumettre à vos désirata non non non. Euh, mais par contre est-ce que ah, mën nga tontu si est-ce que boobu monsieur le premier ministre. est-ce que di nga nekk candidat en 2024. ah ça je ne sais pas encore. xanaa gi je ne sais pas encore. su ko su ko déclaré Macky Sall ndax peut être pas Matar benn question. il faut mu répondre aussi déclaré woon waaw mais xam nga nekk candidature à une élection présidentielle dafa am ay prérequis fam lu mu laaj lu bari est ce que d'ici là dinaa mën a. remplir condition yooyu je ne sais pas encore mais sama bëgg-bëgg lan moo la animé woon jamono yooyu ba nga waxoon ni que euh, vous êtes candidat sama bëgg-bëgg la woon sama yéene la woon est-ce que donne fi newoon na fi nekk ba léegi hmm. la seule chose qui a ah, de Macky Sall non non non moo ni oui ni non Sall man liewu ma ça je vous le dis hmm. du loolu moo la tënk aussi ba bëggoo tontu ci ndax troisième mandat Macky Sall d'accord waaw ma ne troisième mandat Macky Sall. Mhm. je ne peux plus bavard que Macky su ci Macky waxee. man dinaa commenter li mu wax. mais en tant que bu ma lay laaj. tey jii man mi nga xamante ne profane laa ci droit xaw ma dara. may laaj euh, ki nga xamante ni mooy maître Souleymane Ndéné Ndiaye bi nga xamante ni kenn mësul gis procès bu mu gagné ma lay laaj par exemple ni la. gagné <laughs> kenn mësul yëg procès boo gagné. ma lay laaj par exemple yow la nga may invectiver wala lan nga yow vous êtes quand même incorrect hein. ah mais bien sûr. comment pouvez-vous tout de go me dire mosuloo gagné procès. dama ko yàgg mais vous n'êtes pas poli d'accord hein. d'accord loolu. ne me parlez plus comme ça. sinon je fous le camp. loolu ay non non non non s'il vous plaît. waaw ak yar. d'accord boo ko deful je fous d' accord mën naa yeggal sama question te du ma. non attends s'il vous plaît. allez-y réewande gi may jaay mën naa ko jënd ah. du ma yeggal yow foofu yow da nga xam man ñaata procès la plaidé. du ma yeggal yow foofu yëpp. ma dama ne xamuloo man lu ma plaidé lan la. d' accord procès bu ma gagné. d' accord léegi je. s'il vous plaît s'il vous plaît. waaw d' accord monsieur s'il nag déglu-moi c'est à vous à m'écouter. Ah, bien sûr je vous écoute. vous me parlez correctement. convenablement je vous convenablement. d'accord si vous voulez que le débat se poursuive. d'accord da wax man convenablement. d'accord ak teranga. d'accord mais réew ba ma ko ma jënd ko ah. du d'accord merci beaucoup je retire mes propos. je dis tout simplement que yaa ngay gagner procès alors léegi li may li may laajte man mi nga xamante ne profane bu ñu xoolee ci constitution bi nga xamante ni jot nañ ko réviser mi constitution bi nga xamante mooy bu 2000 2000 euh, bu ma juumul ba tey est-ce que président Macky Sall am na sañ-sañu mën a def troisième mandat ci droit. man ngay la question boobu. oui je a pas à votre question. d'accord. ok d'accord euh, monsieur le euh, dañoo gisoon sa courage politique bi nga amoon ci jamono ji nga doon wax nii doo nangu kii di Karim Wade jiite la lan moo la animé woon. <laughs> loolu c'est Euh, <laughs> c'est le passé c'est le mais passé mais bëgg nañu xam. il avait euh, dit je me rangerai jamais derrière. derrière ce xam nga loolu lu ko suscité woon dama woon benn chef de cabinet dañu ñëw à la veille des élections locales de 2009. Mhm. te ñëwul indil ma dossier alors quand je l'ai interrogé mu ne ma génération du concret la bokk ma ne ko mais ñooñu dañu am parti politique léegi mu ne ma non euh, mais dañu bokk élection. ma ne ko bon d' accord j'ai appelé mon directeur de cabinet ne ko kii jëlee jëlee parce que il n'est plus avec moi parce que tu ne peux pas être avec moi et être à la génération du concret mm-hmm. c'était ça alors quelques jours après pour ma fësal loolu euh, un journaliste du quotidien la benn euh, journaliste bu nekkoon quotidien Pape Samba Rendou est venu m'a accordé ko interview il est venu m'interviewer mm -hmm. alors il m'a posé des questions qui ont amené cette réponse là parce que ak jaar-jaar bi ma woon PDS mënu moo ñëw rek di bokk ci euh, parce que euh, doomu Ablaye Wade moo jiite kuréel googu ma ne damay ne bokk ci kuréel googu du ma ko def hmm. maa magoon loolu hmm. am na lu ma lu ma jaaxal également euh, Souleymane Ndéné Ndiaye man dama remarqué def naa je crois que bii mooy suñu ñetteelu émission hmm. ñëw naa interviewé la sa kër mais dama remarqué benn chose mooy da nga am tendance à s'emporter Euh, li Pape Mokhtar wax sànq il l'a dit sur le ton de l'ironie est-ce que jar na yu mel noonu un journaliste interpellé la sur des choses yoo xam ne mën nga ko évacuer facilement mais da nga soxla di emporter wu et pourquoi Souleymane Ndéné à ce tempérament xam nga wax bu ne ak tonton. Mhm. quand lui qui ne me mhm. mosuloo gagné procès c'est parce que daf bay daf ma yàpp moi j'ai plaidé combien de dossiers. Mhm. dans ma vie mosuloo gagné procès. moi je sais que du yabel. non yabel la. du tout pourquoi ci plateau télévision. muy wax ak man man ma mag ko fuuf mu naan mosoo gagné procès ni mu ma waxee laa ko tontoo gis nga. Mhm. man ku ma jaay réew ma jënd ko. d' accord du affaire <laughs> mhm. boo ma jaayee réewande. Mhm. man rek ma jënd ko ma. a yegg foofu parce mooy. li tax mooy correct. li tax mooy. Euh, Moustapha oui homme calme. je suis homme poli. je dépasse pas les gens. mais c'est pas parce que vous êtes sur un plateau de télévision mhm. que vous avez le droit mhm. di invectiver nit ñi wala di leen ridiculiser mhm. wala di leen est-ce que est-ce que parfois xam nga xam nga a pas de place à ce à ce genre de jeu là Souleymane Ndéné Ndiaye xam nga def nga ko fi ak Aliou Sow waaw daaw jéeg est-ce que parfois euh, su ngeen di dem ci plateau télé yi du ngeen am benn euh, préjugé bu ngeen am ci nit ñi. Mhm. Euh, Alisson il est tel comme ça Pape Makhtar il est comme ça. et en fonction de ça euh, vous vous mettez tout de suite sur vos gardes. je ne suis pas sur mes gardes. en direct. Euh, Moustapha oui. Aliou Sow c'était un incident malheureux. Oui. on s'est retrouvé depuis lors. on parle d'autres choses. comme vous allez vous retrouver avec Pape Makhtar. alors Pape ah, Makhtar je ne connais pas xaw moom il ne me connaît pas. Mhm. donc je trouve vraiment irrespectueux. que mu toog ak man naan ma je sais que vous n'avez jamais gagné de procès. <laughs> mais mais mais père père non non même bu fekkee ne wax na moi moom actuellement déjà nee na la je retire mes. mais très bien kon jeex na. voilà peut-être xam xam nga wax dafa dafa dafa wax moo mel noonu. Mhm. des fois di nga wax nga lâcher benn moo nga jàpp ne moom daf ko def par euh, par par impolitesse alors que c'était pas ça. donc retiré na ay kàddu mm-hmm. <laughs> <laughs> tu ne peux pas être dans sa premier ministre. man tey booy tàng sax damay seddal ndax nga génn ci plateau bi dem suñuy defet lay doon donc du ma la mës a manqué de respect. mais dafa am lu ñu tuddee sarcasme yaakaar naa xam na xam nga ko te. yàlla naa sarcasme bu baax ah, am na sarcasme am na. mais y a pas dérision am na mais s'il vous plaît dérision am na autodérision am na te loolu émission rek mais du ay question fii tey jii du ma sax si xool la plateau bi moo ñu boole moo tax ma wax la lool te lu ma la wax noonu du man maa ko wax gañoo procès ñi nga xamante ni jamono yi ngay attaqué Samuel Sarr wala ngeen di attaquante ñoom ñoo la ni yow mosoo gañe procès moo tax ma reprendre terme yooyu mais c'est pas ay affaire de ñàkk respect wala yooyu noonu dañuy waxtaan rek ñu bëriwul dañ la koy tooñee mais loolu kese la mais je pense que ni réponse du man ma wax loolu euh, de faire le bilan de. Mais... mon engagement au barreau. non waaw d'accord bu côté boobu dëgg laa doon waxee. pour manquer le de euh, par exemple on le dit tout le temps de de de maître euh, qu'il m'excuse de le de le citer comme ça on dit très souvent oui Me El Hadji Diouf musul gagné benn procès et pourtant ñëpp xam nañ ne Me El Hadji Diouf gagné na ay procès mm. mais mais les gens le disent comme ça c'est c'est un peu du sarcasme je ne ferai pas le plaisir de le laisser me <laughs> parler comme ça ça je ne l'accepte pas d'accord d'accord ah, am naa benn question jox ko eh, eh, kii ah. bi dee da nga koy jox ci punch yooyu mu naan wala ndox mu naan non du ma naan punch mais kon ndox maa ngi noonu sax wala nga jox ko ndox mu naan man man man xulawuma tey de tey dama ñëw vraiment pour non bu nekkoon dama koy dama koy dellu si waat ci loolu ba tey Mafta du ñu xuloo non Mafta daanaka bu jeexee moom ci boppam sax moo leen njëkk a xëcc waa parce a xam naa ko je le connais mais bi tey xam nga bi tey xam nga jugagul taxaw mook Aliou la Sow nii dafa dem ba jug taxaw ah bon kenn waroon nañ ko bàyyi bu jóg taxaw waroon nañ ko bàyyi bu jóg taxaw. waaw Aliou Sow ngi nii. mais xanaa ko bëggoon dugal instant boobu. xaw ma jugut nag ci plateau bi xam nga tey début bi nee naa leen. poobar la woon démb tey kaani la xam nga kaani gi commencé na tant que tant que xëcc ko ma ñëw dóor paabataan otaan xaar ma ñëw sotti ci suukar <laughs> euh, PM est-ce que yaa ngi dégganteeg sa xarit Macky Sall parce que am na ñu bari ñoo xam ne dañuy pressentir comme jamono ji ñu wax ay poste premier ministre ak yeneen ñu ni mel xaritam nga ñu bari ñu ngi wax naan est-ce que Souleymane Ndéné Ndiaye mënu faa toogee ëllëg je ne mais gis naa ko barki biig rek ñoo dogandoo ah bon yéen a gisee ñu ngi waxtaan non ñu ngi gisee. ñu ngi gisee waaw est ce que est ce que dina lay faral bu ngeen gis comme ni ngeen jegewantee noonu parce que sa sa sa parcours yëpp nit ñi xam nañ ne yaa moom da ngeen jegewantoon. Mhm. est ce que dina la arrivé ngeen toog nga gis luy xew ci réew mi nga jàpp ne peut être xëy na y a des erreurs mu nekk nga wax ko ko. Ah carrément ah oui je ne pas vous montrer les messages que je lui envoie mënuma leen ko woon mais xam nga euh, dimbale Macky Sall weesuwul nga gis ni lii baaxul nga ne ko lii baaxul. ci lu jëm ci lii par exemple je lui ai dit mhm. Mhm. que le pont de Foundiougne ne devait pas porter le nom de Nelson Mandela je suis pas d'accord mhm. je lui ai dit ça mais yooyu boo ko waxee nan la koy jëlee ah non écoute euh, ni mu koy jëlee toppatoo ma ko mais man li ma toppatoo mooy ni ma ma wax ko ne ko lii ànduma ci. Mm-hmm. nee nañu aussi bi muy poursuivre euh, ma ma wax dëgg waaw mm-hmm. lu jëm ci euh, poste PM boobu euh, gisoon nañ ne yow ak je pense maître El Hadj Diouf yéen a a taxaw ne suppression bi doonu lu jaadu loolu tamit waxtaan ngeen si. tout à fait tout bi ñu defee réunion mu xamal ñu ne dafa bëgg a supprimer bi man bokkoon naa man ak maître El Hadj Diouf. Mm-hmm. ci ko woon monsieur le président. tolluwuñu ci réew moo xam ne dañuy supprimer poste premier ministre. nga mën a gérer directement le pays. Hmm. di gérer ay directeurs di gérer ay conflits entre un directeur et son ministre di gérer euh, conflits yi am sa parti politique alors. je pense que les faits nous ont raison. oui da ngeen duggoon sànq ci may sa wadd bëggoon naa nag mu dikkaat si bi dikkaat si tuuti leeralal ñu est-ce que yow d'accord nga ci ñiy wax ni que dañ ko war a amnistier. ah oui oui moi je suis pour que ñu amnistier ko. Hmm. ànd naa ci. nee aussi bi ñu ko jàppee bi ñu koy poursuivre bi ko créé di poursuivre am na ñu wax ne am na ay conseils mhm. yoo doon jox le président Macky Sall xam naa duma la wax nga woon ma message yi ko doon yóbbante mais li nga ko doon wax ñu ne buñ ci buñ ci jaaroon xëy na duñu yegg si fii non no c'est pas vrai mhm. euh, man j'étais constitué pour Karim Wade oui parce que bi ñu jàpp Karim Wade j'étais plus au Sénégal mhm. j'étais en Angleterre mais dès que je suis rentré au Sénégal je me suis constitué donc ba bi ñu koy condamné. Hmm. j'étais en contact avec Karim mos naa nettali ne bi ñu ko condamné. Hmm. le lundi le mardi man Madické Niang Karim Wade ak yàlla on s'est retrouvé dans le bureau du régisseur de la prison ma ne ko maintenant que tu es condamné quest que ton grand frère peut faire pour toi. quel grand frère hmm. man. lan laa mën def pour yow. wax ma li ma wax ma def ko. mu ne la lan non. mu ne la. mënu ma ci yegg. Hmm. <laughs> mënu ma ci yegg. d'accord donc voilà. je je n'ai je n'ai jamais lâché Karim Wade pendant ces moments-là am na benn jour mu am problème ak garde pénitentiaire yi. Mhm. ba am ay problème ci genoux yi. j'ai envoyé mon ma dem prison su ma garde corps laa yónnee. Mhm. Euh, gis nga euh, bombe yooyu ñuy def ci blessure wu joueur yi parce que je pense que les gens l'ont le brutaliser mu mhm. am ay problème ci escalier yi mhm. donc su ma waaye su ma garde ko dem jëli bombe bi ma jox may ko ko mu def ko ci tànk yi pour que douleur yi estompé wu mais est-ce que loolu wanewul ne amoo baat ci sàll Sall que euh, ah, Karim sa xarit euh, euh, Macky sa xarit la Karim sa rakk la donc am na loo xam ne mënoon nga ko jouer seen diggante loo xam ne moo doon gën a oyof mais xam nga am na lu nekk au la de l'amitié les affaires de l'État kooku amitié du ko remplacer Et moi, j'ai eu connaissance du dossier, non pas pendant l'instruction, mais après l'instruction, après l'arrêt de renvoi de Karim Wade ci laa gis dossier bi c'est un dossier boo xam ne ay clé USB la ñuy jox yoo xam ne presque vingt-huit gigas c'est des milliers de pages mm -hmm. et je demeure convaincu que sur la base de ce dossier-là mm -hmm. moi on ne pouvait pas condamner Karim Wade ah oui wallahi pourquoi il a été condamné ah il a été condamné mais man j'étais son c'était mon sentiment. tey jii su ñu waatoon ci langue politique bi est dina tax nga reconsidérer waat sa sa situation. non je ne peux pas me mettre derrière Karim hmm? je ne peux pas me mettre derrière Karim c'est impossible. al tax nga nekk derrière maa ko ëpp expérience politique. Karim Wade j'étais son premier ministre mu nekk sama ministre. pourquoi ma war a retrouver derrière Karim Wade simplement c'est le fils d'Abdoulaye Wade. Hmm. mais lan nga gisoon ci ci baayam lu particulier loo xam ne gisoo ko ci doom ji. non du benn yëtam man baayam moom ma formé. bi yoon 18 ans la xam baayam mais mën na ko formé noonu tamit de doom ja baay dañ koy faral di wax doom ja baay ja ci beneen domaine la. mais ci domaine politique moom. ci domaine ak Aliou Sow ah Mame ak Aliou Sow Mame Birame d' abord après ñu dem ci Aliou Sow. waaw man dama am ay préoccupations yu ma bëggoon. Euh, Euh, monsieur le premier ministre leeral ma ko. xam nga sànq bi ngay expliqué contexte bi ñu la nommé premier ministre am na lu am solo loo waxul quoi mooy défaite électorale bi nga xamante ne nii bof bu ñu ko mënee tuddee defet puisque majorité des communes yéen a ko gañe mooy comme coow li am nii rek mais en 2009 effectivement. Benno Siggil Sénégal moo gañe woon commune yu mag a mag a mag au Sénégal mhm. donc yow nga nekkoon premier ministre de guerre parce que Abdoulaye Wade dafa jàpp ne dañ koo gañe élection locale yooyu il fallait que mu dindi la technocrate euh, Agibou Soumaré Agibou Soumaré nommé un premier ministre politique pour jëm en 2012 d'accord nga ci loolu ba léegi d'accord naa léegi période boobu nag ci diggante boobu 2009 ak 2012 da ngeen a def ay affaires yu yu bëree bëree mhm. te ma jàpp ci ñett yu garaaw mhm. bu njëkk bi on en a parlé au Sénégal je pense que sax Euh, quelque part euh, euh, woowoon nañ la bureau doyen des juges mais en tant que témoin mooy affaire pétrotime bi beneen bi si des mu nekk ci affaire fer bi l'installation de l'usine Someta bu nekk Sébikotane parce que man dama doon def enquête en deux mille quinze parce que quelque part dafa amoon ay sénégalais yu bëri yu doon liggéey ci ferraille bi ñu sénégalais yi mën nañu seetlu sax am na ñu daan pouse ay burettes di jaar ci kër yi di naan mm-hmm. feeraay feeraay mm-hmm. Euh, ñu jékki-jékki gouvernement bi décidé ne importation ferraille dootul amati léegi dañu bëgg a créer une usine métallurgique au Sénégal mm-hmm. pour que au lieu que nit ñi di jël fer bi du ko yóbbu fer bi di des fii bu ma defee sama enquête j'ai vu que effectivement maître Abdoulaye Wade ak chinois bi moom Someta ñoom ñoo négocié woon loolu en 2011. mu nekk loo xamante ne nii dama jàpp ne ça a mis beaucoup de sénégalais dans la rue parce que bu ñu nee feer bi kenn dootu ko importer kenn dootu ko génneeti Sénégal ñu bëri amatuñu woon lu ñu def dañu dem banque seen loxo toog. Mm-hmm. léegi ñu ne Someta bi nga xamante ni moo waroon a defar usine boobu au départ négociation yi amoon entre état du Sénégal ak chinois boobu c'était pour que ñu jël ci usine boobu 3000 sénégalais man personnellement bu may def sama dossier boobu dem naa ba ci usine di def enquête pour xool ndax sénégalais yi ñu waroon a jël jël nañ leen. ba ma fa demee ñi ma fa gis duñu ay sénégalais liggéey bi dafa méttee méttee méttee métti tellement parce que duñu leen fay par heure dañu leen di fay par tonne de ferraille yi nga xamante ni amassé nañ ko ci biir usine bi mu nekk lu méttee métti beaucoup de sénégalais ont refusé di participer ba ma fa demee ay guinéen laa fa gis ay Sierra Leone et cetera et cetera loolu nekk un autre problème beneen bi mooy la décret 2012 301 ça vous dit quelque chose. non a priori non. le décret euh, cent un du 23 février 2012. Mm-hmm. maanaam bi ñu ne à 72 heures le Sénégal war a def élection présidentielle da ngeen a signé un décret yow ko contresigné ko. Mm-hmm. buy jaay quatrième licence de téléphone. à trois jours de la présidentielle donc ñett yooyu ngeen def ci période boobu est-ce que mun nga ma ko leer. kan lañ na euh, troisième licence bi. Euh, non du troisième quatrième licence. quatrième licence est-ce que Soudatel. non non Soudatel mooy. troisième Soudatel mooy troisième quatrième bi c'est MTL ngeen ko jaar. alors je vais vous dire. Euh, te je rappelle que euh, da ngeen a joxe licence bi trois jours ñu dem élection présidentielle Macky Sall quand il est arrivé au pouvoir avril bu mu prêter serment rek dafa ab abrogé décret boobu mu mel ne comme benn genre kii la woon quoi. alors euh, xam euh, nga euh, un premier ministre ne prépare jamais les décrets. dañuy préparer décret yi en amont dafa am le circuit des décrets ministère bi concevoir décret bi daf ko jaarale ci circuit yi mu mujjee primature dafa am service de la législation à la primature Il y avait quelqu'un qui s'appelait Samba Gueye dafa yàggoon nag mooy xool ndax décret bi nekkul en contradiction ak yeneen décret donc bu génnee ci filtre boobu mhm. bu ñu ko indee bureau premier ministre daf koy signer ça va xool contenu bi ah si daf koy xool contenu bi Euh, moom mi nga xam ne mooy chef service législation mooy ñëw expliquer may détail yëpp ma xool xool yan texte la ñu visé après ma signé alors pour euh, l'affaire de pétrotime pour Petrotim on a signé un acte balaa ngaa def moo njëkk bële garaaw na de Petrotim moo njëkk waaw c'était en janvier 2012 on a signé un décret imparfait parce que xam nga ak décret boo ko signé ba pare tant que numéroté wuñ ko publier wuñ ko signé woo décret. décret d'application. non non un décret. Mm-hmm. en tant qu'acte administratif bu ko premier ministre signé président signé ko numéroté wuñ ko publier wuñ ko au journal officiel c'est pas un décret. ñaata jour franc. amul jour franc. amul trois jours franc. ah si bu fekkee ne signé nañ ko euh, numéroté ko. trois jours francs pour ñu publier ko au journal officiel ñetti fan mais ce décret là n'a jamais n'a non pas non seulement ce décret n'a jamais été numéroté mais il n'a jamais été publié au journal officiel donc ce n'est pas un décret ce qui veut dire que ni euh, bi ngeen fiy jógee ça n'existe pas ça n'existe pas pour être simple juridiquement alors décret bi may wax noonu sur la quatrième licence mais ça c'est le ministère des euh, en charge des télécommunications qui conçoit ce décret dans les différents services de l'État et qui arrive à la primature bu nekkul en contradiction avec euh, beneen décret bu existé wala beneen loi mais dañ koy jox président la République mu signé ko te xam nga euh, le retrait des actes administratifs c'est réglementé mm-hmm. l'acte administratif ne peut être retiré que dans le délai du recours pour excès de pouvoir et le recours pour excès de pouvoir c'est un délai de deux mois quand une autorité administrative prend un acte administratif de tes boo koy attaqué da nga koy attaqué dans le délai di par la loi te ci délai boobu autorité bi nga xam ne moo toll dayo ak autorité bu jël acte mën na ko retirer c'est ce que le président Macky Sall mais yéen yaakaar ngeen ne vous trouvez normal à trois jours de la présidentielle ngeen di signer un décret buy jox une licence. ma ne à une entreprise. xam nga à trois euh, jours de la présidentielle ma ne euh, jusqu'au jour de la passation de service le président Wade était encore en mesure de signer des décrets. comme nag mooy président de la république man ma nekkoon premier ministre mais suñu passe suñu émission le 5 avril la ñu ko def donc jusqu'à la date du 5 avril j'étais chargé d'exécuter les affaires courantes à partir de l'élection du président Macky Sall mais avant l'élection du président Macky Sall le président de la république mais exerçait la plénitude de ses pouvoirs il avait le droit en tant que président de la République de signer un décret contresigné par Euh, wax nga sànq ne euh, dafa am circuit bu décret bi di jaar. am ku nekk wara primature moom mooy xool ba xam ne ce que décret bi nekkul en contradiction ak beneen yu demee noonu. donc y a un travail qui se fait. avant muy àgg ci bureau premier ministre. dama dégg Abdoul mbay mm-hmm. yaa ko tudd sax mu nekk premier ministre après bi ci affaire ci coowu pétrole ak gaz yu demee noonu mu wax ne il a été trompé bi mu nekkee premier ministre et que il a même dit que c' qui a présenté au président Macky Sall un rapport boo xam ne la mu ca def ak la réalité dara bokku ci et est-ce que loolu mën na nekk pour un premier ministre. je préfère ne pas avoir à contrarier monsieur Abdoul Mbaye. contrarier ko ba pare non. Hmm. daal dugg ci débat yooyu quoi. <laughs> voilà débat. mais ma en tout cas personnellement j'en trompe. oui les Sénégalais ont besoin de savoir ça. oui mais franchement Aliou. oui euh, may leen ma loolu rek. bugguma commenter euh, yu suma successeur di def. nga ne yow personne en tout cas kenn mosu la trompé yow. jamais kenn mosuma trompé man. est-ce que est-ce que am na ay. te mosuma dégg premier ministre bu wax aussi ne dañ ko trompé mosuma ko dégg. man de kenn mosuma trompé parce que outre Samba Gueye y avait mhm. d'autres juristes il y avait un inspecteur général d'État qui était mon conseiller Sylla qui est mhm. membre du conseil constitutionnel. Mhm. il était là à la primature comme mon conseiller je suis là. est-ce que c'est possible qu'un premier ministre euh, se soit trompé ou soit trompé ah. tout simplement. yàlla rek xam. lu jëm ci c'est possible est-ce que mën na nekk ah, loolu. mais yow li ah, nga wax ni ak décret bii nii. Eh, ah, li nga wax ak décret bii nii c'est comme c'est comme si c'était ça ban décret bi ma lay wax nii yow da nga ne circuit bi dafa jaar ñu indi ko bureau premier ministre rek vous n'aviez plus qu'à signer. non à trois jours des <laughs> élections. Euh, Mame Birame dama ne la. waaw jusqu'au jour de l'élection présidentielle le président Abdoulaye Wade était encore président du Sénégal. Mm-hmm. moi j'étais son premier ministre. c'est pas parce qu'il y a une élection. que l'État s'arrête de marcher. Même après l'élection. Euh, non mais, euh, mais, et jusqu'au jour la passation des pouvoirs. Absolument. Mais le président Wade était habilité était toujours habilité à exercer la plénitude de ses pouvoirs. mën nga ñu wax mën nga ñu wax signature boobu c'était combien li ñaata lañ leen fay. ah non yow itam parce que quelque part c'est comme si euh, dañu signé décret bi joxe licence bi pour ñu jox leen xaalis ñu utiliser xaalis bi campagne. élection bi passé ñu re dindiwaat décret bi. alors su fekkee ma. waaw xaw ma. ci dara. yaa ne woon premier ministre. oui maa nekkoon premier mais du man concevoir uma décret bi. sa signature nga ci suuf. maa ko signé. mais concevoir uma ko. mais ni nga ko waxee. kenn trompé wu ma mosuñ ma trompé man. mais lu ci amoon loo leen gëm yéen ba signé ko. alors que président vous me parlez d'un texte qui date de dix ans derrière moi. je n'ai pas sous la main le texte pour pouvoir vous répondre de façon conséquente. est-ce que le contresens j'ai tellement j'ai signé tellement de décrets. est-ce que est-ce que le contresens d'un premier ministre peut se faire à l'aveuglette. ah non jamais. je l'ai dit tout à l'heure <laughs> on ne signe jamais à l'aveuglette. parce que d'abord xam ndax Abdoul Mbaye ko juum parce que question bi Moussa posé am solo <laughs> que ba Aliou parce que ba léegi dafa am benn influence sur l'actualité qui nous ah, suit. Euh, moo tax ba léegi. Aliou vraiment <laughs> tu peux me croire man kenn mosuma trompé. parce que du duñ ma indil parapheur bi rek comme ça. Mhm. ma signer gëm décider indépendamment de mes conseils juridiques jamais du am. waaw doo ñu wax xaalis bi ñaata lañ leen joxoon pour ngeen signer. mais ma ne ñaata lañ leen ma joxoon man joxuñu ma ñaari dërëm xaw ma sax ku ah, la Sénégal jaayee licence boobu. je mais yow itam boo joxee texte bi kay xanaa acte banque ci euh, montant banque ci. Ah, décret bi nag mënoo mënoo signer nag décret bu bu licence te xamoo ñaata ñaata lañ joxe ñu may laaj. Ah. il y a dix ans. est-ce que man je peux me souvenir de tous les détails des décrets que j'ai signés dans ma vie. mais moom somme bi rek la soxla moom somme bi rek la soxla. mais yow tam mais <laughs> donc entre xam nga licence bi ñu jaayee bi ñu jaayee euh, ñi deuxième licence yi. mooy bi ñoom bi Aïssata Tall Sall nekkee comme ministre de la communication. Uh-huh. bi bi waa PS saa euh, saaxee suñu réew mi dem jaay benn licence boobu mais bu léegi prix bi boo ko laajee waa PS yi ñu wax la ko. waaw mais te boobu moo jiitu. mais mais yow Sonatel Sonatel soo ko ko ma wax la ko ba léegi. Sonatel c'était vingt milliards c'était vingt millions de dollars wala. waaw quarante milliards quarante quarante milliards CFA. alors mais bële bi nga may wax xamu woon sax attributaire licence bi kan la. je ne me souviens pas du ah oui wallaahi yàlla xam ne ko. mais loolu fi ngay wax nii quoi est premier ministre muy wax ni. loolu nga xam ne dafa ëmboon état nekkoon alal joo xam ne nii pour contribuable bi la wala sax lu jëm ci état. Mhm. premier ministre taxaw ne moom loolu mënatu koo fàttaliku. est ce que loolu li ngay wax nii du gën a soxna si euh, premier ministre du jinne boo ma bëggee laaj lu xew yaa dix ans. daawar a nekk jinne nag. ah no mënut a nekk jinne surtout bu bu ñu dee wax cadre xaalis. daa war a nekk jinne li fi jaar dafa bari. moi je ne suis pas un ordinateur. bay capter la pile de décret yi ma si signé. il faut aller euh, au bureau de euh, la législation ou de la primature ngeen xool du secrétaire général du gouvernement nga xool acte yi moom si yëpp. Hmm. mais dafa bari. mais est-ce que mën nga xam leen. lan moo tax Macky Sall abrogé lu tax Macky Sall. décret boobu ko. ah mais je ne suis pas dans la tête de Macky Sall. xam na ko. man mun naa waat man ni xam nga ko même boo ko bëggul wax. xam na ko man mun naa waat ni xam nga ko. non Aliou entre nous wallaahi sur le Saint Coran ak weeru koor bi xaw ma ko. billaahi wal kitaab. waaw Macky Sall di sa xarit. nga signé woon Macky Sall mais Macky Sall dafa may tàggu man bu bu ma tàggoon di tuddee point bi Nelson Mandela. non loolu du dara. Ah? du ma tàggu. non par rapport ak lii non ah, li ñuy wax ci licence bi du lu du lu ndaw de li pas mal. parce que licence bi c'est des milliards. man li ma étonné c'est pas que nga fàtte. Moustapha nga fàtte bu ñu bi. oui dinañ ma rafraîchir la mémoire. mais mais de mémoire comme ça xam nga premier ministre. waaw léegi ni texte bi ñu xool ko. mi ngi nii dafa non Charles moo ay ndekete li ñuy wax yëpp mi ngi wari texte bi. voilà mais na ko na ma ko génne ma xool ko. xam nga mën na ko zoom. non il faut que il faut que ma jug dem di lii. mu ko mu zoomé ko. wala mu zoomé ko wala ñu jóg ànd kay dem xool. ah ca nan daal du mën a jóg mën a jóg mais yow doo mën a jóg. <laughs> mais dafa da nga man man li ma étonné euh, dans tout ça c' est pas que que fàtte na ko wala xamatul sa mbéjaay mais li ma ne mooy. da nga wax quelque part que ni xamoo sax ñaata attribué woon licence. xaw ma yónnee ko maa xam ne bi nga ko attribué woon bi nga koy signé. non très sincère non pas bi ma koy signé léegi laa wax. fi ma ah. toog nii di wax ak yow. d' accord mënuma la wax ne la. Hmm. Euh, la licence a été attribuée à tel opérateur. MTN laa gis ñu bind fii. alors mais regardez qui a signé le décret xool leen ko bu baax. le ministre qui a signé ça. non le premier ministre qui a signé le premier ministre est-ce que c'était moi wala c'était mon intérimaire il faut regarder ça Charles

acca ñu ne ñu ne naa dem ci écran bi ma liir cay tey de daa daan nafar moom ak maa gëj a nafar jox ma acca ci suuf waaye fàtte nga ne sàrr samay bët baax <laughs> acca ñu dem décret numéro 2012 ah 301 ah, à date euh, en date du 23 février 2012 portant euh, approbation de concession passée entre l'État du Sénégal et la société MTL euh, infrastructure et l'établissement et l'exploitation d'infrastructures de télécommunication article premier mu ne la convocation euh, la convention de concession passée entre l'État du Sénégal et la société MTL infrastructure et Sarr jox ma foofu et lan. l'établissement non am na lu mu dàgg fii et xawma lan est l'établissement ah l'établissement de l'exploitation d'infrastructures de télécommunication et lii la dafa dagg de API je pense article 2 le ministre d'État gars yi soxla yegg fa de defe naa nañ dem foofu rek tout droit somme bi fii la la société MTL West Africa infrastructure et services SA société sociale de un milliard de francs CFA donc le siège social et loolu capital bi la demal loolu ci capital bi la demal yéegal yéegal foofu la yem non affaire lépp joxewuñ ko lépp ñëwul de lépp ñëwul de ñëwal na na zoom. na zoom ñëwal. je parie que ni duñ fi fii la yem de. Mhm. non non na dem est ce que. demal yéegal foofu la yem amul signature Sarr la. lii journal officiel la du décret. en ah, charge la amul signature nekk de. mënul fii de. li li c' est c' est un décret ou c' ok nee amul signature li mu am foofu amul signature ah. c' le journal officiel mhm. mais kii ça m' étonnerait que. moi que j'ai signé un acte comme ça parce que je n'ai aucun souvenir. non 23 février 2012. yow ouais, d'accord mais est-ce que je n'étais pas en mission quelque et si que mon remplaçant war nga xam de mooy deux trois semaines avant les élections mais voilà est-ce mais ak moo mun ci demee même boo fi nekk monsieur le premier ah. ministre aussi war nga ah. xam de quoi il s'agit bu ko si ñëwul même boo voyagé wee aussi nga am koo xam ne daf la fi uutu le temps que ngay ñëwaat aussi war nga mën a xam ki nekk sa ginnaaw lan la fi def et puis contrat bi keneen mënu ko def ku dul yow sax amul keneen ku la mën remplacer ci ah, contrat quand même mais mon intérim était assuré par maître Madické Niang ou par maître Ousmane Ngom waaw ñoo daan assuré sama intérim na kii intérim bi ngay def na Euh, Aliou tu peux me croire su ma signé woon acte bii nii. non mën nga ko fàtte non non mën nga ko fàtte. mën naa ko fàtte. mais je n'ai aucun souvenir. mais xam nga il s'agit d'une quatrième licence quand même. licence licence télécom dafa garaaw. loolu nga fàtte yenn détails yi mais licence quand même. am na yu bari ci xew. mais xoolal yooyu kenn euh, nga fàtte parce que gisuma ko Charles ñëwul ci man. je suis d'accord avec mais à tête mm-hmm. il faut aller regarder le décret. c'est ça nga xool ko. ñëw yónnee na la ko ma c'est moi qui l'ai signé. Mm. Mm-hmm. est-ce que est-ce que c'est c'est tellement bizarre que moi j'ai j'ai devant euh, moi le mais je parviens pas à trouver kan moo ko signé. mais loolu amoon na si journal officiel kenn du est kenn du ko def ah, ah, ah si regardez la loi sur les avocats. moi je je regarde par le premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye le la République. oui euh, Abdoulaye Wade exactement noonu la war a demee. mais bu la neexee ci internet bi ñu dàgg ko aussi ah bañ ko wane. waaw c'est possible aussi Aliou Sow ñu bañ ko wane. c'est possible ci internet bi ñu bañ ko wane parce que li ci net bi la il faut peut-être aller xool livre bi le journal officiel. c'est ça euh, ci euh, certainement mi ngi ci biir quoi mais nii gars yi comme tout le monde clique et fois il y a des difficultés de transparence dans ce pays. Mm -hmm. peut-être que c'est à de ça que des fois ñu dagg affaire bi quoi. peut-être <laughs> monsieur le premier ministre <laughs> mais man ba léegi ñëwaguma ci sama question yi de. ba ba ba ñuy ñuy dellu si waat ci loolu il se peut ñu daal di koy gis ci kanam. affaire euh, métallurgie bi. société métallurgie bi. Uh-huh. Mhm. bon xam nga euh, xëy na contexte. Euh, bi ñu signé woon lat pour euh, permettre à ces investisseurs là d'ouvrir cette usine parce que bari na woon na coow mhm. il y a même euh, des gens qui disaient vraiment choper des maladies à cause de l'émanation de la fumée dans cette industrie de métallurgie yooyu yëpp amoon na si Bikotaan les gens ont manifesté ont marché. absolument hein? alors euh, bon mais xam nga fait bi ngay apprécier au jour J. mais xëy na euh, mën na évoluer euh, quelques semaines quelques mois quelques années plus tard hein, hmm. conduire à, à ces situations-là mais au moment où nous signions l'acte au moment où nous autorisions l'installation de cette industrie-là à, à Sébikotane on avait toutes les raisons de le faire hein? lu somme bi ñuy wër yow du xam nga ko. mais somme bi waaw 90 milliards. voilà et on passe 90 milliards. waaw euh, su fekkee mën nañ passer à autre chose. pour pour quatrième licence bi. après bi Macky Sall ñëw mu abrogé ko les quatre-vingt-dix milliards nu mu def. Ah, nu ñu ko def ba tey kenn xamul fu mu dëgg après euh, dix ans après <laughs> premier ministre toog mënuñu expliquer exactement euh, somme boobu ak ni mu tolloon amoo ci fàttaliku. soxna si xam nga lu ma lay ñaan. est-ce que nga dem nga xool journal officiel nga xam ban premier ministre ko signé ak ban at ba euh, moo ko signé ak ban. non monsieur monsieur Ndiaye yow rek yaa nekkoon premier ministre. waxtu woon Sénégal waaw mais. non kon kon bi ngay wax léegi dama ne la. waaw il est possible que. à cette date là bi ngeen di wax. je ne fuis pas au Sénégal c' est possible. 23 février oh, à 3 aucun souvenir aucun souvenir de ces faits là aucun souvenir. mais Souleymane Ndéné à 3 jours de la présidentielle moom vous étiez au Sénégal. ah je ne sais pas Moustapha. Hmm. dem naa fi Conakry. Hmm. dem naa fi Abidjan. dem naa fi Maroc à quelques jours de. de la présidentielle. à quelques jours de l' te bu may dem. Mhm. dafa am kuy assurer sama intérêt. man loo jaaxal maa ngi kii wu journal officiel bi nii. mais mais affaire bi kii non tu vois pas la signature. non man seet naa ko ba sonn. mais tu vois pas la signature je peux mettre ma main sur le Saint Coran pour jurer que c'est pas moi qui signe là. en tout cas l'état du Sénégal est représenté par le ministre de l'état ministre euh, de euh, ministre d'état ministre de l'économie et des le ministre de la communication ñoo nekkoon les deux représentants de l'état du Sénégal. waay xam ministre des finances moom. pour mhm. toutes les questions qui ont une incidence financière mm -hmm. il est impliqué ministre des Finances parce que le Sénégal ne s'engage jamais euh, quand il y a une incidence financière à l'engagement sans la présence de, du ministre de l'économie et des finances mais est-ce que est-ce que loolu war na la jaaxal maa mbiram boo déggee nu muy nu muy nu ak autant de légèreté lu ko président di di di di di di tabbee ministre ki yenn affaire yi est-ce que war na la jaaxal parce que quelque part aussi déggee sànq ni ñuy ni muy expliquer dafa mel ni euh, état du lu sérieux président day jéeg saa toog rek euh, xool xool ma wàcc ni ko kaay euh, def naa la ministre environnement nga def fa deux mois wala trois mois deka ci la ni la kaay ma def la mhm. ministre lii wala ma def la ministre lii mhm. wala ministre d'état da nga koy mérité boo defee tuuti ma ma ma est-ce que tey ji dina la jaaxal boo déggee façon bi nga xamante ne tabee ñi dum réew ci Sénégal surtout que ñu lay ñu lay vraiment place légèreté ça c'est des mots ah, déplacés. mais mais mais nag monsieur le premier ministre nag légèreté tubaab s'il vous plaît mm. a une connotation négative il faut qu'on soit sérieux. ah mais monsieur le premier ministre nag. mënu ma la nga insulter. non je pas insulter. mais mais dama naan non dama ay termes yu. bëgg bëgg bëgg bëgg Oui. Mais quand vous utilisez le mot légèreté, non, c'est parce mais, que xamuloo mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, non, s'il vous plaît à vous. S'il vous plaît. À vous, s'il vous plaît. Ce mot yooyu nga utiliser dañ ko pour yow. Du yaa may utiliser loo ay mots. On est ici, du yaa may choisir loo ay termes. On utilise des termes de courtoisie. Du yaa may utiliser ay termes de courtoisie, du yaa ma koy jàngal. Non, non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît à vous. Parce que tey jii li may wax Mame Birame laay waxal. Dama ni kuy toog di expliquer ak ni ñuy tabbee ministre ak autant de légèreté li ma wax leer na. autant de légèreté. non mais ça c'est une insulte parce que légèreté non moom ak yow dama ni. ni tabbee parce que loolu mënoo ko définir leneen bu ñu nekkee dañu ni yaa ko expliquer nga ni da toog. président woola ni la xaama dénk la lii ñu toogaat tuuti mu ne la xaama dénkaat la lii et pourtant ba tey waxaguñu wax compétence hmm. man ba tey dégguma ci dégguma ba tey ñu ne ma par exemple gis naa sa liggéey fii dam lay jële fii yóbbu la feneen moo tax ma jàpp lisonité donc bu ñu fi indi ay affaire de impolitesse ak ay yi baa ngi dégg terme boobu Pape Matar ce terme là je le mais je vais pas vous suivre légèreté je vais pas vous suivre la te xam nga ni amul benn connotation bu péjorative donc jarul nga jox connotation péjorative oui allez-y comme ça ci télévision ñëpp di la seetaan. ah non non pas de leçon quand même ah, ma ne joxuma la benn pas de leçon quand même. mais j'ai le droit de m'exprimer. mais bien sûr tout comme vous avez eu le droit de sortir ces grossièretés. grossièretés s'il vous plaît ça. Si, grossièreté vous avez sorti des grossièretés. grossièreté oui. allez-y man dugguma ci ay catégorisation vraiment y a ma mhm. euh, dama bëgg daal ñu waxtaan ci njekk ak teranga ak yar légèreté ce mot-là n'a pas sa place dans nos débats. monsieur non non non je suis désolé légèreté bi ci contexte bi moo ko dugal moom du ma ko fa génne. d'accord euh, Mame Birame xam nga kii waaw ñu ngi ñëw ci yow waaw monsieur le premier ministre. soo gisee mooy insister ci affaire u ferraille bi. Mhm. c'est parce que dernièrement dañu wax ne matériel yi dem ci construction bâtiment yëpp dafa yokk. muy ciment di fer affaire yooyu euh, ma jàpp ne. Mhm. ciment. xëy na sax mun nañ koo laam-laamee puisque ba ñuy indiwaat beneen cimenterie dañu waxoon ne concurrence bi dana permettre. prix yi wàcc prix yi wàcc. gisuñu loolu mais foofu sax su ma ko mënee comprendre man faire bi mënu ko comprendre parce que dañu ne woon bu ñu ayee sénégalais yi nekk di taxaw di di di wër di dajale feeraay bi yëpp bu ñu leen ko teree hmm, ba desul dara. Ah, waaye foo déggee loolu. dossier laa si def dossier de trois pages. mais foo jëlee loolu dañ aaye sénégalais bi gars yi ngi ramassé ferraille non xam nga nan lañ ko xam nga nan lañ a ah, l'impression de nekk au Sénégal ah a nekk non ci dëkk bi non mbaa bu nekk ci dëkk bi bañ a tontu yéen yi ah, non maa ngi ci dëkk bi xam naa ne seeni bu seek ferrailleur mi ngi ñuy seetaan ñoom manifesté nañ ba sonn ndax li wax nii xam nga aujourd'hui ñi waaw bàyyi ma euh, expliquer la am pousse pousse di wut ferraille ñu ngi wut ferraille ci kër yi. waaw très bien effectivement waaw d'accord mais kii da lay expliquer. xam nga lan la ñu tere xam nga lan la ñu tere. Hmm. importation bi ñu génne ko. maanaam exportation. Euh, exportation bi waaw ñu génne ko Sénégal. loolu la ñuy tere. Hmm. léegi ñi nga xamante ni ñooñu ngay wax noonu ñu ngi ramasser ferraille bi. bu ñu ko jëlee ils sont obligés. ñu jaay ko Sométa. parce que chinois ba sax lañ koy wax. parce que chinois ba lañ koy wax sax. très bien hmm. indien yi dañ ci daan ñëw di ramasser di ex di di exporter. ñeneen di ko def di exporter mais léegi exportation bi la ñu tere ce qui fait que Sométa moom moo nekk le seul acheteur. Hmm. léegi da ngay gis kenn koo xamante ne ni dajale na par exemple camion wu ferraille bu hmm. demee foofu puisque ñoom rek ñooy les seuls acheteurs ñu peese ko dindi xaaj bi ne la fer bi baaxul. seeraay bi baaxul lii la ñuy jël mu nekk déjà première injustice man dama ci def enquête dem ba foofu ba ci usine ba en plus de ça ñu ne leen léegi comme benn usine bi moo fi nekk dañuy tere exportation bi usine boobu day defar fer bi di ko jaay fii Sénégal et dans la sous-région à moindre coût loolu la ñu bind ci euh, présentation rapport de décret bi ñu ko joxee ñu ne non seulement fair bi day gën a wàcc mais dina permettre à beaucoup de sénégalais ñu liggéey foofu. on mhm. avait même donné 3000. emplois un chiffre de mille emplois. mais man dama dem foofu xam ba ban heure laa fa dem sept heures et demi heure bi ñu ouvrier di pointé. Mhm. pour xool ñan ñoo fa nekk ku ma ci làkk olof doo ma fay. ay pël Fuuta lañ ay pël Fuuta ay céréales la nekk léegi Sénégal perte ñaari yoon fer bi yokk na. ñi daan wër di ramasser ferraille bi. kenn ñàkk nañ seen liggéey est-ce que usine baa ngi fonctionner noonu ba léegi. boo déggee yokk fer bi kay moom moo moo ko yokk. ba pare fer bi c'est de moindre qualité. de fer est quand même libre il y a des Sénégalais qui importent du mm-hmm. ce que usine boobu même type de fer yi ñuy yi importateurs yi importe lay defar. waaw fer bâtiment yi. yooyu lay defar. waaw mais au même moment nit ñaa ngi importer fer. am ñoo xam ne c'est loolu rek la ñu waxoon ne dootul amati. ah non mais ñu soxla di dem di importer feneen fer. usine boobu mu satisfaire demande locale bi c'est pas possible. comment ma ne cette usine ne peut la demande locale c'est pas possible. mu ngi yóbbu en Gambie euh, dans la sous-région cette usine là qualité fer bi. boo laajee mason yi ils te diront ko bokkul ak fer bi ñu fa daan bi daan indi. bi daan importé. et loolu mu nekk muy exporté alors que de consommation bi soi-disant euh, matul normal dañ ko waroon tere te le plus grave ba ñu consommer suñu kii ba pare ba ñu doy bi satisfaire suñu satisfaire suñu demande bu yàggul dem Gambie bu boobu mais travailleurs yi ay étrangers ñooy majorité mais ñuy liggéey dans des difficultés extraordinaires bu yàggul dara lañ fi wax am na kenn ku fa décédé. ci même usine boobu bu ñu demee ay gants la sol man j'ai vu un ouvrier boo xamante ni bu sumee gants yi mais doo ko da nga ko yërëmal ñun. parce que loxo yi mu ngi dereetal tellement ay fer lañ leen di ramasser loo. du ñu leen fay par heure mais par tonal boo yëkkatee par exemple dix tonnes ñu ne la chaque tonne deux mille cinq cent la nga ñibbeeg moom boo paree xaaj bi nga fajoo ko. Oh. loolu état du Sénégal moo ko def. moo doon ko contrôler non yooyu loolu kenn mënu ko seetaan li mu wax nii te lu ñu euh, lu ñu vérifié la te loolu ba mu li ko li ko jur yëpp moom mi moo ne premier ministre bi am bi ñu créé usine bi ah waaw 2011 ah. maa nekk que dina am donc man man je sais usine dafa da gis man décret bu ma signé pour ñu autoriser ouverture usine bi en tout cas c'est en 2000 c'est en de. mais bu xewee 2011 y un ministre de l'industrie. l'importation en tout cas interdiction exportation bi c'est le président Macky Sall qui l'a signé mais l'introduction de l'usine là au Sénégal yéen yéen a ko négocié. man j'ai euh, euh, euh, les du Sénégal. je je j'ai l'impression que dafa nekk un président je sais pas qui faisait tellement confiance mm-hmm. au que finalement da doon loo xam ne après soo ko rappelé sax moom il a des pour se souvenir. non xam nga pourquoi telle demee telle chose. non Moustapha ça la première question la deuxième c' est que j' ai l' impression que Souleymane ñun ñii nga xam ne on travaille sur l' actualité c' est notre euh, pain quotidien bu ñuy wax ak yow man j' ai l' impression ni Souleymane Ndéné Ndiaye léegi dafa nekk ci benn bureau euh, entre quatre murs rek toog si bureau am xamatul sax li xew ci réew mi <laughs> parce que yii yii jaaxal yow. non dafa nag alors que ça c'est dans les médias. mais ma ne c'est partout. Euh, mhm. euh, xam nga qu'est-ce qui se passe nee naa la sànq. Mhm. usine boobu damay suivre actualité plusieurs fois les certaines populations de Sébikotane. Mhm. ont marché ont manifesté. oui contre les émanations. de fumée. qui causent des maladies à des personnes qui sont à Sébikotane. loolu yëg naa ko. mais mm-hmm. c'est ne pas connaître le rôle du premier ministre que de penser que bu ñu installer une usine de métallurgie que c'est le premier ministre qui est au devant de la scène non attention ça c'est pas le rôle du premier ministre il y a quand même un ministre en charge de ce secteur-là et chaque ministre en charge d'un secteur déterminé mooy gère ministère am mais un premier ministre conduit la politique du gouvernement non il ne détermine pas mais au Sénégal il le, la conduit le premier ministre mm -hmm. il conduit euh, la politique du gouvernement le primo inter pares c'est lui qui gère le gouvernement. non il conduit la politique du gouvernement. Ah. benn la rek le président définit la politique du gouvernement. il conduit il justement le premier ministre conduit la politique hmm. mais. il y a quand même des secteurs il y a le secteur de l'industrie quand une usine doit être installée c'est quand même au ministre en charge de ce secteur-là à installer l'usine pas au premier ministre. c'est pas le rôle du non, premier ministre l'installation mais il y a, y a conduire c'est suivre quand même euh, non c'est pas ça le rôle du premier ministre non mais Bécaye Souleymane le rôle du premier ministre n'est pas d'aller à Sébikotane di xool ouvrier ñoo dugal mais moi je ne suis pas j'ai jamais été premier je ne suis pas premier mais je suis directeur d'une chaîne de télévision mais ce que je signe moi Moustapha Diop d'ici dix ans sama responsabilité la engagée mhm. vous ne pouvez pas venir ici dire que j'ai signé pour ñu joxe une licence j'ai signé pour l'installation d'une à Sébikotane et après dire que non non le premier ministre n'est pas non vous ne pouvez pas affirmer tout de go que j'ai signé pour l'installation d'une usine à Sébikotane quand euh, mais vous étiez premier ce n'est pas au Premier ministre à signer des actes pour faire installer une usine non, c'est pas l'installation. C'est pas non, l'installation non, non. Euh, xam nga vous vous méprenez oui. sur le rôle xam nañu xam nañ ko. Macky Sall a eu raison de supprimer ce poste là. xamul leen ko. a eu raison de supprimer ce poste parce que finalement su ma la déggee wax le premier ministre. mais le premier ministre il gère des choses beaucoup plus importantes que li may wax nii. mais maa ngi naan moom comme premier ministre de combat donc premier ministre politique. <laughs> moom doon defoon na ko moom. <laughs> waaw il fallait plus l'attendre sur le terrain politique que sur les affaires. Euh, au contraire sérieux j'ai été attendu sur tous les terrains. <laughs> et je ne pense pas. que su ma fayiroon. que Ablaye Wade dina ma bàyyi de 2009 à 2012. te dàqu ma. mais de 2009 à 2012. oui nga nekk premier ministre. oui arrivé na la jamono jii nga toog ne su doon su démb doon tey bi may signé tel wala tel décret wala tel lii du ma ko. dinaa ko xoolaat bu pensez que nga réccu euh, damay toog di xalaat décret yi ma signé woon il y a 10 ans. 15 ans kon après day day jàll noonu. non je ne comprends pas ce ah, est-ce que vous voulez en venir. Mm-hmm. Mm-hmm. info info yi ñuy wax aussi ma Moustapha mi ngi koy junj sàng ci ne foo nekk mais man en fait xëy na du ma bett de trop. parce que da dama la dégg nga ne euh, si benn interview déjà li ngay suivre euh, actualité beeg yooyu du bari même revue de presse yi euh, presse écrite bi presse écrite bi par exemple que ñoom ñooy bokk lu ñuy bind de ce fait bon da xool quelque kii rek parce que tous les jours j'ai au moins vingt cinq quotidiens tous les mm. jours vingt cinq quotidiens mais tous les matins bokk lu ñuy bind daanaka c'est comme si sax daanaka euh, rédacteur en chef dañuy coordonné pour pour génne benn benn titre boo xam ne information yi la c'est la vérité da nga koy xaw ça paraît c'est une actualité qui est importante c'est la vérité mën na am y a aucune coordination entre les rédacteurs en chef pour sortir la même une mais comme c'est la même actualité oui quand c'est la même actualité c'est la même actualité alors tous les journaux traitent de la même actualité mais mais mais différemment du bokk la traité différemment sous des angles différents voilà ak sa ligne éditoriale d'accord voilà d' accord maam Khady waaw mais maam sama question bi bala nga siy dugg sama question bi parce que ci problème lañ doon problème yi wala ay signature yu Sénégal di def lu jëm ci wàllug signature licence de pêche yi ak euh, Union européenne yow nekkoon nga ministre de la euh, pêche yoroon tamit économie maritime mhm. euh, donc donte sax yéen seen côté da ngeen naan du yéen a ko signé du seen nguur ñee dinay muy am benn xëccoo mais yow naka nga ko gisee yow mi nekkoon foofu noonu. alors xam nga euh, am na benn moment boo xam ne no notre mère était poissonneuse mm-hmm. alors les Européens avaient besoin de venir pêcher dans les eaux du Sénégal. Mmh. Moi, j'ai été ministre de la pêche entre et 2009. Mmh. Euh, on était obligé mmh. de négocier avec les pays Euh, limitrophes son autour du Sénégal. Mm-hmm. pour permettre à euh, pour que suñu suñu nappkat yi. Mm-hmm. surtout ñu dëkk Ndar. Mm-hmm. di dem di mën a pêche ji Mauritanie ba Mauritanie. Euh, parce que Sénégal dafa bari dafa bari ay zone de débarquement. boo jógee de Ziguinchor wala du Cap Skirring. à Saint-Louis dafa bari. ay mën a wàccee jëlee voilà. alors donc am na benn temps boo xam ne Union européenne soxlaa tuñu woon. signé accord de pêche ak Sénégal dañ daan dem di ko signé ji ak Mauritanie di ko signé ji ak euh, Cap-Vert di ko signé ak Guinée-Bissau mhm. ah dañu benn commission sous-régionale des pêche dama daan suggérer toujours que comme Union européenne dañu négocier par une seule personne wala par une seule délégation ñu ne mais pour donner un sens à la commission sous-régionale des pêches il fallait que ñu négocier par une même une seule et même délégation mais comme euh, les les les États n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts ku ci sa intérêt ngay xool la mer de la Mauritanie était beaucoup plus poissonneuse que notre mer et donc Mauritaniens yi bu ñuy signé accord de pêche ak euh, Union européenne dañ ko def indépendament du Sénégal mm -hmm. mm -hmm. Cap-Vert la même chose Guinée-Bissau la même chose donc pendant tout le temps mois que j'ai été ministre la pêche amul accord euh, entre Union européenne Sénégal accord de pêche amu ci. Mhm. amoon na accord de pêche ak les canneurs canneurs mooy ñiy pêcher thon. Mhm. et dafa amoon obligation de débarquement du thon sur le marché local pour permettre à la SNCDS. Mhm. d'avoir de la matière première. loolu moom amoon na fi bu SNCDS mënu la jënd c'est à ce moment-là que les canneurs c'était des Espagnols et des Français avaient le droit d'exporter leurs produit mais amuñu woon accord de pêche entre avec le. ce que jàpp nga ne yoon la est ce que jàpp nga ne quand lu lu xaw a yenu maanaa la malgré que nee nga du yéen a ko doon def ak yooyu noonu euh, du ci jamono ji nga xam ne ci nga fa nekk mais euh, au moins yor nga secteur bi miin ko tey bu ñu la doon laaj tey sa avis ci euh, lu toll exemple wala Mauritanie wala Guinée signé Union européenne nga xam ne ay réew la yu bari du benn réew du ñaari réew mais ñaar fukki réew ak juróom-ñaar est ce que loolu loo xam ne tey loo jàpp ne lii war nañ ko mën di continuer di ko def wala da nga jàpp ne dañ ko war a Dakar mais man dama ne ñu am commission sous régionale des pêches boo xam ne amul njëriñ parce que commission sous régionale des pêches presque mooy pays UEMOA hmm. tous les pays de l'UEMOA e hmm. hmm. huit pays membres de la sous commission régionale des pêches le le siège est à Dakar et il n'y avait que deux pays qui contribuaient au fonctionnement de cette sous commission c'était le Sénégal et la Mauritanie yeneen pays dañ ci bokk rek mais duñ cotiser le secrétaire général de la commission est un Mauritanien le siège est dama mos a défendre euh, comme thèse qu'il n'était pas normal que les pays membres de la sous-commission la dem di négocier séparément il n'y allait pas de notre intérêt jaaduwul woon mhm. c'était pas normal parce que sinon lan mooy njëriñu sous-commission bi ay séminaire tout le temps ay réunion tournante tey Guinée-Bissau gannaaw suba euh, Praia gannaawaatu suba Conakry et cetera c'était ça mon combat Euh, Aliou Sow man dama bëggoon wax ci beneen angle. vas-y ça ne dérange pas bien sûr. Mm-hmm, vas-y. Euh, euh, voilà un, un, un premier ministre donc qui qui qui est passé par plusieurs ministères précédemment boo xam ne un inconditionnel de Abdoulaye Wade qui l'a soutenu jusque justement son départ c'est certainement beaucoup d'expérience ci ci ci ci ci politique gu Sénégal en tout cas système politique Sénégal tey mu doon mbir yu doy waar yu fekk xew ci réew mi kaawu xalifa Sall amoon fii histoire bi ni mu demee ba foofu tey amul droit voter amul droit nekk donc candidat ci quelques élections tant que mi ngi euh, sous le donc euh, euh, joug de la loi kaaw Karim aussi ñëw euh, te su ñu nga ko léegi ne d'accord niñ ko niñ ko niñ ko niñ ko niñ ko niñ ko niñ ko sanctionné tey ji nii Sénégal dafay continuer politique bi day nekk ñooñu ils ont encore de l'avenir dans l'échiquier politique sénégalais ñu war a ëllëg xëy na bokk si ñii di euh, euh, ñaan baat ñaan baat laaj baat laaj baat laaj baat ci réew mi pour euh, peut-être diriger Sénégal comme ñëpp niñ ci amee droit waaye yàlla dafa def ni tey Khalifa Sall mi ngi ci kaw loi boobu ba tey Karim Wade la même chose ma bëggoon xam d'abord pour ki mu mujjee tudd Karim Wade ci àqulaay taala bu dee xam nga ko te xam naa ni xam nga ko mun nga ko nag ne doo ko wax mais man damay xam ne xam nga ko parce que mënoo nekk ancien premier ministre Sénégal proche Macky Sall xam réew mi nu muy fonctionner xam les arcanes du pouvoir te loolu doo ko xam mais nag peut-être mun nañ ko bañ a xam mun nañ mun nga ñu ko bañ a wax parce que man loolu daf ma kumpa trop monsieur le premier ministre. Mm-hmm. mooy euh, euh, ni mu demee comme dama jàng tuuti droit des fois damay interpréter di interpréter di réfléchir mais finalement dama ne na peut-être lii transfèrement rek laa ko mën a tuddee. Mm-hmm. mooy maanaam jël benn nit. ci benn kaso yóbbu ko ci beneen kaso parce que mën nga nekk ci kaso tout en étant euh, mm-hmm. mais ñu lay surveiller waale que Karim Wade musul dem France bi mu demee Qatar ba tey génn fa parce que amoon na war a mën a am possibilité dem seeti yaayam ak këram ak mbokk yaayam yeeg na ou tantam yi nekk foofu. ak i doomam ak ak i doomam. mais mosul déplacé wu jóge Qatar dem euh, maanaam France ca Versailles ci waa këram yi ma ne man booy xool Karim niñ ko jëlee fii daar daar génnee ko kaso 18 heures. yóbbu ko amaana sax direct la waroon def waaye amaana li mu ñaan li ko sëñ Moustapha ñaan sëñ Sidi Maxtaar ci turu sëñ Moustapha mm. mu dem dajeeg euh, euh, sëñ Moustapha ci kër maître Madické Niang pour benn temps le temps que mu mu mu jaar foofu rek transité dem directement aéroport avion bi bi mu ñëwee c'était vers dix huit heures dix sept heures quarante cinq mi ngi dem trois heures quarante cinq du matin ou deux heures quarante cinq donc avec euh, le procureur di Qatar qui attendait te procureur Qatar en général mooy pratiquement le rôle du ministre de la justice. Mm-hmm. maanaam buuru Qatar bee ko yónnee. Mm-hmm. déplacement bi ci biir kaso bi la nee naa la transit boobu c'était juste parce que dañ ko ko doon may ndax sëñ Sidi Maxtaar. Mm-hmm. parce que sëñ doomam taawam sëñ Moustapha di nekk xalifam léegi mu ngi nekkoon di ko xaar mu gis ko mu yóbbu ko directement ci aéroport ba mu dem Qatar depuis Karim Wade benn source officielle waxul ni Karim Wade génn na seen euh, Qatar génn dem bitim réew pourtant Karim Wade bu yorul passeport Sénégal. il est allé waaw non yooyu sax kiiwul. ak Rwanda xam ay frontières dem na tamit Rwanda Taala nee na dem na Rwanda. Thierno Talla moo ko wax. nee na dem na Rwanda. waaw mais mu xam nga ne jour. officiellement mënoo ko <laughs> a dem France parce que surtout même bu amul passeport sénégalais. am na passeport français bu ko war a mën a déplacer donc en principe théoriquement du affaire u passeport. Hmm. moo ko waroon mën a éviter euh, empêcher pour mu déplacer wu dem. il est en donc moo tax ma xalaat ni. parce que loolu yoon wax na ko transfèrement am na mën na am nga jël nit ci kaso déposé ko ci benn kaso ci ay accord yu ñuy signé accord boobu xëy na mën nañ ko tuddee. non mais Aliou Sow yaa jaxase histoire bi de. kii dañ ko gracier. non jaxal non nekkul transfèrement dañ ko gracier. non dé grâce mooy peine ba jeex na. non la mooy transfèrement mooy buñ la jëlee. prison bi yóbbu la prison ba nekk continuer sa peine. non non non bu ñu la demal xel yi Aliou tamit. lan la la xel dama da nga expliquer nu mu demee. non déet non gracier gisoo décret de grâce ah ah, am na non bu dee am na non xam nga non non xam nga non compte mm-hmm. grâce ni ñu koy bindeel mais déglu ma il faut pas me perturber ni may li may xalaat su ma paree mën nañu ko bañ a xam mais man maa ne transfèrement xam nga tax ma ne transfèrement mm-hmm. parce que koo gracier normalement am na droit génn dem doxi soxlaat mm-hmm. te li ma xalaat mooy est-ce que moom euh, teyewuñ ko pour le reste de son machin nu mu tudd temps bi ñu ko nar a tëj mais jeex Ah, ah. temps bi jeex na temps jeex na waaw mun na jeex léegi mais gisuñu ni Karim Wade musul jóge Qatar dem France te Karim Wade am na possibilité loolu jaaxalu leen. da nga jàpp dañ ko fa man de jaaxal na ma. comme niñ defoon man man man par exemple. man daa jaaxal na ma man foofu rek man man foofu rek. prisonnier bu ñu jëlee Alcatraz la yóbbu Guantanamo. jarul non non xam nga jaaxal. non non non parce que Guantanamo euh, Guantanamo dafa am ay terroristes yoo xam ne ñu doon accusé. Hmm. cerveau bi mooy euh, li xewoon. Euh, su ma jumul Liban xaw ma euh, kii Iran. bi ñu leen jëlee Guantanamo yóbbu leen Qatar. loolu moom euh, suivre nañ ko. dañ dañoo signé loo xam ne par exemple Qatar la ñuy du ñu du nekk kaso. Mm. Euh, mooy dem nañ sax dafa euh, interview ñi nga xam ne ñoo def. anti bul li nga xam ne moo xew. mais mais li nga xam ne moo xew foofu noonu mooy que ni ñoom biñ dañ ko jël yóbbu ko mais dañ ko signé loolu moom dañ ko signé. loolu laa wax que ni ñoom du ñu am liberté maanaam foofu noonu dinañ nekk seen kër ak mais mais du ñu lay nekk mooy yeggali comparaison man man man non dañ ay questions yu ñu posé la dañoo jaaxal na ñëpp foog naa mm. ensemble léegi moom nga posé moom nga posé PM je ne sais pas de c'est pas pareil parce que quelle est la question voilà léegi bàyyi mu toog quelle est la question vraiment PM da lay laaj quelle est la question est-ce que Karim la c'est à moi que la question les avocats de Karim Wade n'avaient pas waaw ça c'est vrai. Hmm. oui on n'avait pas plaidé parce qu'il y a eu une violation hmm. de ses droits et on a boycotté l'audience alors Karim comme ni ko Mame Birame il a bénéficié d'une grâce présidentielle hmm. xam nga décret de grâce moom c'est très simple parce que constitution bi xam article 32 xam ban article encore mooy le président la République peut faire grâce point waaw mais grâce bés bu amee nit ki am na droit jóg non déglu ma ah xam naa fi nga jëm dafa am lu gën a gaaw dafa am lu gën dañ ko gracier kon Karim Wade Qatar ka mu toog bañ fa jógee moo fa téye boppam mais non waxuma loolu de waxuma loolu de ah, loolu moom loolu la bi yëpp Mame Birame pour ñu ci Mame Birame li ngay laaj wax est-ce que Karim moo téye boppam Qatar wala téyewu ko boppam voilà alors loolu allez-y poser la question à Macky Sall non xam nga lu tax parce que non non parce man xam nga loolu yéen a ngi laaj mbootu genn naka la eh, mën a attends naka la mën a xalaatee. lu war a téye Karim Wade au Qatar. mais paye mën nga ko xam yow mën nga xam nga bokk. mën nga ko plaidé wu leen ci ay avocat am nga bokk. mais mais donc Karim Wade bu nekkee Qatar. ba pare yaa mën a xam lu mu téye Qatar. est-ce que yaakaar nga ni laaj c'est simple man doo doon yow sama avocat mhm. même boo plaidé wul parce que dañ violé sama loi ñu jël ma yóbbu ma sama droit ñu jël ma yóbbu ma Qatar te doo xam man lan moo ma téye Qatar ma sama avocat mais dañ fi wax les grâces loolu lay jàppale ci li nga dañ fi wax les grâces bi tey waaw yow da nga méprendre ci rôle avocat avocat bu la défendre tribunal ba mu jeex. waaw jeex na. jeex na mais non ce n'est pas que l'avocat. en tant que avocat yéen est-ce que jotoon ngeen lettre de grâce. demande euh, décret de grâce. décret de hmm. grâce est-ce que jotoon ngeen ci. signé woon ngeen non avocat du signer décret de grâce. non c'est le président qui signe les décrets. c'est le président qui signe les décrets. non mais récupère yéen à l'époque il y avait un premier ministre. oui. après c'est rendu public. Euh, avocat kenn du ko notifier décret de grâce. Hmm. c'est rendu de grâce accessible à tout le monde. ak euh, parce que c'est c'est publié au journal officiel. Mm-hmm. Hmm. Mm-hmm. le décret est dans le journal officiel. absolument d'accord. d'accord ah. li ma la li ma la bëgg laaj tey jii mooy euh, da nga jàpp que ni créé juridiction boo xamante ne bu baaxul la. Oh, oui d'accord boobu moo doon suivi nag c'est pas mal. voilà tey jii boo doon boo doon boo doon évaluer yoonu Sénégal da ngay jàpp ni yoon bi dafa nekk justice bi tey jii pouvoir politique bi dafa am benn. wala amul indépendance comme ni ñu koy waxee wala am na indépendance. alors xam nga euh, je vais je vais rappeler benn euh, bu boutade. Hmm. benn avocat mu sa wax. Mhm. procès Mademba Sonk. Mhm. maître Abdou Dialikar. Mhm. Hmm. ki nekk tey procureur général près la cour suprême moo nekkoon président wu juridiction boobu. mu ne ko monsieur le président. Hmm. l' indépendance du juge c' une question de choix. le un juge il choisit d'être indépendant ou de pas l'être. d'accord Abdoulaye Wade a dit la même chose. les, les textes. Oh leur garantissent l'indépendance. d'accord les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions sont soumis qu'à l'autorité de la loi. Ah. en théorie. alors bu nekkee pratique bi tey jii bu ñu bu ñu gisee CREI yi nekk juridiction euh, exception boo xamante ni président Macky Sall moom moo ko indiwaat tey jii euh, nga gis ni nga jàpp que ni CREI yi nekk na juridiction boo xamante ni dafay jalgati. <coughs> ak ak yelleefu doomu boo xamante ni dafay violer ak ak yelleefu doomu aadama. quel est le rapport le président de la république bi nga xamante ni moom moom fi nekk pour nekk le gardien de la constitution war a fexe ba sàmm ñëpp seen ak seen yelleef président boobu noonu est-ce que tey jii war na mën a indi juridiction boo xamante ni dafay violer ak ak yelleef ñi nga xamante ni doomu aadama est-ce que nekkul di violer li nga xamante ni moo nekk ci suñu constitution bi nga xamante ni mooy le gra moom moom moo war a nekk euh, gardien wu constitution boobu li ma la mën a wax mooy hmm. président Macky Sall indiwu fi CREI mais moo ko réactivé daf ko fi fekk hmm. réactivé ko réactivé ko hmm. Et il n'y était pas obligé. Il n'y était pas obligé mmh. du tout. Mmh. Mais c'était son choix. Mhm. mais est-ce que choix am boobu noonu tey jii du la mettre mal à l'aise yow mi nga xamante ni mettre ma benn mal à l'aise bàyyi ma bàyyi ma terminer question bi yow mi nga xamante ni euh, gis nañ la wane nga chaque fois ay principe nga ni ngay défendre tey jii du la du la mettre mal à l'aise ngay défendre koo xamante ni dafay indi juridiction bi violer ak ak yelleef doomu aadama ça n'a rien à voir avec mon engagement à côté du président Macky Sall donc sa engagement bokkul ak li nga xamante ni da koy def ma ne hmm. euh, li ma la bëgg a xamal mooy je ne suis pas un détaillant un épicier qui va se mettre à se demander le président a posé tel acte est-ce que je suis d'accord je ne suis pas d'accord il a posé tel acte et cetera je ne suis pas à ce niveau-là d'accord donc da nga jàpp que ni jàpp que ni yi benn benn détail la boo xamante ni bu amul solo la. fu njuñ li ma la laaj boo ma waxee. boo boo li ma la laaj nekkul détail nekkoo détail dafay mel ni da nga bëgg da nga bëgg minimiser question boobu alors que c'est loo xamante lu am importance la parce que ba président Macky Sall falo dafa ñëw indi crédit yi nii dafa war indi li nga xamante mooy réduction des comptes mhm. cité woon fi ay nit plus de vingt cinq personnes bu moo jumul ni vingt cinq personnes yooyu dañu luubal àllu askan bi tey bu ñuy rendre justice dañ koy rendre au nom du peuple sénégalais yaakaar naa ni buñ koy def di jalgati ak ak yelef doomu aadama yow nga bokkoon ci avocat yi nga xamante dañ taxawoon ni Karim Wade dañuy violer ak ak seen euh, euh, ak yelefam tey jii man daf may daf may daf may jaaxal ngay dem di ànd ak président bi nga xamante ni moom moo indi lii violer ak ak yelef doomu aadama laa wax parce que quand même euh, quand on n'est pas d'accord avec non, le pont attends, de foot Aliou non je comprends mënu mënoo mënoo mënoo mënoo d'accordul euh, euh, euh, bi c'est vrai que maintenant que sax yaa ngi may réfléchir loolu ndax est-ce que finalement c'était opportun tuddee ko ko man xalaatu moon loolu d'accord mais quand même loolu je crois que moo gën a ñàkk importance. moo gën a nekk détail. moo gën que que parce que CREI quand même si. vous avez le courage de taxaw ne d' accord non wax naa leen je suis contre la CREI. parce que. la CREI est-ce que vous en avez parlé au président. mais attends, est-ce, est que moom lan la ci ah, je suis pas dans sa tête. je suis un homme libre. Hmm. je réfléchis par ma tête. je suis contre la CREI parce que la CREI hmm. est contraire à tout ce que j'ai appris en droit euh, la charge de la preuve incombe au demandeur or dans la CREI il hmm. appartient au prévenu de, la preuve la licéité oui. des biens qu'il a acquis moi je suis contre ce et votre ami euh, président de surcroît de la République quand même euh, li mu def nii loolu est-ce que acte boo xam ne la ci démocratie ak li fi jotee xew yëpp depuis Abdoulaye Wade a accédé au pouvoir ak ci ci évolution ci wàllum démocratie est-ce que xalaatoo ni wàññi na euh, euh, démocratie réew mi ci attitude yooyu mu am euh, teg ko vis-à-vis justement de ce de ce CREI là bi nga xam ne ñëpp xam nañ ñi ana lu taxoon. ñu tegoon ko fi te ki ñu ki ko fa tegoon sax ay raison la woon par rapport ak certaines personnes yoo xam ne am na si koo xam ne président assemblée nationale la tey bokkoon si ñi taxoon ñu ñu tegoon loolu euh, kilifa googu tegoon mbir mi donc yooyu yëpp faisant ça fekk ni est que xalaat nga ni moom moom moom moom warul def de réparation par rapport au tort bi nga xam ne moom la def surtout que objectif u CREI yi ñaar fukki nit yu juróom yooyu ñu tegoon yëpp amaana ñaar rek lañ ci toroxal lool lool loolu loolu lan nga ci xalaat quoi est-ce que vous pensez que ni loolu war na mën a kon ne ci réew mi nii en 2022 sachant que ni euh, euh, encore une fois depuis yu bari jot na fi xew ci wàllum évolution démocratique ci wàllum démocratie. Mm-hmm. Aliou ma dolli la ci est-ce que du sax <laughs> moom da ko fee tegoo. mais mais c'est extrêmement important même boo bëgg a tontu sax ne ko je ne mais euh, parce que c'est un homme de principe. man d'accord naa man j'ai appris à le connaître vraiment aw ma tontu. joxe naa sama position par rapport à CREI point. non mais xam je ne suis pas dans la tête de. du président Macky Sall d' accord euh, euh, Souleymane Ndéné Ndiaye ma euh, on comprend vos difficultés. fi ñu toll nii bu doon yow lan ngay ce n' est pas des difficultés. d' accord mais. vous exprimez vos difficultés à tenir ce débat xam nga. Ah, su fekkee ni bii ñii xam nga su fekkee da nga nekk ko premier ministre du Sénégal Aliou Aliou même ma ñëw rek su fekkee da nekk ko premier ministre du Sénégal. à un hmm. moment de ta de votre vie politique. Hmm. nga taxaw ne les transhumants il faut ñu jàpp loolu nga dem ba ci biir nga dem ànd ak le pouvoir de Macky Sall. ah non wul. oui euh, euh, léegi léegi Pape Mokhtar am lu mu expliqué nga ne ko je ne suis pas épicier je ne suis pas dans les d'épicier. Mhm. di xool naan le président moo def li moo te bi ñuy commencé wax nga ne. pont Foundiougne ba la ñu tuddee Mandela d'accord ma ci. Mhm. loolu moom il faut être épicier pour di lijjanti ku ñuy tuddee pont ku ñuy tuddee kii. léegi li tax Pape Mokhtar ci sa commentaire yow. oui sama li tax li Pape Mokhtar di wax am solo. Mhm. finances primes du Sénégal vous êtes mhm. avocat donc défenseur des droits de l'homme oui défenseur du respect de la loi oui défenseur de la présomption d'innocence oui wax nga ko léegi il n'y a pas que ça a pas que comment se fait-il alors que yow ci sa bopp nga mën a dem soutenir un président qui dit je m'en fous de tout ça mmh. ça mhm. ce n'est pas des détails absolument euh, xam nga euh, si vous ramenez la oui. question à euh, cette euh, boutade aussi simple, mmh. je, je, je, je, perds le fil. Moi, c'est euh, ça la vérité. Mmh. Hein? Je soutiens le président Macky Sall, non pas parce que mmh. euh, il euh, viole les droits, il, il, il, il, est conforme à tous les traités internationaux qui garantissent l'exercice des droits, etc. Mhm. Mais je le soutiens politiquement parce que j'ai une convergence de vues avec lui. Sans être d'accord ouais. sur tout. Ah non, je ne suis pas d'accord sur tout. D'accord. je ne suis pas d'accord sur tout. xalaat ci si li ñuy wax fii yëpp. à l'avenir su ma sama sago dañuy supprimer CREI yi. Ah, d'accord ah, voilà ça c'est clair. alors man benn question laay posé ah. benn question yéen ñëpp laa bëgg eh, les gens nga fi yàgg. si on doit faire ça yéen ñëpp que li may dafa eh. le juge parce que il est l'ami du président dégg lu baax li mm-hmm. que il est l'ami du président ou bien on le juge parce que Souleymane ne devrait pas être avec le président. ou bien on ñetti question ou bien dañ juger parce que Souleymane warul seetaan président di def yenn yi ngeen jàpp ne dëppoowul ak ta question d' abord euh, bi euh, on le juge pas. vraiment mm-hmm. ça la première chose. on le juge pas. Mm-hmm. on n'a même pas la prétention. de le juger parce que kii c' est un mm-hmm. ancien président du Sénégal. donc on amuñu benn prétention de juger. ce qu'on fait c' des observations. par rapport à l'histoire récente. du Sénégal. Mmh. ce qu'on est en de dire bi tey ça ne pas du siècle dernier. moom bi wax na sax ne ça date d'il a dix ans. Mmh. dix ans boo laajee maam xarit lan la doon def mu wax la ko léegi. waaw léegi boo laajee corom mu wax la ko. premier ministre du Sénégal mënoo toog fii wax na yaa a dix ans euh, je j'ai oublié que tel tel chose c'est pas possible. ma dolli si léegi Moustapha Ba xam nga j'ai dit on le juge je ne raisonne pas comme vous semblez on le parce que loolu laa am tendance man di ko dégg ci population ah nit yi. voilà j'ai dit on le juge. mais waxuma. yéen vous le jugez. mais mën naa tontu sa question voilà oui voilà mën naa ko tontu parce que ah. bu amee ñu koy juger aussi par rapport ak euh, c'est vrai que dañ koy juger par rapport ak ànd bi ànd ak président Macky parce que euh, y a beaucoup de gens yoo xamante ni ñu comprendre. Mm-hmm. Euh, ki nga xamante ni dafa doon défendre Karim Wade ñu jàpp ni Karim Wade victime président Macky parce que Macky da ko jaay doole mhm. ba noppi ba ñu condamné Karim Wade mu dem wëlbatiku di ànd ak ki nga xamante mooy président Macky mhm. ñu bëri di ko comprendre mhm. peut moom bu ko dina tax ñu bëri comprendre ko loolu ñu bëri ci Sénégalais yi dañuy am problème compréhension et puis beneen bi mooy ci kaddu yi nga xamante ne da ko jotoon na yëkkati Moustapha mi koy rappelé léegi ni ku transhumé nañ ko nañ ko nañ ko nañ transhumé peut-être moom jàppee na ko jóge ci parti dem ci beneen parti mhm. moom dafa créer parti seeyal boppam ci Benno Bokk Yaakaar mhm. ñu accepter ko mais sénégalais bi nga xamante ni peut-être du def yenn discernement yi mais day jàpp que ni dafa transhumé tout simplement et puis tamit mën nañ ko tuddee transhumance mhm. parce que même bu nekk jóge jóge jógewul ci parti dugg ci beneen parti dafa créer parti dem fekk ji coalition boo xamante ni dafa nekkoon en contradiction ak moom parce que Pape Matar foofu laa bëgg a rebondir mooy question bi ma ko naroon posé muy lu soxal sénégalais yépp mooy bëri na tey ji yenn sénégalais yu bëri yu la mere ndax dañ ne da nga rejoindre le président Macky Sall tey nga am occasion bi wax la pourquoi nga dem rejoindre ko loolu la loolu mooy question bi d'expliquer alors hmm. euh, li tax ma rejoindre président Macky Sall c'est parce de le rejoindre euh, pour le travail qu'il fait pour notre pays. Et j'aurais été un mauvais opposant de Macky parce que euh, j'ai entretenu avec lui des relations très fortes. Ça c'est honnête. dañu tase ci dëju yaayu Samuel Sarr. Mm j'étais loin de m'imaginer ce que le président Macky Sall pouvait dire. Mm-hmm. quand il est arrivé jaalee ba pare il s'est retourné en face de moi. léegi nag dama bëgg ngeen may ma ma waxtaan ak Souleymane Ndéné Ndiaye. Mm-hmm. moom ànd nañ def lu ne. dama bëggoon waaw dégg naa ko def ngeen lu ne. <laughs> doo ko ànd géew bi sax ba ci kanam. <laughs> booy sàngu ko waay booy. waaw <laughs> waaw dama sàngu waay. alors euh, mu ne dama bëggoon xam naa ne am na parti man am naa parti mm-hmm. mais mu ñëw jàppale ma ci liggéey bi may liggéey Sénégal. Mm-hmm. alors ma toog ay fan laaj ay nit. quelle conduite doivent dois-je adopter mais ñu ne mais amuloo benn conduite booy adopté li Macky Sall wax kay leer na dafa bëgg nga ñëw ànd ak moom ngeen liggéey. Mm-hmm. mais ma ne ko écoute j'accepte la main tendue point maintenant je sais que ça m'a coûté beaucoup de choses. Mmh. des injures mmh. des invectives. Mm-hmm. des calomnies et cetera des colibés. surtout pour un poste de PCA. non non non ce n'est pas bien. le plus important le poste de PCA. Euh, ce n'est pas que. j'ai accepté le rejoindre Macky pour un poste de PCA ce n'est pas ça. que mu woo la da nga ñëw rejoindre. Euh, je disais que poste PCA bi c'était une nouvelle compagnie créée par Macky Sall excusez-moi de. Mhm. d'ouvrir cette parenthèse de la fermer après. Mhm. Euh, le président avait créé une compagnie et il souhaitait que cette compagnie là ne suive pas. Euh, la même logique que, que les, les compagnies deux, précédentes. les deux dernières comme Sénégal Airlines. par exemple comme Sénégal Airlines ak ko jiitu. absolument donc il fallait quelqu'un euh, comme moi, il a pensé que j'avais le profil euh, pour pouvoir surveiller la marche de cette compagnie la mhm. hein, qui a acquis des avions tout neufs, comme jamais dans l'histoire du Sénégal, c'était le cas. Mosuñu jënd avion bu bees. Mhm. Là, on a acheté deux Airbus A330 Neo. Ben, on va en acquérir huit autres Airbus euh, A220. On en a reçu un. En novembre, on va en recevoir encore, etc., jusqu'en donc je ferme la parenthèse alors donc vraiment euh, si j'ai rejoint Macky Sall c'est parce qu'il me l'a demandé. mu yàqal la lu bari nga ne. yàqal na lu bari nga ci lu bari. parce que juste mais dama ko assumer Facebook sax nee nga bu gëstoo sax di ci bindu parce que boo demee bind sax ci réseaux sociaux yi da nga dégg loo xam ne du la mais oui parce que léegi moo xew Sénégal. ma bëggoon a moo tax ak sacrifice yi nga def yëpp moo tax ak sacrifice yi nga def yëpp euh, boo ko waxoon boo ko waxee yenn yi yoo xam ne d'accord ci moom war na quand même euh, reconnaître d'abord reconnaître loolu euh, seet ci au de su sax li ngeen jot a séq yéen ñaar démb tey doog ñëw nga bàyyi ko ngeen daje ci dëj mu ñëw nel dafa bëgg nga liggéey nga ñëw di ko liggéeyal à mon avis il doit être satisfait certainement mais moo tax yow bu fekkee dafa am ay question d'importance yoo xam ne dafa am ci réew mi am ay difficulté nga wax nga ñëw di ko ko wax ne ko d'accorduma ci war na la bàyyi xel parce que euh, ñëpp xam nañ ni quand même Karim Wade xam nga man man man li ëpp importance ci man mooy que ma am sama liberté wu wax li nga xam ne d'accord naa ci d'accord ma ci mais war na la mën a reconnaître nga def nga wax ko dara mu def ko na mu koy apprécier nag loolu moo koy apprécier boppam mm-hmm. lan nga wax Macky wax Macky Sall lu am solo question d'importance pour le pays nga wax ko mu exécuter man maa ngi doon fàtte sax que président Macky Sall si ab dëj la la invité woon

est-ce que du technique pour di leen tànc maanaam je ne sais pas. ci moment ne ko a a bañ. sa yaram day daw man. naa waxal. ah ah Baba daal mooy laaj nee ndax mën naa wax. sûr damay laateeti rek damay laateeti rek xam nga sama sobo ma sono <laughs> alors euh, PM aussi euh, faloon nañ la député bu ma juumul eh? assemblée nationale nga ni ma ni faloon nañ la député nekk naa ko deux fois euh, bu mujj bi mooy bu ma juumul 2012 bu ñu ba ngeen perdre ba ngeen perdre élection yi da nga démissionné woon lan moo mën nañu mën nañu jàll si ci lu lu waral nga démissionné parce que je ne me jeune ne me retrouvais plus dans le fonctionnement du groupe Euh, dafa am benn benn moment euh, législature 2012 bi ñuy voté la loi de finances. 2013. Hmm. Hmm. bi président commission des finances dafay rapport am tous les députés ont approuvé le rapport parce que on est député du Sénégal je ne suis pas député d'un parti. Hmm. mais quand des ministres sectoriels arrivent y en a qui votent ne votent pas. man damay damay bokk travaux de commission yi bu ñu ñëwee assemblée nationale ministre bi waxee lu ma convaincre je vote sans me soucier de savoir si mes collègues oui, du groupe du groupe on voté ou, ou pas voté mais ma dem ci kanam ma ne je ne peux pas appartenir à un groupe parlementaire et voter le plus souvent contre le groupe il valait mieux que je démissionne est-ce que boobu doo indi contradiction par rapport li nga jëkk wax léegi muy député du Sénégal ak député député euh, benn parti politique oui j'ai été élu sous la bannière d'une coalition oui. par le PDS mm-hmm. mais franchement par honnêteté et acquis de conscience je ne pouvais pas continuer à siéger à l'Assemblée nationale et à voguer à contre-courant de mon groupe. kon nekkatoo woon député du peuple député. si si j'étais député du peuple mais élu sous boo nekk député du peuple est-ce que ça est-ce que ça euh, euh, veut pas dire que c'est du peuple à l'Assemblée telle euh, qu'elle est construite actuellement non xam nga on ne dit jamais mhm. député du PDS oui on dit député à l'Assemblée nationale mhm. alors comme j'étais député à l'Assemblée nationale mais appartenant à un groupe parlementaire mhm. j'étais censé être tenu mm -hmm. par les règles du groupe parlementaire par la cohérence oui. et, et dans tout ce qui se faisait dans le groupe mhm. mais comme je ne me retrouvais plus ka ma groupe bi moment boobu euh, c'était alors comme je ne me retrouvais plus. dans ce qui se faisait dans le groupe j'ai démissionné. da nga ko sentiroon mais ñu bëri dañu ni sa démission bi dafa judd après ba ñu signé euh, hmm. ba ñu en tout cas ba ñu rejeté motion de censure bi nga xamante ni ñu doon def euh, pour tëbal gouvernement bi bi bi. histoire euh, là. Hmm. Hmm. motion de censure contre Abdoul Mbaye. je n'ai jamais été d'accord pour cette motion de censure. vous savez pourquoi moi j'ai été l'avocat avant ñuy ubbi les chambres africaines là. Mm -hmm. et moi j'étais contre les chambres africaines qui sont illégales. je vais vous dire pourquoi tout à l'heure mhm. Mhm. Euh, sur la motion de censure j'ai refusé de signer le, le, le document parce qu'il fallait douze députés. Mhm. le président du groupe et certains députés sont venus chez moi. ils m'ont dit Souleymane tu es obligé de signer tu es un député de notre groupe parlementaire. si si. j'ai signé. Mhm. mais ma ne je ne viens pas à l'Assemblée nationale parce que la motion ne tenait pas. Mhm. elle ne tenait pas la route. Abdoul Mbaye banquier. Mhm. on euh, dépose une motion de censure sous prétexte qu'en tant que dirigeant de banque il avait collecté de l'argent euh, mal acquis. alors que son travail. ça ne tenait pas la route. ça ne tenait pas woon par procuration. je n'ai jamais donné de procuration jamais. Jamais. Ça, mais tu as signé. Euh, la motion de censure mais je n'ai pas donné de procuration à qui que ce soit. Mm. Ah. li Moustapha wax sànq kon moom lay rejoindre mooy que ni mhm. euh, pour que nga nekk assemblée nationale di def liggéey ba nga xam ne moom lañ la fa tege mooy bu pouvoir bi jaaree fii nga jàpp que ni yoon la malgré que opposition nga bokk nga ànd ci ak ñoom bu dee aussi pouvoir nga bokk opposition bi bañ loo xam ne yow jàpp nga ne ba loo xam ne lu jara bañ la nga bañ ko day jafe ci député et sénateur ah, Sénégal je confirme. Ah. alors sur la laa tey tey boo nekkee assemblée. day jafe je parle pas du principe day jafe dans les faits nga nekk un député du peuple pourquoi parce que y a la des partis politiques qui fait que tey yow bëggoo voter des groupes parlementaires qui font que tey yow bëggoo voter une motion de censure mais on vient ñëw ba sa kër ne la il faut nga signer parce que suñu groupe nga bokk ça veut dire que tey pour être député du peuple à l'assemblée c'est lu yomb c'est compliqué pour xeex loolu yoo yaakaar ne mooy pexe bi pour mm-hmm. xeex loolu parce que dafa dugg am njëriñ oui non xeex loolu fexe ba député bi mun a. justement très liberté à l'Assemblée nationale. autant mu am beneen fois. très bien très bien bi tey man dama yaakaar sax ne euh, tu bien fait pour ñu des ci assemblée nationale. Mm. xam nga débat actuellement nii. moo doon euh, augmenter le nombre de députés. je ça. pense que finalement la majorité a reculé euh, d'après les dernières infos. mais le problème bi assemblée nationale bu Sénégal am tey te ñëpp xam ko mooy li Souleymane Ndéné wax sànq c'est-à-dire que député du peuple nga. mais tu es élu sur une liste. liste boobu Mouhamadou Biteye wala coro moom mooy toog bind. Mhm. Oh, mën na nekk le président de la République mën a nekk le chef de parti bind ne diw ak diw ak diw ñoo nekk suy candidat. Mhm. ñu bari ne tey su ñu bëggee am une assemblée qui soit vraiment une assemblée du peuple il faut qu'on change le mode d'élection des députés cest dire que ni ñuy falee député du Sénégal ñu réfléchiraat ci mhm. la majorité des députés tey. boo leen dee reproché ñu ne ñoom ay député wu Macky Sall la. Mhm. quelque part xamoo nan lañ fa ñëwee. Mhm. parce que ñooñu finalement nañu leen fale na ko loi bi organisé c' est pas la faute à Macky Sall. Mhm. mais naka loi bi organisé dafa dem ba tey le député se sent plus redevable au président de la République qu'au peuple. comment faire tey pour que député bu demee je crois que le siège Djibo Leyti Ka que le mandat de député ko waxee woon noonu. comment faire que loolu nekk une réalité Moustapha Diop que je su ma nekkee député ma war a sentir que ni li ma fa yóbbu mooy xaar yàlla gi ma dëkk plutôt ko dama fa nekk parce que le président de la ca bureau ba mu toog ca palais décidé ne man lay bind pour ma nekk député non Moustapha mm-hmm. je pense que li nga wax euh, c'est très réducteur du rôle du député. ah déet réducteur kay duñ ko fa <laughs> ah non non non non monsieur saaga léegi. xam nga. <laughs> boo nekkul sur le champ politique. Mhm. mën nga def élucubration. ah li may def nag def simplification. non non dama wax ni Pape li may def moom loolu. réalisme politique. xam nga mhm. mënuloo nekk assemblée nationale. Mhm. ce gouvernement bi nga xam ne. tu es député du peuple. mais tu es député quand membre d'un groupe parlementaire. surtout quand tu appartiens au groupe parlementaire de la majorité. ce gouvernement di déposer euh, déposer benn projet de loi. Mhm. boo xam ne. Mhm. dafay bokk ci lii président di conduire la politique de la nation. Mhm. nga ñëw naan du ma ko voté. ah Diagne Fada def na ko di. loi 23 juin bi ba mu taxawee ne carrément li ñuy bëgg def loo Abdoulaye Wade du loo xam ne. lu Moussa Sy def na ko euh, Moussa Sy def na ko mais oui Maître El Hadj Diouf def na ko loolu. y plusieurs députés qui déjà fait. loolu du lu bees. waaw kon kay waaw du lu bees kon mais mhm. dafa am ay moments yoo xam ne euh, y a des ce ne sur toutes les questions <coughs> les députés mhm. euh, ont une convergence de vues avec le gouvernement am na ay moments yoo xam ne députés yi gouvernement duñ bokk du duñ duñ bokk jëmukaay du législature bi de maintenant li nga wax sànq mhm. euh, ci tànneefu député yi xam nga loolu lu muy indi le mode d'élection le mode d'élection des députés mais mën na fi indi assemblée nationale boo xam ne kenn du am majorité te loolu baaxul ci réew instabilité la installé ci réew. comme la quatrième comme la quatrième république comme la quatrième république. il faut que mu am liste majorité raw gàddu. Mhm. am liste proportionnelle départementale. man loolu laa d'accord mais mais le, le niveau de maturité de notre classe politique. alors maintenant su fekkee ne la qualité des députés qui sont à l'Assemblée nationale. mais xam nga mm-hmm. boo fi commencé wax naan. Mm-hmm. Euh, pour ñu élire un député il faut que mu am niveau bi il faut moom coow nga indi ci dëkk bi. non waxuma euh, dégg déggante wuñ de. Mm-hmm. waxuma niveau boobu. waaw dama ne le niveau de maturité de notre classe politique. yéen ñëpp. su fekkee ne da ngeen dem ba ne suñu changé mode d'élection bi mën nañu am euh, assemblée boo xam ne kenn du mhm. am majorité mhm. est-ce que tey vous n'êtes pas capable de réfléchir à se diir que ni lii ñu yore nii mooy une assemblée boo xam ne l'écrasante majorité ci benn côté lañ bokk gënul est-ce que mënuñu fexe ba am loo xam ne dina fexe ba comme li Aliou Sow doon wax du ñu dem vers une instabilité assemblée boo xam ne kenn du am majorité mais au moins ñoom assemblée xam ne une majorité bu yanu maanaam mais tey les députés qu'il y a à l'Assemblée xaw ma ñaata lañ cent et quelques bokk ci benn parti koo ci wax cent soixante cinq cent et quelques bokk ci benn parti koo ci wax mu ne la man député wu président mm. Souleymane Ndéné vous avez été premier ministre xam nga ne lii c'est pas cohérent li ma xamal daal mooy mm-hmm. euh, man je suis d'accord pour que qu'on maintienne le système actuel qu'on le maintienne comme qu'on le maintienne mais mm-hmm. il faut quand même pouvoir choisir des députés qui comprennent le du vote de la loi réglé nga problème bi. parce que Moustapha. Mhm. profil ba ak avec quel profil. Euh, pour la suite euh, avec quel profil je ne veux pas vous dire avec des gens qui ont un master ou une licence. non non dafa laaj profil rek la. Hmm. nan la war a mel loo ñëw loi de finance. oui nga di ko voté. oui soo gisee valise bi ñuy dugal taxi yi mais ku jàngul école noo koy xamee. wallaay. Mhm. entre nous. wallaay mais man rien contre les anatomes aussi. doo ko xam am na député bu ñu invité fii mu ne am na ñu jàng ñoo xam ne sax il ne se donne pas la peine de lire le document. mais am na député bu ñu invité fii édition du soir Moustapha. Euh, mhm. yaakaar naa su ma jumul Théodore Serif Monteil la mu doon wax ci. Mhm. Euh, ni ñuy voté projet de loi yi mu ne lu ci bëree bëri déjà même euh, loi de finance yi bu ñu koy indi. da ngay gis ministère bi dañuy ànd ak seen gàngoor mooy. secrétaire généraux yeeg ñu nekk ci ministère yi député bi nga xam ne tey benn Issa Tine la wala benn Moustapha Diop moom kese la peut-être ak assistant parlementaire yi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw temps est-ce que loolu du xay na mooy nekk aussi le problème mooy député bi du am assez d'outils yoo xam ne da mën a faire face pour mën a décortiquer ab loi mais c'est ça c'est ça le problème il ne sont pas bien outillés ah parce que assistant euh, amul ñu ko euh, savoir encyclopédique non ñu ko non c'est ça c'est la vérité mm-hmm. mais boo xoolee loi de finance déjà mm-hmm. xoolal temps bi ñuy examiner projet de loi de finances bi ak temps bi muy jeex. mais dañ koy def presque à la va-vite. oui dañ koy évacuer rek. oui formalité doon. Mhm. dañ naan la chapitre tel à chapitre tel qui vote. oui c'est c'est ñu groupe boo voté. oui te te en oubliant que li ñu voté à l'USE dafa am incidence directe sur notre vécu quotidien mais alors est-ce que loolu euh, les députés le savent. que ni dafa am influence li ñuy voté. Eh la je donne l'exemple simple de la loi de finances. loi de finance la bokk na important ci ci. Euh, amul amul. mën naa ñëw kon député yi fa nekk. <laughs> maam Biram député yi fa nekk moom day arrangé ñi leen fa jiital. ah de toutes les boo jëlee assemblée nationale teg ci bopp ba koo xamante ni nekkoon na directeur cabinet Senghor. bu boo hmm. affaire yi avancé. et aussi maam Biram bu nekkee les meilleurs dañuy démissionné. <laughs> ma ni ko bu nekkee les meilleurs dañuy démissionné. mais euh, kii bi kase rakaay bi kase moo fay des dañu baal ma ci terme bi. <laughs> Pape Matar bàyyil rakaay yi. <laughs> mais dama ne bu nekkee les meilleurs. yow sama xarit nga xoolal. <laughs> am nga jàlloo nga san man ma san sama yaay njaay la san sama nijaay nga waaw ngeen ngeen nekk bi di raak rek <laughs> non bu a raak bu ñu raak bu ñu raak c'est-à-dire que Papa Tall dafa raak bu doon bay nit yi avec des mots yoo xam waaw cest à muy wax am na parce que ni provocateur wax di am solo dafa am moment boo xam ne assemblée nationale bu Sénégal je crois boobu Abdoulaye Wade mooy président de la République xaw ma kan moo ne premier ministre uh-huh. da nga doon fekk assemblée da doon fekk assemblée maa ngi jégalu ma voilà <laughs> da nga doon fekk assemblée nationale bu Sénégal Djibo Leyti Ka Moustapha Niass Madiène Diouf Madior Diouf mhm. euh, Abdoulaye Bathily mhm. Amath Dansokho Ousmane Tanor Dieng Khalifa Sall Pape Babacar Mbaye Aminata Mbengue Ndiaye boobu assemblée bi ak loolu tamit mhm. y avait de la valeur waa léegi ah léegi ñu moo tax kii ne mais avant bu mel noonu li ko eh, jur mooy li Pape Makhtar wax uh-huh. su fekkee dafa dem assemblée démissionné mooy mooy fii aw ma fi place taxal ma bàyyil ko rakaay bii ñu toog fi di wax lu leen leen non moo ko fi indi ah kii laa faute ñi leen bindal ci liste yi ñu falu mooy le président de la république moom bi nekk palais toog moo tax moo tax ma doon ah. xalaat euh, moo leen bind ci liste yi ñu falu après ñëw ci waaw xam nga député mm. fonction politique la donc dañuy ñëw tànn ci gox yeeg gox goxaat yi. Mhm. ñi fa gën a représentatif. moo tax type de scrutin bi la ñu war a changer. chaque jour ma wax ko mais dans dix ans fa ngeen a mujj ñu ñu nga bi baaxul. mooy ah. tax ñu dugal nit. moo tax nee nañ ko indi jàmm ko fi jëlee indi fi coow de. <laughs> augmentation bi daal mais nañ ko def système stabilité la ñu ñu diviser Sénégal en nombre de circonscriptions nombre de députés nombre de circonscription électorale mu doon système à ñi ñi dem foofu di gagné ci ci gox yooyu ci circonscription yi mais foofu gars yi duñu choisir n'importe qui ku dem di buñ teree ñetti circonscription Kër Massar par exemple politique de deux choses l'une ah soit dañoo tayel wala refuse de réfléchir ah. mais oui oui parce que dire que ni buñ ko defee rek instabilité ñëw alors dans d'autres pays les gens ont réfléchi pour faire de léegi li Aliou Sow wax nii lañ lañ def mais par exemple xool Moussa bu ñu ko defoon rek ñu ne Kër Massar ñetti ñetti député ñoo fay jógee ñetti député yi léegi ñu ne euh, élection am na mais c'est un système à deux tours ci intervalle deux semaines premier tour bi euh, ku neex ñëw oui ku rem ku remplir les conditions nga ñëw léegi bu fekkee ne amul ko am 50 pour cent ci ci première circonscription par exemple euh, deuxième tour du am. Mhm. bu fekkee ne amul deuxième tour bu fekkee ne amul ko am 50 pour cent nag kenn am 30 kenn ki am 22 ñeneen ñi am 3 ak 7 ak yooyu. Mhm. ñoom ñu jéem a xool nan la ñuy négocier. ñoom entre ñoom ñaar ñaar ñi mu ñaar ñi jege. ji jege 50 pour cent yi ñu dem deuxième tour. tour yooyu yëpp jar na ko day gën a gudd Aliou. non xoolal soo leen dajalee du gudd du gudd ñett nga fa soxla nga dajalee leen. non dem. mais ñu taxaw xaar amul. déedéet mu juraat lii rek. Ah? li ngay wax de bu ñu ko defee mu juraat lii rek doo baaxul bi ma wax nii. parce que population ñooy choisir moment boobu ci gox bi ku ñu choisir aussi ku ñu tippoo moom mooy def erreur bi ku ku juum ku def lu baax sa gox nga ko defal au nom du peuple mais ku def lu bon aussi sa gox ko defal. mais Aliou Sow mais na am na loo xam ne aussi erreur la ci xam ne président su ma ko daggaatee du baax après maam Biram ñu may Salma ah s'il vous plaît ah, ah. léegi Moustapha nangu naa sa kàddu maam Biram li la ci li la ci ah. bëggal génneewu la ci de <laughs> dama dama jàpp ne euh, système bi c'est important mais nit ñi tamit. Mm-hmm. nit ñi ci seen bopp. Mm-hmm. c'est c'est fondamental. Mm-hmm. parce que quel que système bi nit koo xamante ne nii am na yenn comportement yi moom système bu gën nga jàpp ne moo gën boo ko ci jaaralee fal bu demee jikkoom rek lay wone donc nañu defaraat nit ñi d'abord ak ñan ñoo war a dugg ci politique. loolu dafa may permettre ma euh, euh, tudd sa benn mbokku njaayeen euh, bu tudd Souleymane. Serigne Mbacke Ndiaye mu waxoon en deux mille onze deux mille douze que Abdoulaye Wade su perte pouvoir bi ñu bëri si yéen dinañ dem kaso pouvoir bi changé le président Macky Sall le 10 mai 2012 mu ressuscité yi moom xaarul sax dafa prêter serment avril rek. 10 mai 2012 mu ressuscité yi ah ñu bëri kat jàpp ne li Serigne Mbacke Ndiaye daan wax. xëy na mooy xeeñ ñu dem ba ci biir on a ko que à part Karim Wade amul benn vraiment tontu régime Ablaye wadd kilifa gu mag bokkoon ci régime Ablaye wadd bu dem ci prison comme ni ko Souleymane Ndéné Serigne Mbacké Ndiaye doon waxee on a vu au contraire que pratiquement responsable yëpp dañu dem fekki ji Macky Sall quest qui l'explique dafa leen a napp ngeen dem fekki ko wala da ngay na jàpp ne. non man gars moom bokkuma ci yiñ mos a cité ci affaire. waaw waaw waaw waaw je sais mais fekki nga ko rek te responsable yow yaa nekkoon le dernier premier ministre de Abdoulaye Wade. oui c' fond c' symbolique. oui c' est fondamental. c' est quelque chose. quand léegi ma ne comment ça se fait que baron Abdoulaye yooyu yëpp dem retrouver wu ci le président Macky Sall est la continuité du pouvoir Macky ak Abdoulaye Wade benn la wala dafa. am lu ñu leen xuuxal moo tax ñenn ñi dem foofu wala qu'est-ce qui s'est passé. ma dolli la si pour yóbbaale. Hmm. est-ce que it tamit doonul li nit ñi di ruumandaat ne da ngeen a bëgg euh, retrouvailles de la famille libérale. ci noonu sax naka nga gisee ah. <laughs> retrouvailles <laughs> yu si bi yow. libéral poñte bi koy rafetlu wala da nga koy xaaroon nga ko. alors euh, trois questions. <laughs> Euh, xaaruma woon nag retrouvailles boobu entre Idriss Seck ak président Macky koy rafetlu. koy rafetlu. parce que Idriss ñëw na fekk si président Macky Sall donc théoriquement yokk na ko doole hmm? man euh, ñoo bokk lu ñu def lu ko ngaañ est-ce que ah, non xam nga est-ce que du euh, nekk sax waa ñuy tudd noonu hmm. Euh, ma ne xam nga. Euh, est-ce que li mu def ak du ngeen ko xaar mu xaar leen ko mu tontu question yi ngeen ñëw. Ah, mais sama gars yi nag tey moom mais sama gan gi tamit may leen ko mu nooy quand même dama koy dépassé. c'est un homme expérimenté ah, ah, damay damay damay sax. Euh, c'est un avocat. perdre le fil de. <laughs> d'abord Mame Birame question Mame Birame d'abord Mame Birame lan nga ma njëkk a laaj. tous les barons yi dem fekki ah voilà tous les barons. alors je peux répondre pour moi mais je ne peux pas répondre pour les autres. Mhm. Ah, noo noo noo gisee tamit la fekk ñi nekkoon ci Ablaye Wade yëpp se retrouve chez Macky Sall. mais parce que entre euh, ab Macky Sall ak ñi nekkoon ci Ablaye Wade mais benn lañ. Hmm. c'est la continuité du pouvoir quoi. on était tous ensemble. donc Macky a eu des contradictions avec certains d'entre eux. Omar Sarr ne devrait pas être ne devrait pas être. Euh, mais jël na suffisamment de hauteur pour que mu accepter ses anciens frères du PDS. Mm-hmm. c'est tout hein képp koo xam ne bëgg nga majorité. sa parti bu dee la dina nekk APR rek la Macky Sall di bëgg gouverner du dem il faut que muy élargie ay base am. non non mais attends dafa am dafa am lu ci xew parce que pendant que yéen ñi newoon ci Ablaye Wade yéen a ngi ñëw Macky Sall mu ngi dàq ñi mu àndaloon 2012. ba tax mu attention attention loolu nag moom beneen débat <laughs> waaw ku Macky Sall dàq ak ku mu ah, parce que man loolu sama yoon nekku ci. <laughs> ma mbiram bu ma dugal lu <laughs> ma la may wax daal mooy. li Serigne Mbacke Ndiaye waxoon d' abord mais li Serigne Mbacke Ndiaye waxoon da nga koy laaj lu taxoon fu nga ko tegoon. laaj ko man mënu ma nekk à la place de euh, mon frère Serigne ah, Mbacke. ku ne ko ne bu waaj bu bu ñu ñàkkee pouvoir bi dem. Euh, dem dafa am lu mu xamoon ça revient à ñun ay sàcc lañ rek. ah déet moom xam nga ma nekkoon ci position bu muy sàccee. Mm. Serigne Mbacke dirigé wuloon ministère. Ah. il était ministre conseiller. waaw du président rek du woon DG du dara. porte-parole du président. mais avec la CREI ça ne marche pas comme ça. avec la CREI ça ne marche pas comme ça non non je sais avec la CREI n'importe qui. qui gère des deniers publics. kon sëñ Mbacke Ndiaye am les mêmes risques. non non amul budget amul dara sëñ Mbacke Ndiaye. Mhm. non ak la CREI amul problème. il est agent de l'État c'est vrai. il est euh, un agent de l'État en tant que ministre conseiller. Mhm. Mhm. Euh, fa ko waxee mais da nga nga laaj ko lu tax mu waxoon loolu y avait une liste. Mmh. ce qui était complètement illégal. mooy dresser une liste. dresser une liste de gens euh, yu ñu sànni à la vindicte populaire. mais kan moo bindoon loolu liste bi. toog ñi toog waxtaan ne diw ak diw. ak diw la loolu loolu. mais mais Macky Sall ca bu la ca bu la neex fi mu jëm. y vingt sept personnes vingt sept personnes. journal télévisé vingt heures ay nit. or y' a quand même des la procédure pénale. voilà d'innocence moo ci jiitu. Mhm. mais nga xëy rek comme ça toog sa kër seetaan télé ñu tudd sa tur c' comme si euh, da nga sàcc alalu réew mi. ah déet c'est la vérité loolu la ko gars yi woon kañ. mais loolu lañ ko gisee woon waaw mais bien sûr. te te de ah. toutes les façons amul kenn ku nekk ci liste bi ku sénégalais yi naan kii lu mu fi wut. Mhm. dëgg la dëgg la jaaxalul woon kenn de ñi fi nekkoon ñëpp yoroon ay poste yoo xam ne la woon. voilà comme moom mi ñu ngi doon fàttali premier ministre. yéen nag premier ministre le dernier premier ministre de Wade. waxalal ba ba bi le dernier premier ministre de Wade. Pape Matar mais maa ngi la moo dugg sa tur. wàcc la te wàcc wax na ko léegi. Matar yoo xam ne nii yëgul xam nga lan laa remarqué. xam nga mën naa waxal foofu dafa gën a muus Pape Matar. waaw mais oui il est beaucoup plus dangereux que Pape Matar. merci. bi bi de bi ma duggee ci saal bi gis Dakar gi dama ne sooy bandé am na problème boo gën a subtil boo gën a subtil teel il est plus dangereux comme tu dis <laughs> ne moom la ñuy wax non day tontu pareegul non mais dafa wax lu am solo booy la liste là c'est illégal voilà c'est le de donner une liste de personnalités mm-hmm. à la télévision comme ça oui à la vindicte populaire. chasse aux sorcières c'est ça qui n'est pas. chasse, chasse aux sorcières. c'est, c'est une chasse aux et puis c'est rafetul daal. Mhm. loolu moo rafetul woon. oui bu tax. mais est-ce que du Sénégalais est-ce que du Sénégalais ñoo ko bëggoon. parce que gis nga. Mhm. l'enquête par définition est secrète. oui loolu enquête loolu amatul ci réew mi. non l'enquête ne jamais mais il faut revoir. Euh, sama déclaration quand monsieur Abdoul Mbaye faisait sa déclaration politique générale. Mhm. Ce que je lui dit. Parce que la justice, par définition, est une grande muette. Oui. Hum, justice une, une enquête. ce que justice est justice am na ci réew mi. ah léegi day bien sûr la justice entendre. moo xam gendarmerie moo xam juge d'instruction bi. le lendemain presse bi daf koy relayer impunément. oui qu'est-ce qu'il faut faire. j'ai même vu moi un officier de gendarmerie. oui dire à la télévision le contenu d'un procès-verbal. c'est très grave. vous parlez de capitaine Touré. c'est très grave. vous parlez de capitaine Touré c'est très grave. est-ce que duñ ko traité aussi moo m mu mujjee nii. dekkal la leen wax d'abord. non on moom moom capitaine Touré lay wax officier la wax officier de gendarmerie. officier la wax donc quand même. waaw nañ ko laaj man il a préféré de ne pas y répondre donc on comprend. dafa préféré alors donc bu ñu bu ñu moo ko voilà c'est ça c'est ça la question. kan la kooku noonu officier bi ngay wax. ah ben je ne sais pas. ah réfléchissez on réfléchit ensemble. non ñun kay dañu réfléchir nag. parce que looloo si yéen mais kii déjà moom dafa muus c'est-à-dire. il faut ñu koy bàyyi mu dem. léegi nañ ko ne nag parce que taxaw. te buñ ko bàyyee dinañ bàyyee la ko voilà. vous pensez que ma gën a muus. <laughs> mais mais da ngay wax lu am solo quand même. Euh, c' est vrai que c' bien ñu ngi saytee tout mais da ngay wax lu am solo trop. et loolu c' est une préoccupation de tous les Sénégalais notamment des défenseurs des droits de l'homme des défenseurs de la présomption d'innocence tout court mooy tey euh, mën na dal Souleymane Ndéné Ndiaye mën na dal pour x raisons. nga nekk ci loxoy àttekat wala ci loxoy enquêteur wala leneen soo deful ndànk lépp loo wax devant l' enquêteur qui s' appelle Biteye wala Mame Birame Wathie soo xëyee suba see à la une de la presse oui. et on te donne même pas l'occasion d' expliquer lan moo tax nga wax x x raison est ce que loolu yaa enfin d' abord est ce que am yaa moyen de l' arrêter et puis est ce que mën na continuer ci réew mel noonu ñu naan justice am na fa mm-hmm. parce que là on jette tout le c'est tout le monde en pâture. ba pare si c'est pour terminer. comme ça alors je pense que euh, loolu li koy dindi. Mm-hmm. il faut supprimer la collusion. Mm-hmm. entre les services chargés d'enquêter sur les infractions. et la presse mais il y a des journalistes qui ont euh, des relations très étroites avec. la gendarmerie et la police. mais c'est très bien pour un journaliste. Mm-hmm. Mm-hmm. non mais c'est pas bon. pour un journaliste c'est une excellente chef d'État. je journaliste. oui mais ce n'est pas bien pour les principes généraux du droit. pénal d'accord ak yow. mais yenn saa yi bu journaliste bi bañee sax mais la faute ce n'est plus les journalistes mais c'est l'enquêteur attention l'enquêteur loolu am na fu mu amee solo. Mm-hmm. loolu am na euh, bof en c'est une chose en soi. Euh, waaw en en soi mais il faut savoir l'exploiter. non en soi sax. c'est pas normal ay PV wala lu jóge ci entreprise di fuiter. c'est pas normal. mais am na foo xam ne dafa amee solo. Mhm. mooy ci ban cas. kaaw bo personnalité boo xamante ni jàpp nañu ko. Mhm. yóbbu ko gendarmerie commencé koo enquête kooku dafa baax PV yi génn. ah day day day maam Birame quand même. xaaral parce que budul loolu. waaw budul loolu. jàpp ba 24 heures lay yëpp. Mm-hmm. Bougazelli bu amul woon euh, nu mu tudd. bu PV nekkuloo ci mbedd bu doon dañ koo jàpp rek yóbbu ko directement gendarmerie. ñu toog foofu noonu mais gars dañ. mën nañoo mais mais bu boobaa kon li ñuy xeex du am parce que doole da koy defal ñii. bañ ko defal ñii. moo tax ma ne ma commencé en soi. Ah, mais ah. loolu c'est pas normal parce que man d'accord ma ci. te exemple bu gën a graaw mooy li fi def imam ndaw mhm. toog di naan ay euh, téléphone satellite la yoroon ak mhm. ay mhm. pistolet la yoroon et cetera on a vu que dara amu ci côté boobu ce dañ koy tolleen mais mais Ousmane Sonko Adji Sarr dañuy gis que chaque seen bopp dinaa la PV yaa ngi fi PV yaa am na benn côté boo xam ne euh, dina arranger yenn parti li koy indi ce que du yenn saay homme de tenue yi euh, ak lu ñenn ñi lu ñu leen mën a waxal ñenn ñi dañuy toog gis benn dossier bu concerné benn om politique wala benn ku siiw ñu xam ne lii du mujj fenn te ñoom mënuñ ci dara te justice lañ fi taxawal. Mhm. ñu ah, ñu porte presse ba pare ma dolli ci leen ci justice boo nii dañuy. Euh, dañuy jiixi jaaxa ci moom waaw jiixi jaaxa moom. donc lii yëpp man li may wane mooy c'est-à-dire que suñu justice bi. amatuñ ci moom ça nous ramène à ce que Aliou Sow avait dit. voilà c'est mhm. ça c'est-à-dire que xam nga euh, justice moom. yaa y toujours à, à dire mmh. le fonctionnement de la justice. Mhm. Mais foo ne faut pas mettre tous les magistrats dans le même sac. Du tout, du tout, du Il faut surtout éviter ça. Il faut surtout éviter ça. Il y a des magistrats qui sont indépendants. Intègres. Qui sont intègres. ñoom magistrats yi xam nañu seen biir ñi ci intègre xam nañ ko. te muy dëgg. Mm-hmm. ak ñi ci jubadi. xam nañ ko. Mm-hmm. c'est quoi le problème. xëy ah, c'est quoi le problème. Euh? est-ce que du ministère bay problème bi ak. Euh, maanaam link yi finalement. parquet parquet ministère ministère présidence. moo tax gis nga. est-ce que euh, link yi nga ne nga ne est-ce que da ngay d'accord ak Ablaye Wade quand il a dit que ni certains magistrats c'est comme les esclaves du quinzième siècle je pense da leen di libérer ñu dem ba ci bunt ba ñëwaat ne non il préfère rester esclave. non Ablaye Wade le lien ombilical. le parquet Ablaye Wade l'a répété aussi. entre ah, le parquet et mm-hmm. la chancellerie ce lien là. Mm-hmm. à mon avis dans des pays comme le nôtre ne doit jamais être rompu. ah oui ah oui mais euh, Ousmane Camara le rappelle à suffisance. Mm-hmm. l'écrit la parole est libre mais l'écrit l'écriture est serve. ça veut dire que bu ñu la joxee instruction écrite tu es obligé. de te soumettre. au desiderata de l'autorité. Mais mm-hmm. quand tu prends la parole mm. pour requérir, alors là, tu prends ta liberté. C'est ce qu'il a fait au procès de Moumoudja. Voilà. Mm-hmm. Donc, et figurez-vous qu'à mm-hmm. cette époque, ce que les gens attendaient de Ousmane Kamara. Ah on attendait de lui ah, oui. qu'il chargeât Momodoudia et ses compagnons. Même, des religieux, même des religieux, que Oui. Mmh. Parce que c'est la première fois dans l'histoire judiciaire du monde, mmh. un procureur Djok benn benn. absolument parce que gis nañ fi ay 30 ans. il est revenu sur les faits. Mhm. et sur Mamadou Dia mu ne. Mhm. ce qu'il a fait est une faute. Mhm. parce que la primauté du parti sur l'État amul ci benn constitution bu ñu ko c'est une pratique nag. oui. mais compte tenu de tout ce qu'il a réalisé pour le Sénégal. il mérite de larges circonstances atténuantes. absolument. pour Ibrahima Sall il n'a rien fait. Val xam nga euh, l'infraction. et personnel mais mënoo ñëw tout le monde dans le même sac ñëpp ñoo def infraction bi naan kay. da yow reproché nañ la bi. fait bi ak fait yow def léeg léeg loolu amu ci. donc après son réquisitoire mais les avocats de la défense ont sauté sur l'occasion kontaan kontaan. Hmm. ñu ne c'est bi tey dama lire benn livre bu tudd mémoire d'un juge africain. Euh, Ousmane Camara Ousmane Camara moo ko bind di nga dégg li mu wax nii mais xam nga am na ay juridictions spéciales yoo xam ne. Mhm. c'est des juridictions politiques. comme la CREI la haute cour de justice. comme la mhm. CREI xam nga haute CREI sax ay magistrats fa nekk mais haute cour de justice. non am na magistrat euh, haute cour de justice. oui président bi ak ñaari assesseurs ay magistrats la ñuy ñu des ay députés mais ñu des ay députés. Mhm. ñu xamul ñu xamul député yi nga xam dañ laa contre. voilà c'est lañ naroon a jaar la Idrissa Seck. oui. Mhm. waaw Salma waaw bi tey euh, comme moom nag avocat la mënu fi teew ba dem te laajuñu ko lan la xalaat ci procès Ousmane Sonko aji saar ak lan nga xalaat ni moo ko del ba léegi ni si alors euh, procès Ousmane Sonko Adji Sarr si procès il doit euh, uh-huh. procès il doit y uh-huh. parce que loolu mu ngi dépendre lan nga xalaat ci dossier bi disons euh, non dossier bi nag euh, man maanu naa suffisamment pour bañ wax ci loo xam ne xaw ma ko hmm. maa ngi xaar comme sénégalais yëpp hmm. li xew ca suite beauté loolu lay xaar li ma xam daal mooy mhm. Mhm. tous les sénégalais sont d'égale dignité c'est aussi sont égaux devant la loi et devant les charges publiques mhm. en principe surtout devant les charges surtout devant les charges publiques et devant la loi en alors euh, je pense que mënuñu à mon avis di ma yaakaar procès boobu dëgg rek a fay jàll Sénégal def naa weesu nañu foo xam ne dañuy ñëw indi magistrat ne ko tëjal ma diw. Hmm? def naa weesu nañu. Karim Wade ah bi nekkoon Khalifa Sall non non xam nga non xam nga defal ndànk. Karim Wade ñu dàq procureur ba Karim Wade ak dossier Khalifa Sall gars yi ko tëgg dañ ko tëgg. man j'étais constitué pour Khalifa Sall. Mhm. mais est-ce loolu mooy ñëw ba léegi bu ñu nee euh, président bi. non non non xam nga aussi gis nga xam nga ce qu'il faut éviter. Mhm. politique mooy ngay xuus ci dossier boo xam ne xamoon naa ñu xamoo aboutissant yi mais li li li ci loon dégg nga ko. mais mais njiitu réew mi. dañ koy jiiñ comme quoi ñi nga xam ne la xalaat ne ñii ñoo ko mën a daaneel politiquement da di hmm. njatt te jaarale ko ci wàllu justice. bu ko jaaralee ci Karim Wade ñëwaat ci Khalifa Sall ñenn ñi dañuy taxaw ne loolu la bëgg a def ak Ousmane Sonko. Hmm. rawatina ci euh, dossier bi ñu nekk. je pense que dossier Ousmane Sonko ak Adji Sarr dinañ ko ci li ma yaakaar bokk yaakaaruma ne mën nañ ko ñàkk a jaarale fudul yoon. Hmm. yaakaaruma. est ce que mën na nekk quand même avec tout ce qui s' est passé. est ce que mën na nekk euh, au mois de mars. 2021 14 mhm. morts. est ce que mën na nekk mënuñ leen passer en perte et profit. Mhm. même boo ko yaakaarul est ce que mën na nekk. lan est ce que mën na nekk. lan mën na nekk. dossier bi jaarale ko ci lu dul yoon ah non mënuñ ko jaarale ci lu dul yoon c' est pas possible. ah commencé na de. naka nga gisee le cas capitaine Touré. Ah. capitaine Touré capitaine Touré on lui reproche des faits et il y a eu une sanction. des faits y a mu bëgg dem liggéey ñu ne ko doo liggéey. alors fi mu waroon a liggéey nag. dans une structure privée. alors j'ai j'ai malheureusement je n'ai pas écouté la sortie de. Euh, Moustapha Moustapha Guirassy mm-hmm. mais li ma njort mooy xam nga enseignement supérieur. Mm-hmm. pour nga jàngale fa il faut que nga am benn niveau bi. ban au minimum da nga am mm-hmm. DEA DEA amatul. minimum da am bac plus cinq wala six minimum. Mm xëy na loolu rek la foofu parce que bu fekkoon ne remplir na condition de diplôme yi kenn mënu ko dara. dama grâce autonome libre. mais man li ma lire dañu ne l'enseignement demeure une parenthèse parce que li mu wax noonu on a vu à l'université quand même des facultés ñuy lancer ay appel d'offres appel à candidature master 2 bokku ci. waaw pour jàngale. waaw pour jàngale. pour jàngale. waaw mhm. master 2 ban faculté la loolu. faculté yëpp mën naa la génne quatre trois communiqué quatre communiqué yoo xamante ah ne. ah bon loolu mosuma ko gis. si ça existe en tout cas ñun de bi ñu nekkee étudiant. waaw suñu assistant yi. minimum amoon nañ DEA. man personnellement. Mhm. bokk naa j'ai d'anciens camarades yoo xamante ne nii master 2 la ñu am. ñu ngi dekk vacataire à l'université vacataire à l'université waaw. ah mais chargé de cours mais xam nga de vacataire du nekk chargé d' enseignement di joxe cours magistral jamais. non non waxuma cours magistral. non mun na ah, nekk assistant. non waaw mais ko def euh, euh, kii. Euh, capitaine Touré na ko franchement man xaw ma vraiment dossier capitaine Touré. mais xam naa ne bu fekkoon ne Moustapha Guirassi. Hmm. li mu def c' était conforme à la réglementation. Hmm. il ne reculerait pas. Hmm. même quelles que soient est-ce que d'accord nga ak ñi ne euh, du jàngale waru fa jàngale parce que dafa outragé xaw ma. Euh, la gendarmerie la République d'accord ma d'accord ma ci loolu. très bien daal li ma d'accord mooy. Hmm. bu remplir les conditions de diplôme. war na mën a jàngale. très bien gis nañ euh, fi nga xam ne foofu la foofu la mbir yi nekk est-ce que tey en tant que ku nga xam ne nekk nga xarit nekk itam bokk nga ci nguur gi gis nañ ñoo xam ne sax xëy na ñenn ñi jàpp nañ ne écarté nañ leen nañu joxe ay message wax pour que mbir yi am foo xam ne noo xam ne noonu lañ koy defee mel ni euh, Aliou Badara euh, dégg dégg nañ ko rek ci koor gi daaw message bi mu ci woon est que yow itam en tant que Souleymane Ndéné Ndiaye ami de Macky Sall wala xam ne en ci nguur nga bokk wax nga ci ak président de la République Macky ne ko dossier bi kat nañ ci def lii wala ñi nga xam ne ñoo si ñàkk seen très honnêtement u Adji Sarr ak Ousmane Sonko jamais de la vie mm. c'est une affaire qui aw ma lu ma ci wax président Macky Sall. est-ce que doo ko wax mu arrêté. par exemple selon monsieur Diakhoune ci ñàkk seen bakkan. ancien est-ce que waroo sa kàddu. donte ne sax. lancer appel métti lu naa daal li ñi ci ñàkk seen bakkan métti lu naa. mais monsieur événement yi xew. parce que nag irrégularité bi mu ngi tàmbalee. ci ngay convoqué député de lever immunité parlementaire. fa la commencé. loolu hérésie la. fi cuune la. mais ñoom bi ñuy def loolu. mais on a vu quand même un ancien vraiment da nga da nga da nga ñeme li nga nekk. non waaw c' est c' est loolu laa non ñeme na ci li mu nekk. ragal loolu moom vraiment mu ne. <laughs> non <laughs> parce que sa position bi dafa wuute ak beneen position beneen ancien premier ministre koo xamante ne ni moom dafa wax ne nañu jàpp Ousmane Sonko rek yóbbu kaso ba tëj. ku kal la ku kal la <laughs> Idrissa Seck. non non non ñooñu moom doo leen comparé Idrissa Seck Souleymane Ndeye doo leen eh, comparé. bokkul xaw ma daal lu nekk ci dossier ba. <laughs> xëy na ñun ñëpp loolu yàkkamti et c' était la même attente ci dossier Karim Wade moi j' étais pressé de savoir lu nekk ci dossier Karim Wade. oui ba pare xoolal. jusqu'au jour où on m'a donné le la clé USB. Souleymane ne Ndiaye nekkoon nga euh, premier ministre Wade numéro 2 de son parti euh, nee nga bi ngay militer ban 77. 78 78. donc fekk nga les les combats. Mm-hmm. entre Ablaye Wade ak Abdou Diouf. Mm-hmm. euh, il eu même un magistrat juge vice-président de la cour suprême. ndeysaan ñu rey ko fii ndax politique. du conseil constitutionnel du conseil constitutionnel ñu rey ko ndax politique. qui était avocat maître Babacar Seye avocat votre mm. euh, plus euh, xaw ma policiers tamit. oui six policiers ñu rey leen fii xaw ma les événements de. 60 94 j'étais l'avocat euh, des Moustachidines. des Moustachidines li xewoon centenaire xaw ma. lan moo xewoon soixante décembre soixante deux les événements à part mes lectures. Mm-hmm. léegi cette classe politique là Sénégal amoon malgré tous les combats yi opposé woon Wade ak Diouf quand même dañu seetlu woon ne y avait un minimum de de respect et de décence boo xam ne amoon na dans le combat. Mm-hmm. Ablaye wadd bi ñu rayee maître Babacar Seye tous les chemins menaient vers lui. Mm-hmm. taxul ñu gis ne le pouvoir de Diouf daf ko utiliser pour éliminer. de la terre le PDS ak li mu àndal. ñu ñëw ba ci Sénégal gii en deux mille vingt deux Souleymane Ndéné Ndiaye ñu bëgg a résumer la vie politique au Sénégal ci affaire mœurs. Mhm. Sweet Beauté. Sweet Beauté un, un président de la République face à son principal opposant le combat c'est quoi affaire mœurs. est-ce mais, que mais pourquoi vous mêlez le président de la République dans cette affaire de mœurs. je le mêle pas dans ça. mais en tout cas le principal opposant du président. d'accord nga ci. que c'est ñu. mais le président ay mêlé. baal ma wax ko ko parce que non moom moo ko wax léegi. yow yow yaa ko yow yaa ko yow yaa ko wax léegi. Ah. demal du ma wax si parce que xam nga euh, nu mu tuddati nee nga un député kenn du ko convoqué te levé woo immunité parlementaire. waaw nga d' nañ si loolu. mais président la république moo toog mu ne y' a des dans ce pays là balaa ñu leen a convoqué dañ ma koy wax ma xool ndax dë dossier mën na taal réew mi wala du ko taal. Ah il l'a ah, dit déggoo loolu président moo wax loolu il l'a dit ah, il l'a dit ah, donc je me dis que bu ñu demee bay convoqué yenn yi danaan ci nii parce que sinon dañuy taar réew waaw hmm. bu demee bay convoqué le leader de l'opposition comme ni ko Moustapha waxee donc président war na koo yëg te bu dee dem na bañ convoqué Ousmane Sonko ba li fi xew yëpp xew fi c'est parce que le président n'a pas agi looloo xalaat si loolu n'a pas réagi n'a pas réagi bon man daal li ma xam ci dossier Ousmane Sonko mooy nañ ñu euh, ñoom nañ toog rek xool fu wanante mu njëkk. ba pare ba pare pire. <laughs> non non yaa ngi wax euh, dafa nekk dire que man je veux focaliser sur ce ce dossier principalement parce que xam naa ne pour x raison doo ci sori mais euh, li Aliou Sow wax sànq c'est-à-dire que la classe politique ñu combat yi fi jaar yëpp am Aliou Sow mi ngi wax naan sànq ne je suis sûr xam nga même boo waxul. Hmm. ya Souleymane Ndéné yaa gën a xam ne. Hmm. à plusieurs. période à plusieurs séquences de la vie du PDS su neexoon Abdou Diouf PDS kenn du ko waxati. su ko neexoon. non il a l'a jamais fait. ñëpp xam nañ ne. quand Idrissa Seck a engagé son combat wala quand Wade a engagé le combat contre Idrissa Seck Wade am na xa foo xam ne bu foo bu ko élégance mayul woon Idrissa Seck kenn waxatu. Mhm. Macky Sall la même chose. est-ce que c'est pas ça qui manque tey à votre ami Macky Sall. non élégance qui fait sa principal opposant nga ne am na yoo xam ne duma ci yegg ak moom. Hmm. xam nga euh, Moustapha. Mm-hmm. xam nga c'est deux acteurs. Mm-hmm. c'est le président de la République et l'opposition. Mm-hmm. faut pas imputer les fautes au président de la République. d'accord. ñëpp a war a toog xoolaat seen taxawaay. d'accord xam nga dans un pays. Euh, ñàkk bokk parti politique ak nit warul tax ngeen di noonoo. moi c'est mon c'est Ousmane Tanor Dieng était mon ami. paix à son âme. sama xarit la woon. je n'ai jamais été militant j'ai toujours été contre le parti socialiste. mais il y avait des limites à ne oui. Mm-hmm. parce que c'était quelqu'un de poli c'était quelqu'un de bien courtois donc les relations entre les acteurs politiques. Mmh. ne doivent pas seulement être réduites à leurs contradictions politique mais war nañ mën a di gisee. Mhm. gis en France quand il y a problème. Mmh. Macron dafay inviter les gens de l'opposition Macron ak Marine Le Pen. Mhm. mais yàlla yàlli la. Mhm. mais dañuy toog waxtaan. même Macron ak euh, euh son prédécesseur. Hollande Hollande François Hollande il l'a mais ñëpp a xam ne ànduñu. mais il le reçoit au palais euh, au palais de l'Élysée ñu waxtaan. mais ci guerre Ukraine bi rek il l'a reçu. oui oui alors mais au Sénégal euh, opposition. pouvoir duñu laalante la faute à qui. mais loolu mais loolu laa lay je te je vous pose la question. est ko Mame Birame laaj ko Mame Birame parce que en général c'est le président du ci président de. li ngay wax ni ci transhumance lay mujjee mooy en général fu ñu toogee pale lu ci bari. non non xoolal waxtaan te duñu transhumé. Mhm. xam nga Abdoulaye Wade ak opposition bi waxtaan nañ de 2000. à une certaine période. oui dana am ay concertation mm-hmm. mu ngi mu ngi classe bi mu ngi amee ci bi ñu ñëwee <laughs> Abdoulaye après les élections de 2007. mu recevoir opposition bi <laughs> et le porte-parole c' était Ousmane Tanor Dieng. <laughs> il ne discours a été très violent contre Wade. oui il y a eu un clash. mais Wade au moins il acceptait ça. oui c'est-à-dire que Wade il acceptait. toog Ousmane Tanor Dieng mën a jóg jàkkaar ak moom lire un discours virulent contre lui il le respecté tax may insisté ci loolu Souleymane Ndéné Ndiaye dama dégg Alioune Tine mm-hmm. on tout dire de Alioune Tine sauf que il connaît l'Afrique il connaît les zones de conflit en Afrique sama xarit voilà Alioune wax ne Sénégal suñu benn problème am nañ ko mooy boo xoolee en Afrique tous les pays yi nga xam ne ay conflits éclaté na fa dem ba jur sax ay coup d'état li ko waral mooy dañu toll à un moment boo xam ne la classe politique ne se parlait plus. c'est dangereux ku nekk toog. est-ce que c'est pas ce que mais est-ce que c'est pas ces dangers là qui nous guettent suñu demee ah ba am une classe politique boo xam ne le président ma nga ca lam nekk ses opposants nekk ci luñ nekk suñu naree waxante rek ci mbedd mi la ñi yor ay lacrymogènes ñi yor ay xeer. loolu c'est pas normal Moustapha war nañu dépasser loolu. war nañu créer ay passerelles. exactement hein entre le pouvoir et l'opposition mm -hmm. sans que passerelles yooyu ñu mën ko assimiler wala ñu assimilable à des perspectives de transhumance. non mais loolu est-ce que du président Macky Sall moom moo ci war a jiitu. moom mi nga xam ne moom war a tëjee ndaje quand le président en des occasions uniques et importantes lance un appel à tous les Sénégalais mais loolu nag. ci presque un appel au dialogue. mais des actes doivent ah être. Non, mais que, euh, mais surtout quand mais, tu leur parles, tu leur monsieur le premier ministre. Mhm. bu le président lancé un appel ci Covid bi ne on en guerre les opposants sont partis au palais. le oui, rencontrer <laughs> waaw léegi nu ñu def ba après division bi amaat parce que président mu ne guerre la ñu nekk dañuy xeex euh, corona bi jékki la ñu dajale woon ci xaalis yëpp mu jox ko gorom. na ko distribuer ceeb bi mu jënd ko ceeb waaw foofu la sa commentaire la <laughs> mais est-ce que sincérité mën na am si discussion bu nekkee man est-ce que sincérité mën na am ci discussion bu nekkee par exemple euh, ku mel ni xalifa Sall dañ ko jaay doole euh, dugal ko ci kaso bi ku mel ni Karim Wade ñu jaay ko dugal ko ci kaso bi est-ce que tey ji opposition bi euh, du am benn benn réticence par rapport ak voilà sincérité dialogue bi nga xamante ne war na jóge moom la ñuy woote je pense que yooyu nga ma wax yëpp ay événement la yu xew entre 2012 et 2015 16 hmm. euh, les appels au dialogue sont postérieurs à ces événements-là hmm. il y eu quand le dialogue national c'était une occasion pour euh, les uns et pour les autres d'échanger opposition wax li li leen métti hmm. pouvoir aussi euh, bu mënee assouplir yenn rigueur yi mu assouplir ko parce que dialogue mënta ñàkk soxam sax def na ko parce que foofu la taxaw réclamer biir salle des banquets ñu libéré Khalifa Sall mu ne ko il faut procédure bi jeex pour que ñu doog di ci mën a wax c'est ça si dialogue boobu ah, opposition bi li ñu doon li ñu doon gën di demander mooy processus euh, bi nga xamante ni mooy euh, wàllu élection bi ñu mu jaar yoon euh, ñu indi leen ministre bi nga xamante ni aussi ministre des élections la comme nu ko nu ko nu ko nu ko loi bi nu ko loi bi bindee hmm. mais président Macky wane wanewu ci benn volonté est-ce que bu nekkee dangeen di dialoguer ngeen wax li nga xamante ni bëgg ngeen ko ci moom moom ba tey deful benn benn benn benn concession di nga yaakaar ni bu la woowaatee si dialogue dialogue boobu dina sincère non man je pense que quand le président lance un appel à son opposition euh, l'appel est toujours sincère l'appel est sincère à mon avis d'accord jusqu'à la preuve du contraire c'est ce même président qui dit que dina réduire l'opposition à ah, sa ah, plus simple expression oui mais ça kooku xam nga euh, boutade la le président ne peut pas réduire l'opposition à sa plus simple mais est que wax na ko instant bi fi mu ne nii hmm. ma fi mu ne nii est-ce ci non mënu ko il ne peut pas suul ker du ko teree mais mais mu mën koo mu bañ koo mën est-ce que lim ko wax tam jaxase. non non non xam nga am na ay moment yoo xam ne. Mm-hmm. da ngeen di sérieux euh, dans le discours président ce qui est politique et ce le président est dans une politique mais dafay wax politique hein et sa vocation justement c'est de faire en sorte que l'opposition Sénégal. et quand on parle du statut euh, mais xam nga su ko waxee noonu su ko waxee noonu mu ne que le meilleur gagne comme au sport ñu demee élection. ku bëgg a dem dem le meilleur gagne mais daf ko wax noonu ba pare di créer ay superficie ci suuf. Mm-hmm. parrainage bi avant muy am Abdallah Boun Dionne dafa génn mu ne cinq candidats mooy am. Mm-hmm. ba ñu demee parrainage ba cinq candidats moo am. prédiction la woon. <laughs> non non <laughs> comme cinquante huit. la prédiction la woon. comme comme cinquante huit pour cent du moom gisaane daf ko gisaane mais moi je l'avais dit avant lui hein. Hmm? je l'avais dit dans pas que euh, parrainage. c'est un filtre démocratique. Ça dépend, non ça dépend de l'organisation xam nga hmm. parrainage bi am sur le principe tel que ça se fait actuellement ce n'est pas démocratique sur le principe kenn contre ko mais quand yow yow d'accord nga président de la république parce que bu ñu nee nit day wuti parrain c'est pour s'assurer que ne kii di présenté wu am na une certaine représentativité hmm. léegi le président sortant kan moo soxla xam ndax am na représentativité léegi bu nekkee ne moom ñu ne soixante mille signatures la ñuy laaj ku njëkk déposé képp ko am doublon fekk ci la ci. du jël sa liste. ah c'est normal. ah c'est c'est normal c'est normal non non c'est ça ne doit pas. man nag à mon avis à mon avis. Euh, parce que gis la situation qui qui s'est passée en France Zemmour à un donné il était sous la menace d'une non-participation à l'élection présidentielle. mais li mu lan la mais il y a lan la defoon moo tax. oui il y a des maires yoo xam ne. dañ koy parrainer simplement parce que dañ bëgg mu bokk ci jeu démocratique bi. waaw mais ces maires là ne sont pas nécessairement ces électeurs. donc à mon avis. sauf qu'on euh, peut parrainer plusieurs personnes en même temps. plusieurs candidats c'est pas le cas au Sénégal. ce n'est pas le cas au Sénégal peut-être il faudra euh, na euh, parfaire la loi sur le parrainage ça c'est mon sentiment c'est mon avis. pour def ci leen loo gis ne war nañ soppi doublon ñu ne du bañ a tëri compte ci doublon. waaw ku mu neex na pare mooy nga produire rek yow. 60 mhm. personnes yu la parrainé. mais mais PM est sa parti bi moo tax ñuy créer parrainage. seen genre parti yi ngeen xamante ni euh, dañ leen di créer juste pour ñu dugg ci ay coalition te duñu mës a demal seen bopp élection. oui certainement. finalement PM a répondu. mais autre chose. Ah, ah, léegi nañu wax lu nga xalaat si Cheikh Oumar <laughs> avocat la. naka nga xalaat ci Cheikh Oumar Diagne ndax li ñu def nii dañ ko bëgg xeex moom personnellement wala ànd sàmm jikko yi lañ bëgg réduire. non euh, Cheikh Oumar mooy kii am problème ak. Euh, euh, ak Djibril War xam nga ko c'est une affaire privée. mos ngaa gis dossier diffamation instruction bi ñu koy yóbbu c'est normal. comprendre nga ñu yóbbu chef en instruction. mais man nag waaye ay d'accord nag ñàkk d'accord ça ça m'est égal. comprendre nga ko laa wax en tant que juriste. ah oui mais eh, mais un dossier diffamation. Euh, diffamation en général xam nga diffamation ak injure. ce sont des infractions euh, de presse de presse. général. Mm-hmm. d'ailleurs la prescription est courte. entre moment bi nga wax bi nga exprimer sa opinion ñu jugé ko de euh, ñu jugé comme euh, euh, diffamatoire mhm. wala mhm. injurieuse six mois la délai bi en tout cas j'ai rarement en tout cas mosuma ko gis man dossier bu ñu yóbbu instruction mosuma ko gis bu ñu yóbbu instruction xanaa moo tax ma laaj léegi vous vous en tant que vous en tant que avocat hmm. xam nga ne yow soo toogoon foofu nga wax loo xamante ni suba dañ mun nañ la see topp du yow la ñuy jox plainte non xam nga man avocat la. xam nga avocat complicité lañ lay toppee wala bi la ñuy topp noo c'est différent quand c'est un avocat. poursuivre avocat. waaw ce n'est pas aussi simple. Ah. non non disons yow doo avocat. Euh, nga toog fii doo avocat wax li ngay wax. ñu ne diffamation la injure. waaw le responsable principal c'est la chaîne qui a diffusé. oui c'est ça. Mm. yow complice c'est le support. c'est le support man je exactement euh, complicité. c'est une infraction d'emprunt et le complice est condamné dans les mêmes termes que l'auteur principal. D'accord. Oui, c'est vrai. c'est ça. d'accord mais ci wàllum législative euh, yi nga xam ne moom lañ Pape Matar doon. juñ saa léegi dañuy parti bi parce jot na waxtu bi jot na. Ah. waaw ak parti bi dañuy dañuy toog ba xëdd ah aywa. yaa <laughs> ci Pape <laughs> ah, sax mi koy junj di wax ci parti mbéy yooyu noonu mais xëy na Souleymane Ndéné Ndiaye du nekk koo xam ne rek day ànd ak ñoom noonu dina leen amal njariñ ci législative yi ñu dëgmal nga xam ne opposition bi ñu am bi ngeen am en face ndax ci nga bokk dañ leen a promettre que ni cohabitation lañ leen bëgg a tegal à l'Assemblée nationale. oui loolu xam nañ ko loolu moo tax loolu moo tax euh, ñu génne jaaj yi euh, mobilisation bi incha allahu bi danañ am beneen taxawaay bu uteeg taxawaay bi ñu amoon ci élection territoriale yi ndax élection bii moo ëpp enjeu élection territoriale ndax. cohabitation musiba la ci réew. déedéet su réew mel ni ah du musiba. xam nga tax muy musiba. du musiba xam nga dañ ne le président de la République définit la politique de la nation. Mm-hmm. or la loi de finances est votée par l'Assemblée nationale. dëgg la mm-hmm. gouvernement moo koy concevoir c'est un projet de loi. foofu ngay xamee ndax dëgg-dëgg ni on n'est pas dans un régime présidentiel et qu'on est dans un régime parlementaire xam nga régime en tout cas ñun ba ñu jàng droit. Mhm. loolu la ñu jàngal. quatrième république c' un régime d' instabilité gis nga Israël la fay xew. Mhm. premier ministre dañ koy daane souvent. 12 kay. parce que mhm. ak Belgique. chaque 6 mois parce que du am majorité. dañuy am ay coalition pour constituer une majorité. loolu warul am Sénégal. si ça se passe si jamais ça ah, se passe. est est ce warul démissionné kon. non ça dépend des non ça dépend parce que Allemagne. il va nommer un premier ministre boo xam ne issu de l'opposition oui nag la xam maturité politique wu suñu classe politique. ah président de bokk ci parti fal un un premier ministre bokk opposition. il gouverne le pays ça s'est passé en France. mais loolu lu baax la. mais foofu nga gisee avec Chirac Chirac l'a fait l'a fait avec Mitterrand loolu lu baax la. yow dafa am lu ma bëgg sax loolu kay yàlla am. Euh, PM dafa wax. yàlla am yàlla bu mu fi am. <laughs> PM dafa wax nga ne ko yow loolu sa xalaat la. alors yow sa xalaat laay laaj ci loolu ngay wax noonu. Hmm. c'est-à-dire euh, bu amee. xam nga PM nee na loolu moom musiba la. moom baaxul yow laay laaj yow sa xalaat. loolu bu amee euh, nga gis ne lu baax la. bi tey ah. man je suis foncièrement démocrate. Hmm. dama gis ne Sénégal expérimente nañ alternance en 2000. Hmm. def ko en 2012 donc loolu kenn duñu ko jàngalati. Sénégal xam nga lan lañ expérimenté gul mooy réew moo xam dañu am un président far fii un premier ministre ak assemblée ba far feneen ñu xool ba xam man nañoo gouverner réew mi ci jàmm te loolu dafa war a mën a nekk Sénégal ma ne suñu maturité politique war nañu may la ko na ko France defee Chirac ak Mitterrand Balladur ak Mitterrand mm. Chirac ak Jospin mais France tàkkul li nga wax sànq est-ce nga ay hommes politiques yoo xam ne seen maturité toll na foofu mais dañ ko war a am. waaw loolu laa lay laaj buñ ko amul nañu nañu. buñ ko amul ñoo xam France Mandela bëgg ngaa nekk premier ministre du Sénégal la française remonte. à la révolution la révolution française oui ñun Sénégal soixante la am indépendance. et après yàggul. donc am na euh, on est euh, dans une euh, dans un pays. Mm-hmm. en mouvement en évolution on évolue on évolue vers une démocratie parfaite mm-hmm. tu as vu gis nga il y a il y a trente ans il y a il ans parce qu'il y trente ans Walfadjri existait oui. hein mais il y a ans mm-hmm. c'était le système du parti unique parti unique parti unique. oui euh, euh, un seul média avant 74. un seul média oui benn média. oui euh, média d'État. Mhm. opposition du dem Soleil du dem. RTS loolu moom ba léegi bi nga am. alors mais léegi bu demul RTS demuñu Soleil. mais mën nañu Walf Fadjri wala ñu dem. non dañu war a dem RTS mais dañu war a dem mais dañu war a dem RTS. je ne sais service public. ba pare beneen affaire beneen affaire bu am solo boo xam ne jar na wax. mooy euh, euh, euh, statut de de l'opposition du chef de l'opposition mm. bi fi Idriss Seck avant muy dugg présidence avant muy nekk ak muy transhumé avant muy avant muy transhumé <laughs> avant muy ak président avant muy transhumé avant muy transhumé parce que ñun transhumé lañ ko gisee parce que ak li mu jotoon wax yëpp ku mënul ku nekk say mots rek dem transhumé ak koo xam ne ah, mënul woon mënul woon mënul woon idéem yeggul dem ñaage xam xamam yem ñoo yàllu yegg moo ko waxoon de moo ko wax mooy xam bu ko toogaatee di ko xool lan la koy wax <laughs> non dama juumoon Modou Lo <laughs> mais pour dire rek statut de l'opposition xam moom lañ moo taxoon ñun ñu ñu gars yi doon ko concours di jéem a faire exister finalement aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes voilà un monsieur qui s'appelle Ousmane Sonko qui a été troisième aux élections présidentielles plus de 700 000 voix nekk chef de l'opposition aujourd'hui ñu doon wax ci statut du chef de l'opposition mu am koppar yoo xam ne dañ ko ko war di jox pour muy entretenir justement oui. sa euh, son son parti et sa coalition te ba léegi loolu dafa mel ni bi Idrissa demee ci Macky Sall ba tey. loolu la ci Macky pare. France euh, loolu bokkoon na ci li doon faciliter le dialogue entre l' opposition pouvoir parce que tey si mhm. on avait reconnu à Ousmane Sonko ce statut de chef de l' opposition jox ko li nga xam ne moom la statut bi yëpp am ah, mais su ko président de la République soxlaa il l' appelle au téléphone ne ko ñëwal palais mu dem ñu waxtaan comme ça loolu mooy évolution mhm. ah. loolu mooy évolution ay actes ñuy mais est euh, boobu dañ ko stoppé je ne eh. crois pas. Eh, monsieur le premier ministre on n'en parle plus. monsieur le premier ministre Moustapha xam nga contexte bu nekk. ak attitude politique ak administrative yi yi siyee. Euh, c'est le contexte qui ne permet pas au président de la République peut-être de poursuivre. Euh, c'est quoi le contexte c'est quoi le contexte local là. le contexte c'est simplement parce que le chef de l'opposition s'appelle Ousmane Sonko. moi je pense bu ñu paree élection législative. dana déterminer le chef de l'opposition. Hmm, c'est une hmm. information. oui ah non logiquement. c'est pas une information logiquement à l'issue des élections ce sera le chef de l'opposition parlementaire oui mais ce sera le chef de l'opposition et de l'opposition attention c'est que xam nga liñ liñ ñu bëri mënul comprendre mooy que euh, par exemple ñu réviser la constitution en 2016 introduire les députés de la diaspora mm-hmm. introduire le statut de chef de l'opposition mhm. Macky Sall li ko neex li nga xamante ni enragé wu ko mu bàyyi ko noonu alors que c'est constitution moom mooy gardien bi bind leen pétition ngeen c'est la c'est ça la vérité Mame Birame <laughs> ba pare est-ce eh. la diaspora am na njëriñ parce que finalement ah. non déet xam nga lu tax ma laaj loolu parce que député mën nga nekk député du peuple ngay liggéeyal la diaspora nga am ñoo xam dañu nekk spécialisation euh, euh, euh, quand on est député du Sénégal, on doit s'occuper à la fois des Sénégalais qui sont au Sénégal et des mmh, Sénégalais qui sont Sénégal. au Sénégal. Point barre, c'est mhm. tout. Point barre. Et puis, tu vas élire quelqu'un qui vit à l'étranger. Mmh. La session parlementaire dure six mois. C'est de mmh. janvier au mois de juin. Mhm. qu'est-ce qu'il va faire. bàyyi liggéeyam ñëw toog. day bàyyi liggéeyam ñëw toog taxawul sax loolu taxawul. du nekkati bu jafe ku bëgg politique na nga ñëw ci réew mi. kooku nekkatul diaspora. il représente qui. bah Mame Diarra Fam est-ce que aujourd'hui il faut demander à ces députés là. Hmm. lan la mën a ils n'ont pas rencontré le nos compatriotes. de de de des de localités où ils vivaient avant. Mm -hmm. il faut le poser la question. est-ce que am na si ku si mës a député si ah, législature. est-ce que c'est mon c'est mon point de vue. monsieur le premier ministre est-ce que am na si aussi beneen question ci législature bi bi mu mujj député diaspora bu dem Australie Australie am na sénégalais. oui bu dem euh, Nouvelle-Zélande. bien sûr bu dem en Malaisie. te pourtant ay circonscriptions la yoo xam ne fal nañ fa député dafa am lu taxoon ñu fal leen fa. donc moi je pense que ana mu njëriñ. alors yaakaar naa bu ñu toppee Souleymane Ndéné bëgg nga nekk premier ministre Macky Sall. Ah. Euh, est-ce que bëgg naa ko nekk. Hmm. premier ministre Macky Sall. ah yow question bi ma posé c'est une question kon. est ko nekk je ne sais pas. bu la ko proposé woon looy def ah bu ko proposé woon ma jël ko. ah kon kay bëgg ma koo de. laajuma ko doxuma ko. ñaanuma ko. waaye bu la ko proposé ngeen su ma dégg mu woo ma ne ma saa waay kaay ma ñëw. ah la bëgg. mais kon ma jël Karim Wade Karim Wade président de la République qui vous ministre. dama bëgg a piégé <laughs> non dëgg dëgg bu baax xoolal nañu xaar nañu xaar amnistie bu pare mais amnistie bi xam ni si nañ ko def quoi moo gën a ah, rafet li li li baaxul quoi injustice yooyu la sénégalais di dund dafa am beneen loi boo xam ne sax xëy na avocat nga faaw ñu war cee mën a wax ah. waaw faaw ñu war cee mën a wax muy euh, premier ministre bi nga xam ne moom la Moustapha tudd sànq mhm. ba léegi Sénégal amu ko dégg nañ coow li ci am yëpp que ni da koo war a teg war a koo teg euh, parce que yoon lii la wax waru koo teg da koo war a teg naka nga ko jàngate yow si yoon que ni président am na ñoo xam ne fii ni jàpp nañ que ni nekkul dans la légalité parce que li muy signé dafa am premier ministre boo xam ne. moo ko war a contre signé comme ni nga doon def ak président Abdoulaye Wade. moom kay waxoon na léegi ne ne la ci déglu. à l'heure actuelle à l'heure actuelle monsieur le premier ministre kan mooy signé. moi je suis hmm. que comme le poste de premier ministre. Hmm. a été intégré dans notre constitution. Hmm. le président doit le nommer. sans délai. très bien sans délai. Ça, c'est de vue. Mm -hmm. C'est du juriste que je suis bu jeex. d' accord léegi ma super. non non non man xam naa tey Mame Birame parce que assumé naa. non et mi ngi am ñu def émission Mame Birame ne tey super maa doog gis. mais eh Papa Dar. est-ce que tey super. waaw commencement bi xam nga dafa ma doon eh, daf ma doon kii. Ah. daf ma doon napp rek waaye. mais super. non non commencement bi daf ma doon napp maa ngi gis sax nit ñi di naan yaa ngi manqué de respect mag ak yooyu. Ah. nañ nit ñi def attention ci émission yi ñuy def. gis nga wax naa ko sànq sarcasme ah. ironique dérision autodérision mhm. ci suñu liggéey la bokk ñun ñuy toog di def chronique mhm. dañuy provoquer invité bi mhm. ba moom mu génn ci gaawam ba dootul defati émission loolu mooy suñu rôle bu nekkoon leen la ñu dem toog fële bàyyi journaliste yi def seen émission eh. donc du manqué respect mag eh. du wax wax ju xamandi du wax leneen non provocateur nga absolument loolu la sama rôle bu ma nekkul provocateur et tu ne penses pas que moi aussi j'étais ah bi de daaneel ah, même ma daaneel moo tax ba mu waxee ma ni ko d'accord parce que xam naa ne moom aussi li mu bëggoon mooy jax sama quelque part sénégalais ñu ni xale bi ko xamante la mais bon je trouve que ni émission bi c'était très bien mm. amul portéwul ay gaaw ci bu mu waree défendre ay principes mm. et loolu lañ soxla mm. nit da ngay say choix man li may li may bañ. man nag Pape je suis un homme libre. mais bien sûr wane nga ko je ma tête. wane nga je suis un homme libre et indépendant. on a besoin de ça on a besoin de ça donc nan nit ñi di def attention ci yenn commentaire ak yenn wax yi. bu ñu nekk di jéem a jaxase yenn affaires yi. sànni bul moi je pense que à ce niveau. Mhm. y a pas de souci parce que. Mhm. avec le temps. moi je suis sûr que mm. les gens qui nous regardent vont assimiler ça mm. parce que avoir des chroniqueurs sur nos chaînes de télé mm-hmm. dafa mel ne lu bees la mm-hmm. Mm-hmm. et comme lu bees la les gens ne peuvent pas comprendre man euh, j'étais pas dans l'émission depuis quelques jours mais je je dis pas combien d'appels je reçois ay gens yi wax wax leen ci Aliou Sow Mokhtar wax que finalement man euh, hier je lui ai appelé ça pour lui parler mais je dis simplement que ni parce que li ñu ñu miinoon mooy benn Moustapha Diop ak Issa Tine mhm. jàkkaarloog Souleymane Ndéné di ko laaj muy tontu ah, ñun sax am nañu problème léegi nag a su fekkee ne le journaliste yow bi tey def sa émission ah. da nga am Aliou Sow Moustapha Diop pa Mokhtar euh, Mame Birame ku ci nekk ak sa façon de provoquer sa façon de dire les choses mais lu bees la c'est ce qui fait d'ailleurs ni souvent da gis kilifa yoo xam ne amuñu même dimension wu Souleymane Ndéné mhm. qui est ancien premier ministre qui te disent que oui ma ñëw ci émission bi parce que nangam ak mhm, nangam mais voilà l'exemple un ancien premier Sénégal moo fi toog on a fait émission boo xam ne bi ñu waree wax wax nañ bu waree tontu tontu na mais après on se loolu loolu leer mais nag fasi gama yow Moustapha ah? fasi gama ah? <laughs> bala ñuy dem ma laaj ko benn question parce que bu ñu duggee ci ci ci moom du ñëw ba ñibbi te waxuñoo moom tuuti ci wàllu waaw ñu xam ne sportif la mais gars yi yéen a ngi la woon Moustapha jàppale attaquant lañ toll dugg ba génn te ñu ko ci loolu lan moo la jëlee ay saalu ah. ak doomu doomu Kaolack bi nga doon bi ñu doon séntu ci yow ak liggéey bi ñu doon séntu ci yow te ñu jëlee la fa lan moo la fa jëlee waaye tam nan nga gisee mandat suma mandat moo jeex d'accord xam mandat six ans la dafa jeex mhm. dañ ma faloon 2015 octobre 2015 mhm. bi octobre 2021 jotee ma def six ans d'accord donc loolu rek la mais je suis je suis un supporter de l'ASC Saloum. doo def comme gars yi laaj yeneen mandat ci liggéey bi nga <laughs> xam ah, ne. ah nee na ndax doo def yeneen gars yi laajaat mandat. waaw non fan kaw la. waaw la est-ce que dina yomb plus que ñoom ñu fa nekk Fallou ma fa nekk. Ah. vraiment dama koy jàppale. ndax ku bëgg Kaolack la te il investit beaucoup dans le sport. et puis les clubs coûtent cher aussi. mais ah mais mais mais euh, monsieur jour bi ñu nga xam ne lañ doon fal fallu foofu. waaw nañu presque ñi fa jaaroon ñëpp yoroon ay saalu ñoom ñëpp fa nekkoon alors que yow nekkoo foo. mais c' était une assemblée générale irrégulière. ok parce que assemblée générale président sortant moo koy convoqué. te ah. président ligue bi mënu ko convoqué. mais lan moo indi la preuve. ñu sauté man dama def assemblée générale après. Hmm. Hmm. parce que kële c' était pas une assemblée générale et puis ñu dem ko def ko en dehors de Kaolack à Kabatoki c' est un quartier de Kaolack Kabatoki. Hmm. Ah, mais man j'ai tenu une assemblée générale au stade Lamine Gueye de Kaolack en présence de l'autorité en charge du sport dans la ville de Kaolack en présence de tous les responsables de l'ASC Saloum alors comme man waruma xaajale moo war a jubale ci assemblée générale bi j'ai recommandé à Fallou Kébé et à tous les acteurs qui étaient présents de se mettre ensemble pour que euh, l'ASC Saloum soit une association forte et c'est ce que Fallou a fait parce que Mhm. amuñu benn contradiction mondial bi nag ndax wàllum football euh, nekk nga ci qualifié nañ war a dem coupe du monde Qatar deux mille vingt deux nga xam ne fii ak quelques mois lay doon euh, lan nga jàpp que ni Sénégal tey war na ko mën a def quand même pour que coupe bi ñibbisi parce que ñenn ñi. coupe bi ñibbisi ban euh, coupe du monde coupe du monde ñëw bi ñibbi Sénégal voilà. coupe du monde <laughs> alors je pense que à mon avis à mon avis. c'est le supporter qui parle. <laughs> ok très bien. à mon avis. mais coupe bi on a gagné la coupe d'Afrique des nations bien. parce que on a euh, certains parmi les meilleurs joueurs au monde. Mmh, c'est vrai. Il faut juste continuer à prospecter mhm. pour trouver parce que toutes nos lignes ne sont pas parfaites hein? attention. Mmh. Moi je suis l'équipe nationale depuis une vingtaine d'années te xam naa football. Mhm. Toutes nos lignes ne sont pas parfaites. Mhm. vous avez vu comment on a débuté à la carte. ñoom Issa wax leen ne boo nee toutes nos lignes ne sont pas parfaites mooy attaque. attaque défense milieu de voilà loolu lay wax les lignes. quatre défenseurs. milieu de terrain kii <laughs> euh, am na ñooñu ñoo xam ne war ñu leen a changer. Uh-huh. dugal ñi ñi nga xam ne ils sont plus performants. Ah, am na ñu bari d'accord ñu ci ndax dañuy waruñoo changer. une ah, équipe ah si quand on ne change pas on améliore. on améliore on change pas. parce que am na ci ay ay joueurs yoo xam ne ils sont en fin de cycle entre nous. Euh, yéen ñi suivre équipe bi. oui am na ci yoo xam ne ils sont en fin de cycle. ils sont plus performants. Mm-hmm. l' équipe repose sur un seul élément. Sadio Mané Sadio Mané. Mm-hmm. c'est vrai ah si si si quand Sadio Mané a la balle. Mm-hmm. il crée le danger dans le camp adverse. dafay jëli balle bi suñu camp porter ko ci camp adverse. évidemment on a un bon gardien. on a de bons défenseurs. Ah mais celui qui porte l'équipe c'est Sadio Mané. am na benn benn gardien bu ay Saloum bu ma bu ma message nee na ma xam leen ne Souleymane Ndiaye moo nekk ki gën doon meilleur ci président ASC bi. léegi la message bi ah, daanu. mais dama jëndal ASC Saloum autant damaa jënd autant de maillots que de matchs à jouer di fay entraîneur di fay joueur héberger joueurs yi sama kër pendant huit mois. Mm-hmm. lañ jox ndékki añ reer. sama petit frère leen yóbbu stade ñu entraîné. mais bari na lu la fa ŋàññoon de ndax man. non ma ne jour bi ñuy tekki ba maa ngi fa woon. loo yaa nga fa woon ña fa ne woon c'était la minorité. ma hmm. xamal la loolu. ci ci ay anciens présidents ay Saloum. ñoo xam ne ñoo fa nekkoon dans l'histoire politique dans l'histoire de Kaolack. je suis le seul homme politique buy dem stade. le seul amul député amul maire amul keneen. c'est tellement mais beneen bi mooy équipe nationale ñu ñëwaat ci équipe nationale ñu ñëwaat ci. ak euh, bi ñu jógee euh, Coupe d'Afrique. ah dañuy ñi nga xam ne tey ñoom ñoo ëmb fédération. Mhm. xëccoo yi ci amoon ay affaire de prime ci des sportifs yoo xam ne nii dañ leen doon xaar ci leneen ak leneen amoon ay ñagas ñagas yu ci amoon. ma ne loolu nan nga ko jàngat li ma gis daal mooy il faut saluer cette performance là et saluer l'engagement des gens de la fédération. Mmh. moi je les suis depuis des années nelawuñu guddi nelawuñu bëccëg ñu ngay dem di prospecter ji ay stade ñu ngi ci match yi guddeeg bëccëg ñu ngi faj soxlay joueurs ça a la performance que nous saluons nous tous. te joueurs am nañ confiance ci ñoom oo oui mhm. ça c'est tout hein. Augustin Senghor il est avec une équipe kenn ku nekk dafa am rôle booy joué ci mais ba nga demee stade keroog gis nga Amadou Kane am rôle bu muy joué. Hmm. le président du Casa Sport am rôle bu muy joué. ah vice président premier vice Ablaye Sow am na lu muy joué euh, Djibril am na rôle bu muy cetera. ñoom ñoom Elimane Lam ñoom ñëpp ñi nekk ci euh, comité de fédération ku ci ne ak sa rôle bi ngay joué hmm. dañ leen encouragé. nañ leen encouragé yeneen yi nag mënut a ñàkk ci biir mbooloo il faut mu am ay contradiction entre les mm. acteurs. parce que ñëpp du bi xam nga on n'a ah jamais la la chance euh, c'est très rare la chance d'avoir un premier ministre euh, fii nii ci ci ci suñu salon salon mm. d'honneur bi. Mm-hmm. te te bu demee vraiment te laajuñu ko kañ la gëj a gisee ak Ablaye Wade. ah Karim dégg nga ma yeggale rek parce que après <laughs> euh, nga continuer kañ la gis Karim Wade ak Ablaye Wade. Eh. Euh, euh, kañ la leen gëj a gis wala mu kañ leen gëj a dégg. Mm. loolu benn la ñaareel bi mooy quand il en Angleterre. Mm-hmm. parce que dafa arrêté woon poste député am neen day dem Angleterre parce que dafa bëggoon dem jàngi. Mm-hmm. Euh, pour se perfectionner en anglais par rapport ak son son activité d' avocat. Mm-hmm. est ce que loolu finalement mu jël na ko amal njëriñ wala c' était juste un prétexte pour génn ci groupe boobu nga xam ne toogaayam neexatul foofu. alors président Wade démb laa ko mujjee dégg. ah oui je parle souvent au téléphone. démb démb démb démb. Ah, très bien laa ko mujjee dégg c' non Karim nag xaw ma sax téléphone. ndeysaan mm-hmm. amatul leen waat maa ngi koy dégg tout le temps. Mm-hmm. et quand je à Paris damay dem Versailles dañuy ànd sax maag moom naa ni kafe tuddee nga ko doom sax. oui tuddee naa ko doom. ndeysaan mm-hmm. ça vraiment je ne savais pas que yaa ngi koy dégg ba léegi. ba léegi démb démb moo ci mujj. alors li ma frappé li ma wax yaa a quelques semaines bi Awa Diop gaañoo. bi ñu demee denc Awa Diop ba wuññeeku je l'ai appelé. ndeysaan mu ne ma Souleymane mais na ngeen toppatoo famille Awa Diop. ne ma xam nga nit bu ngeen di ànd ba mu jógee fii. Mhm. mu ne ma évidemment man la incombé en premier. au premier chef. mais yéen it ça vous incombe parce que seen xarit la woon. Mhm. xam nga ce sentiment là. Mhm. Abdoulaye Wade dafa nitee. waaw léegi Massalikul Jinaan. waaw ñu daje mu delluwaat fekk ko waa ji ca pare ba ñu waxtaan digg diggante bi ba léegi waa ji doom baa ngi kaso. dégg nga lan nga ci xalaat lan nga xalaat ni sa yaram boo gisee affaire bi dafa mel ni dafa booy waxtaan ak sa xarit non merewuma Karim ah. non booy moom président xam nga mu wóolu la ngeen am fu bari fu ngeen jaar ngeen mën a toog sax di wax waxu entre vous di vous tutoyer. di wax yeneen sax yeneen ak yeneen ak yeneen xam nga ak yooyu man yu bari laa dégg mais man ñëwee ma ko bu ma wax de man du ma ko wax <laughs> yaa ngi dégg doo ko ne mais le le c'est lui qui nous a fait bu weesoo yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba tu penses bien que loolu du ma ko ko wax. non damay non damay. on en parle maa ngi moom. oui parce que parce que dafa dafa parce que yaa ngi imaginer parce que paa bi suñu paa la ñun ñëpp. mais yaa ngi imaginer est-ce que moom mi ngi déggoog paa bi. ah oui oui est-ce que yaa ngi imaginer. ñu ngi wax téléphone ah oui oui. waaw ah. kii ça Moussa Macky Sall. Moussa ah, bien sûr est-ce que yaa ngi imaginer. sama réalisateur ah, bi nee na ma kañ la ñuy tas. est-ce que xam nga xam nga ma wax leen benn affaire. président Wade avant ngay continuer. Mm. Euh, bu parce que Abdoulaye Wade mag la quoi 95 96 ans te àdduna dafa doy waar. 29 mai 26 mai waru waru waru xoolal te xam nga ku màgget ku màgget da da nga dee. Ah, xale sax day màgget sax da nga dee xool bu bu bu Ablaye Wade bu euh, je suis sérieux euh, demoon ni tey jii nii. yàlla na yéex waaxul euh, daal nañu nañu rafetal mbir mi ba Sénégal yëpp teg ci seen bët. xaw ma ndax xam na loolu Aliou Badara Cissé waxoon na ko. loolu Aliou Badara Cissé laa a la nekk. incha allahu rabi day am. ah mais comme ñu wax téléphone kay. non président Wade ah, moo ma ne dana ñëw fan yi incha allahu rabi. dina ñëw président ah, Wade waaw il m'a dit ça hein. dama ñëw léegi ma ñëw. ci législative yi wala. non waxuma législative nag tudduñ fa waxut législative. Ah, nee na ma daal dana ñëw. Angleterre nag. waaw Angleterre alors Angleterre xam nga dama waroon dem CPI. Mm-hmm. ok xam nga CPI. Mm-hmm. Euh, on parle l'anglais et le français. Mm-hmm. mais euh, en priorité l'anglais. anglais lay te. à l'époque j'avais discuté avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne hmm. c'est lui qui m'a conduit d'ailleurs vers Cambridge parce que xam nga en Angleterre souvent selon les villes les hmm. gens ont un accent hmm, c'est vrai mais à Cambridge les gens parlent sans accent sans accent sans accent okay. donc il m'avait recommandé d'aller à Cambridge très et je vais toujours en Angleterre et j'ai mes contacts qui sont là-bas j'ai des amis qui viennent souvent en vacances au Sénégal anglais bi ah mën naa ci wax sama soxla PM PM na gis naa ne bëri nga ay fans Ibaba RTS nee na kontaan na ci sa émission. Ibaba nee na gis na tactique bi nga posé. nee na 3 2 5 yi gis na ko bi nga bi nga ñëwee tey 5 nga dugg attaqué ay da nga doon attaqué gars yi nee na kontaan na lool. non Pape Matar dama ko dugg. Iba Ba Pape Matar Iba Ba parce que bu ma ko duggaloon xam naa fi mu jëm ak man. mais est-ce que est-ce que commencé naa samedi ba lay paase. mu ne la je bëgg a ko di nga ñëw samedi bi. <laughs> mais paie préparé wu leen mais mais ay procès nag. non j'ai gagné bu non gagné ay procès avocat bu mag nga. gagné ay procès avocat bu mag nga. Pape Matar uh-huh. euh, j'ai fait mon stage dans un grand cabinet d'avocats. Mm-hmm. cabinet maître Guédel Ndiaye. Mhm. c' est l' ancien cabinet de maître Valdiodio Ndiaye. et Siré Clédor Ly. Mhm. a parfait ma formation. Siré c' est mon ami d' enfance. d' accord. on dit de lui que c' est l'un des meilleurs procéduriers du ah Sénégal. ah oui inéluctablement sax bi nga nekkee Diourbel mhm. nekkoon même Maître El Hadj un bon procédurier Maître El Hadj dafa kii nii rek mais dafa kan euh, dafa kaw doy mais c' un bon procédurier Siré Clédor Siré Clédor <laughs> il passe son temps à apprendre Siré c'est pas le, le genre d'avocat booy constitué nii. Mhm. à la mu dem plaider ji à la légère. Mhm. il prend tous les cas au sérieux mhm, c'est l'un des rares avocats yuy dem Podor. wala mu dem tribunaux d'instance. ma nga woon ci gàncax fan yi. mu ngi woon ci Bofa Boyet. tu vois ma posé ko ñaari questions la rek pour ñu répandre. sama euh, li ma li ma j'ai plaidé devant la cour d'assises pour défendre les Moustachidines en déjà. maître baba Seye bokk naa ci instruction bi lépp mais après mon maître de stage m'a demandé de ne pas plaider. de ne pas plaider. compte tenu des rapports entre maître Babacar Seye et son père. mu ne bul plaider alors je, n'ai pas plaidé mais j'étais dans la salle. Mmh. je je ne je, portais même pas de robe dama ñëw en tenue civile nekk salle. tu vois donc euh, je ne pense pas que mënoon naa exercer beneen métier bu dul métier avocat. bu dul avocat. je lan nga ñu mun a nettali benn anecdote ci Abdoulaye benn rek yow ak Abdoulaye Wade benn rek ak paa bi ci lu baax euh, bi nag anecdote yi mun a nettali bari na de benn boo xam ne vraiment daf da la yéemoon boobu quoi tableau bi ah ma mayoon <laughs> dafa ma mayoon benn tableau ma toog benn bés mu woo ma mais Souleymane sama tableau <laughs> boobu bi ma la mayoon. Ah. mais excuse moi moom moo ko euh, Viviane. delloosi ko delloosi ko. <laughs> <laughs> nga gàddu tableau bi nga gàddu tableau bi yóbbul ko fi kay. mais xam nga paa bi paa bi dafa baax. il est mm-hmm. mm-hmm. xam nga euh, évidemment man moom président bu Diouf xaw ma ko nekkee président. Mm. mais président bu simple comme Ablaye Wade. Mhm. amul fet mhm. mhm. Ablaye Wade bu ko garde corps yi benn bés dafa ñëw ne ma bi muy inauguré tribunal Pikine. dafa ñëw ne ma mais yow. tu loxo benn waaye <laughs> ma ah <laughs> mu ne ma waaye dinañu di ma <laughs> parce que. bain de foule kenn mënu ko tere def. non kenn mënu ko tere def dañ ñëw Kaolack. temps bi ñuy rapatrier gars yi jaar ci géej gi mu ñëw Kaolack benn tournée. ñu war a dem booy nekk fu takk ay brassard rouge waaw dafa xuus seen biir mais dama dafa xuus seen biir. rek après mu tourné. et dañu woo seen délégué yi parce que Ablaye Wade a une grande capacité d'écoute. Mmh, et une grande capacité aussi d'oubli. oui xaw ma dina pardonné xaw ma du pardonné day fàtte. Mm-hmm. mais sinon ñi ko. mais su ko neexee mu la attention eh je change vite d'avis eh. <laughs> mu ne je change je change vite d'avis mu ne la léegi tu es le meilleur. tu es nul xam nga dara. parce qu'il a parce qu'il contrôle tout il surveille tout. il surveille tout. parce que c'est un président qui parle directement au directeur. waaye dafay wax ak directeur yi. <laughs> donc yow président bu la wooyee rek. di la interroger ci dossier xamal ne xam na ci lépp xam na ci lépp. est-ce que doon na am ay erreur <laughs> dictateur erreur dictateur non non non parce que dafa am année mais nag am na daf naan la daf lay laaj sa point de vue. Mm-hmm. Mm-hmm. xam nga en 2007 kooku moom <laughs> je pense c'est la dernière dañu toog benn jour mooy bi muy recevoir Idriss Seck muy dugg ko génn. oui les audiences de midi. les audiences là. ñu xëy ah, benn jour c'était pas mal ça président wooma woo Ablaye Faye. woo premier ministre Macky Sall woo Pape Diop woo Ousmane Ngom ministre de l'intérieur ñu ñëw alors bi ñu ñëwee ñu fekk gendarme yi tëj buntu yëpp c'était la première fois que ça se passait j'étais hmm. directeur de waaw ah. président lan la bëgg daf ñu bëgg a jubaleeg Idriss Seck xanaa ay na ah ben on va ma constitution hmm. ñu nekk salle conseil national de sécurité ñu toog tuuti rek huissier bi ñëw ndeysaan Sow yàlla na ko yàlla yërëm nañu euh, le président vous attend ñu ñëw man ma dugg rek nuyu ko dem toog ci yenn saa yi nag mu ñëw euh, deux heures de temps après li ma naan leen Souleymane naka def ça va <laughs> te boobu togg bu yàgg non do parce que bu ñëwee xëy na xel bi mu ngi ci leneen. du la faale da way fait le premier. nga dugal dugal dugal dugub caag bu tunde xam naa il réalise que nuyu nuyoo teewu leen quoi. waaw <laughs> waaw Souleymane naka def ça va. alors bi ñu duggee ci salle bi ci bureau bi ma toog ci canapé bi Macky Sall toog côté de après non président Pape Diop président euh, premier ministre Macky Sall Ousmane Ngom toog en face ak Ablaye Faye à côté mu ne bon voilà je viens de recevoir Mara euh, il a décidé de retirer sa candidature. ma. Mara Mara ma ne ko ah bon mu ne ma dama pare gu mbëggay ma ne ko baal ma ma toog wax ko caag ne Souleymane ma génne sama article 32 constitution bi ñu révisé. ma ne président gis nga article 39 bi li mu wax mooy candidat bu retiré can euh, dossier am candidature am mm-hmm. processus électoral dañ ko reprendre à te xam nga loolu ban risque la ñuy conduire mm-hmm. ñu dem au delà de votre mandat te si on va au delà de votre mandat vous risquez d'être dans la même situation ko Laurent Gbagbo les gens vont dire que vous n'êtes plus légitime mmh. et que ça peut ouvrir la porte à des coups d'État et à n'importe quoi mm-hmm. su la Idriss Seck bëggee jàppale il n'a qu'à maintenir sa candidature et parcourir le Sénégal et dire que je soutiens Ablaye mu ne ma li nga wax dafa logiqueul waaye ma ne ko ah c'est mon point de vue ah. mu ne Macky euh, Pape Diop Pape Diop ah monsieur président li Souleymane wax mu ne pardon Macky ah <laughs> li Souleymane wax. comme d'habitude. zéro mu mu jël téléphone bi ne madame Mbaye appelez-moi le colonel colonel Malick Cissé. mu ne hmm. kon intermédiaire bi faatu bu yàggul. gaa ñan la ko yàlla yërëm. bu ceeb mu ne mais yow. en fait Souleymane Sénégal dañuy damay jàppale Ablaye Wade. macha allah amul woon position bi tamit. macha allah euh, euh, kii euh, Mame Khady wax ko dëkkam Kaolack nu muy mel suba ci tàngoor yi ñu tëj émission bi. waaw mais laata boobu incha allah dañuy wax jant bi dina daal di fenk. Bambey lu fa xew. waaw Bambey waaw. dee ci doon Bambey séeréer. ba may séeréer dinaa la boole ak moom nag bala nga fiy jóge nga <laughs> daf ma sonal trop ba may séeréer yow. <laughs> non waaye yow waaw <laughs> merci jàmm jàmm attention waaw jant bi incha allah dina daal di fenk ci 6 cinquante 54 minutes euh, dina daal di sow ci 19 vingt 23 minutes lu jëm ci température yi nag euh, dañ koy euh, daal di dooree ak Kaolack comme que suñu invité bi fa la daal di jógee. dina daal di Kaolack ak Guinguinéo bokku ci. Hmm? non dañuy wax kii température yi ci région yi rek waaw capitale régionale bi mm. ah, lañuy wax sinon xam day tiire en longueur ak yooyu noonu ah, Kaolack mm. waa kay région de Kaolack incha allah si suba gi dina am 38 degré ci bëccëg gi ci guddi gi mu am 20 degré Dakar dinañ am 24 degré ci bëccëg gi ci guddi gi ñu am 19 Diourbel daañu am 38 degré ci bëccëg gi ci guddi gi ñu am 18 degré Fatick aussi dinañu am 37 degré ci bëccëg gi ci guddi bi yi ñu am 18 euh, euh, Kaffrine euh, daañu am 41 degré ci bëccëg gi ci guddi gi ñu am 23 Kédougou daañu am 42 ci bëccëg gi ci guddi gi ñu am 28 degré Kolda daañu am 42 ci bëccëg ci guddi gi ñu am 23 degré Louga daañu am 35 dëkku Moustapha ci bëccëg gi waaye nag 35 degré mën naa <laughs> waaw waaw dinañ am 35 ci bëccëg gi ci guddi gi nag mu am 17 Matam daañu am 45 ci bëccëg gi ci guddi gi ñu am 26 degré Saint-Louis daañu am 26 ci bëccëg gi ci guddi gi ñu am 17 degré Sédhiou daañu am quarante foofu dina tàng ci bëccëg gi wante ci guddi gi daañu am 21 Tambacounda daañu am 41 degré ci bëccëg gi ci guddi gi ñu am 27 degré Thiès daañu am 31 degré euh, ci bëccëg gi ci guddi gi ñu am 18 degré ñu jeexale ko ak Ziguinchor. daañu am 36 degré ci bëccëg gi ci guddi gi ñu am 19 degré lu jëm ci wàllug marée yi daañu am. ñeent marée ñaari marée haute ak ñaari marée basse marée haute bi ci Ndakaaru Ndiaye dañ ko am ci 9h27 minutes beneen bi ñu am ko ci 21h41 minutes marée basse daan nañ ko am ci 3h12 euh, minutes beneen bi ñu am ko ci 15h36 vingt h vingt 26 minutes lañ koy am ni ñuy koy defee saay su nekk di. Euh, sàmm su wala di euh, dénk ñi nga xam ne ni mooy suñu mbokk nappkat yi bu ñuy dem géej rek ñu gàlloo ak euh, gilet de sauvetage ak lépp loo xamante ne bii buñ ko defee daañu mën a dem napp ji euh, ci jàmm daal di ñëwaat ci jàmm. comme que à la une de à la man xam naa ne fa nga jëm si amul. waaw mais à la une de ton habillement am na foofu laa doon jëm si voilà mais ma di ko non xam naa ne yow da tu prends du plaisir à le dire donc je te le dama la koy bàyyeel waxal. non je l'ai déjà <laughs> moo daal di euh, génnati file nekk euh, ci euh, cité marine ci Derklé muy Mariam Diouf Rem Diouf moo fi daal di génn ku ko bëgg a jot da ngay def ci 77 632 49 85 632 49 85 Glam Bayrem moo daal di génn fii nii bi tey di la jox kàddu gi à la une de ton de mon habillement alors ñu dem ci ñu dem ci Salma day fayu quoi ñu dem ci Salma. ayca man tam comme d'habitude ah pa Bey le jeune tailleur nekkee depuis yëmbal moo génn ak man fii depuis ba salon d'honneur commencé ba tey ah donc il o joignable au 78 634 93 34. 78 634 93 34 di ko jaajëfal bu baax a baax waaye di jaajëfal sama borom kër bi nga xam ne moo permettre guddi gi ci koor gi ma ñëw toog fii di def li nga xamante ne moo di émission bi mm. mu teel ma bi normal ah kon maanaam da ngaa aye tey la ko fa waaw mais macha allah daf ma téyeel bébé ni ma dama def émission. déposé ma ba fii félicitations à lui yomb na lool. sama tooroo doy na bañal li yomb na lool alors <laughs> comme d'habitude. <laughs> Uh-huh. Uh-huh. Maxu Mandela Maxu Mandela. moo fi jaar tous les jours moom ndeysaan Maxu Mandela yërëm naa ko balaa koor gee jeex. dafa bëgg <laughs> moo tax su ma waxee bu ne maay jënd tusi yóbbu ci tailleur bi mu ñëw ma fay noonu la koy jàppee ma c'est parce que yaay jënd ñu ñëw mais man maa koy contempler parce que fii lay nekk ci eh, place da ngaa xam nag fu nu may def su ma eggee damay wax samay salay salay yawit <laughs> ba pare bu boole maag sëram di jigéenam madame Traoré xadika borom institut gallois bu ci ku bëgg ci eh, tête yu rafet yi macha allah dina la jox perruque defaral la bam très bien da nga koy woo ci 77 337 11 25 moom moo ma génn fii fépp fu ma génn ci koor gi rek. ci salon d'honneur ah macha allah gis nga. voilà Aliou. Aliou. jabar tubaab mi ngi mi ngi sama cousine laa Aliou vas-y bu leen mu dugal de wëruma dara. da ngay wër. wëruma de. olof moo tax Aliou. wëruma de. non waxu ko ci français olof la quoi Aliou vas-y. ah wolof waaw wolof wax leen leen ne. ci olof lañ ko wax sax bu leen yéen bu leen ko wax yéen mooy. <laughs> oui waaw d'accord ok. mais ci kanam yi bala ñuy dem xadus moo ñu génne ci kanam yi ñun trois yëpp. kon nag gars yi bu ñu xadus make-up ñu dimbali rek. Khadija Khadija make-up moo leen génne ñoom ñëpp moo leen moo leen maquillé. alors tey ba léegi suñu suñu sëriñ bi ah. waaw sëñ Moussa Saliou moom may jugal rek xamatuma sax. Eh, eh, na ko eh. yàlla sàmm. sëñ Moussa Saliou. sëñ Moussa Saliou waaw. Aliou Sow kon boo paree jox ñu yére bi. bëgg bëgg na ma trop te. macha allah non yi mu fiy sol yëpp ci kii bi moom da ko jugal nee na da ko jugal rek laa fi solo gum boo xam ne ku ku ku ci yoon ah, mais lenn na la wax man nga jàng wolof bu mi nga xam ne ma maa gën a yeesu ñëpp <laughs> Issa na fi yàgg tewee Espoir Couture la Espoir Couture nag ñu ngi fii ci Grand Yoff euh, Aliou numéro de téléphone bi di 77 cent 132 97 80 mais dafa am yóbbante wu ñu nekk Chine euh, Babacar Niang mhm. dama gis saak bi ñuy commencé mu ci insister aussi que nii mi ngi ñuy suivre te xam nga Chine moom. instant bi ñu ngi ci 10 euh, heures 30 euh, 36 minutes. Mm. donc ñun ak ñoom 8 heures de temps la ñu rawante. Mm. mais terewul dañ koy suivre saa su nekk rawatina ci via Facebook. mais daal yi. daal yi moom daal yi c'est. daal moom ngaay la ngaay la jógee ah. donc ah, voilà. macha allah diggante Kajoor ak Bawol sorewul. waaw ñun tam ñu ciy jàpp. bu baax alors Pa Matar je pense que génn Pa Matar tey. <laughs> ku génn waaw tey xabaan la génn ci mannequin bi tey. waaw tey xabaan la xabaan euh, xabaan Colobane marché Colobane la nekk euh, numéro téléphone 77 301 77 21 man moom yàgg nañu nag. mais ah, bon comme li may faral di wax rek dafa sikk. léeg-léeg ngeen ànd léeg-léeg ngeen. waaw léeg-léeg ànd léeg-léeg ñu def nii est-ce que sikk. waaw man sikk naa man sama sikk moom kenn weexantewu ko <laughs> waaye waaye xabaar tamit ma sikk mais macha allah lu lu lu rafet lay ñëw ku bëgg euh, mu ñawal la rek boo demee marché kolobaan euh, dina la dina la ñawal ñëw yu rafet euh, numéro téléphone am encore une fois 77 301 77 21. alors Moustapha. Euh, très heureux vraiment d'avoir fait cette euh, émission mm-hmm. euh, maa ngi jot léegi un message de Gabriel Barbier mmh. correspondant de Walf à Saint-Louis qui me dit que Souleymane Ndéné par son franc-parler. ça c'est vrai. Euh, c'est très rare nag que les de Walf parlent comme ça et ça je tenais à vous transmettre ce message-là. Mm-hmm. vraiment cette émission-là on a été très heureux de le faire mm-hmm. di remercier Sénégalais yi doon seetaan yëpp. ci biir réew mi ak ci bitim réew euh, di remercier sama xarit bu baax. muy Pape Ndiaye euh, Tawfekh Couture. Mhm. Euh, nit ku baax la vraiment euh, pour tout ce qu'il fait di jàpp ci Walfadjri depuis ñu commencé di def euh, salon d'honneur ba léegi. loolu am na solo jërëjëf. yaa gars yi moom moom nee na mais mais non tey nag bokkul tey moom. waaw damay remercier sama patron. waaw Cheikh Niass quoi. Cheikh Niass tey Cheikh ngay remercier. macha allah ah macha allah macha allah. ah justement en de de de de de de Cheikh bi ñuy def émission bi mooy envoyé message quand on parlait de. Euh, euh, cessation non cession euh, de la licence voilà mu ah. may message moom Cheikh ah. li ma envoyé le décret li ma Souleymane Ndéné a raison effectivement c'est ce qu'il m'a a raison ah. voilà je n'ai pas leer na <laughs> alors man tey moom dama dama dama dama dama soppi ah tey moom dama soppi tey tey tey non xulóowuma mais dama ko dama ko ñaan dama ne ko nga may solal ba nit ñi gis ma xam ne mannequin bu neex a solal laa ñu ñëw ci man tamit dafa neex alors moo tax euh, euh, ñoom alima waa sant yàlla Couture ah wax dëgg yàlla alima moom dama koy remercier parce que moom bu lay solal da lay solal ak yéene <laughs> waaw alima alima guddal fan ah 77 615 37 20 77 615 37 20 ah eh, <laughs> y a mon réalisateur là <laughs> moo may moo may jaxase di ma ruubee nii Charles bàyyi ma quoi alo Alima merci beaucoup vraiment euh, kontaan naa ci yow alors euh, Souleymane yow yaay yow yaay yow yaay tëj ah. Euh, bon man des nag da nga may baal kas parce que des fois quand je dis Souleymane. damay sama frère la voilà je suis ton grand frère <laughs> voilà c'est ça alors. ñoo dëkk Ndofane la mais dama lay laaj benn question rek est-ce que bi ma la nee samedi bii di ñëw yow yaay ñëw. toogoo samedi boobu ba vendredi démb bi di ñu seetaan pour mun a canaliser. non yàlla xam na ne seetaanuma leen benn yoon. ah wallaay. waaw parce que ni ni. non non ni attaqué tey damaa yéem. <laughs> non Pamata dama ko bëggoon a freiner quoi. <laughs> voilà da système la woon la <laughs> woon vraiment. Euh. waaw ça ça je me rappelle la dernière fois Moussa on a eu un malentendu vite fait mais après c'est le premier ministre du Sénégal quand même. Mm ministre il s'est levé fi mu jóg ñëw fekk si ma j'étais mhm. j'étais très touché alors que bon man a nekk xale. Mhm. xam nga et puis bon voilà. xam nga ay stratégie la xam nga la meilleure façon de a défendre c'est de sa ma de se défendre c'est d'attaquer. Ah, mais bien eu beaucoup de plaisir à me présenter ici mhm. à vous avoir comme contradicteur c'est toujours un plaisir pour moi de venir ici euh, ndax euh, li ma lié woon à Sidi Lamine quand il a eu ses problèmes avec euh, je pense la RTP mm -hmm. il venu me voir et j'ai immédiatement réglé le problème le même jour soo demee Google da nga gis déclaration bu def devant mon bureau alors donc parce que moi ma famille du côté de ma mère est très liée à la famille Niassène mm sama maam bokk na ci euh, taalibe yu magu Baay Ñas mhm. sama papa yaay dafa tuub nekk jóge ceddo ñëw nekk jullit mhm. dem tuubi ci Baay Ñas mhm. donc euh, j'ai beaucoup de respect de considération pour la famille Niass su ma demee Kaolack Medina Baye lay jullee àjjuma chaque vendredi ma nekk Kaolack fu lay jullee ji donc euh, salue la continuité assuré par euh, son fils Cheikh Niass. yéen itam maa ngi leen di sant bu baax Moustapha. je pense tase nañ plusieurs fois. alors euh, Aliou Sow aussi Pa Makhtar c' est la première fois ñu daje. Mm-hmm. ak Mam Biram maam Biram man sama famille dafa bari ay Mam Biram. Mm-hmm. Mm-hmm. voilà parce que sama maam Biram la tuddoon Biram Njémé. alors donc ku ñu tuddee Biram Njémé maam Biram lañ lay wooyee. donc j'ai eu beaucoup de plaisir à et puis sa dëkk ba def naa fa trois ans fa laa taseeg Ablaye Wade en 78 Diourbel am naa mbégte trop bokk ci émission bi émission bu neex la parce que dafa yàgg xam nga am na émission yoo xam ne du yàgg te duñ la bàyyi nga wax am émission yoo xam boo commencé wax ñu dagg la mais fii nag vraiment tu as le temps de t'exprimer même suñ lay contrarier da nga am moment boo xam ne dañ lay bàyyi am nga am liberté exposer sa point de vue. Mm-hmm. et ça c'est important c'est très important donc vraiment maa lay gërëm bu baax euh, je te dis que c'est par honnêteté que je n'ai pas accepté d'aller effectivement sur d'autres télés wax na ko wax j'ai été invité. Mm-hmm. mais xam nga saf aurait fait désordre yow nga wax ma. on devait faire ça mardi dama waroon dem fu mu am na fu mu war dama waroon dem. Euh, ngi dem dama am réunion Kaolack. waaw nga ne ma ah. non da ngay ma ne la je ne peux pas revenir. parce que ça fait au moins trois semaines daw ma Kaolack donc ma demee il ma toog fa. Uh-huh. alors donc ci diggante bi. Uh-huh. je vais lire Chérif m'a appelé plusieurs fois. Mm. mais Chérif Dia mais mënu ma woon dem foofu alors que jox naa la sama accord ba pare. donc xam naa je vais devoir passer. après après garaaw jël nañ li neex lépp jël nañ ko non non des na de <laughs> attention oui ma ngecc nañ ko foo jaar safit la am na yu ma waxul <laughs> su ma demee fee dinaa ko wax <laughs> dëgg mu ngi menacé ne am na yu waxut bu ma wax loolu c'est inéluctable loolu mënta ñàkk président Wade ak président Macky Sall ñàkk daje mënuñu ñàkk a daje nañ ko yëkkati ba ci kaw. Euh, nañ ko war a yëkkati ba ci kaw. dégg nga coro di ko yóbbaati. ci soo demee nga waxaale sa diggante ak Maître El Hadj Diouf boo demaalee foofu. comme tëj nañu. mais tu sais que El Hadj c'est mon doomu nijaay la. waaw c'est vrai. c'est mon cousin amul benn xar ma yàlla ak man ak moom. dañuy hmm. tooñante nag. xam nga mais comme moom dafa xaw a excessif tooñ bi day yéggi dayoo yenn saa yi quoi euh. mais sama xarit la on a grandi ensemble El benn bés dañ dem Diourbel dem euh, ñi ngi ci de benn secret laa leen di jox ah eh benn secret. Me El Hadj Diouf. dañu dem Diourbel Mamadou. Uh-huh. peut-être euh, dix neuf vingt ans parce que El Hadj cinquante neuf la judd man cinquante huit. mais ñu doon ànd. son père était mon oncle mais suma xarit la woon aussi Pambay Diouf. Uh-huh. maag El Hadj benn guddi ñu ànd mu ne ma naa ko gunge. dem benn kër goo xam ne kenn fu dugg kër Eliman bi. fekk lu ngeen fa doon utee. dafa amoon benn gel <laughs> bu ngeen doon seeti booy ñu dugg ci kër gi ñu fekk benn paa ci buntu kër gi nuyu ko ah. dugg ci biir ah. et eh, là jiitu ma dox ci gannaaw mu dugg ci biir néeg bi ah. y avait une maman mm. mm. man ma dugg nuyu leen rek mm. atmosphère li mu ko xawoon a mel rek ma génn taxaw ci véranda bi alors El Hadj nuyoo taxaw tuuti waxtaan ak mu taxaw fu ñëw fekk si ma mm-hmm. ñu toog cinq minutes ndaw si génnul. Mhm. dix minutes ndaw si ma ne ko saa waay man maa ngi dem de paa toog ci buntu kër gi xam naa moo tax ñi kii génnul ba génnoon paa bi waxul dara rek ba génn rek dem sama mu ne ah ci buntu kër gi kii muy borom kër gi dégg naa mooy ilimaan bi. Ah. ok gars kon. kon alors <laughs> alors ma rappelé rek suñu fondation bi comme man bi dañ maa xoj. Euh, Jérôme euh, Diouf. journaliste. Euh, grand Jérôme de la mhm. mhm. tu as fait une excellente émission ak Souleymane Ndéné Ndiaye. nous avons. <laughs> ah, ah super. Cheikh Khoureyssi Ba. <laughs> avocat bon il me tire les oreilles il <laughs> bi la Pama daal di. mais Pama daal di provoqué. super super mais mais tu sais. je vais vous raconter benn affaire bu ma benn avocat nettali. maître ma soxna gan pour ne pas le nommer. xam nga avocat yi yenn sa société juridiction di simb mel ni ñu mm. mu ne dafa tase benn avocat à Louga. rek avocat bu ñu génnee rek mu man ngay saaga <laughs> ñu mu ne ko ñeme nga mu ne ko dem àll <laughs> <laughs> mu ngi yàqamte dem ca àll ba bi mais saa waay dafa génn dëkk bi tudd ak gaare dana waa ji dafa mésestimé woon sous-estimé. dooleem bi quoi. nee mu kii rek grand bu départ <laughs> ñu naan comme que ko tàmpet taxawal boo taxawee rek ma. <laughs> mais il faut ñu quitter <laughs> alors merci beaucoup et demain dimanche dinañ am sëñ gay defaat na moom la ñuy dalal fii suba. fas yéene waxtaan ak moom ah dinañu laal nag actualité bi eh, ndax nag moom bu dul dara itam ci wàllu politique eh, am na ci taxawaay waaye itam dinañu laal eh, beneen aspect bi nga xam ne wàllu diine la Moustapha ni nga ko waxee kon suba lay doon gars yi merci beaucoup vraiment premier ministre kontaan nañu lool merci beaucoup à tout le monde ah les chroniqueurs des fois dama leen di attaqué yëpp pour rek ngeen wax voilà léegi fonda eh Charles bàyyi ba ma wax fondation <laughs> maa gën a sonn ci émission bi alors di remercier nag waa Régie ñoom Charles caméraman yi ba léegi ben yoon laa fa jaar ah. wane leen mais merci beaucoup à vous parce que li ngeen di daj xam naa ko ah yéen ñëpp technicien yeeg ah ñoom Ousin yeeg ah ñoom moom ñoom Cheikh ak ñoom ñëpp vraiment euh, Cheikh Loum vraiment yéen ñëpp merci beaucoup alors Euh, fondation bi euh, ma fàttali leen ko Wave ngay jaar dem paiement boo demee paiement ah, di nga gis euh, fondation Walfadjri boo gisul nga tapé ci barre de fondation su ko defee dina affiché wu nga mun a joxe bu fekkee ne beneen bi nga am muy Orange Money nga def dièse 144 dièse 5 étoiles nga def code marchand bi muy 45 85 20 nga defaat dièse def sa code Orange Money dina la guider nga mun a participer bu la neex aussi mun nga jaar ci Copa Express foofu nag boo fa duggee moom bëri na ay option mun nga Free mun nga dem ci Orange Money mun nga dem sax ci sa carte Visa kon noonu nga fay duggee kon euh, euh, PM ñu xaar sa participation ci kii léegi li may joxe kenn du wax en public. non non non ma ko wax mais danaa ne rek wax joxe nga. ah mais du ma wax en public waaw xam naa ne su xam naa ne bëggoo ma wax waaye daal joxe nga. au moins ñu sauver de de façon symbolique. voilà symbolique voilà.